tey xam ngeen ne diwaan gaaw bu nekk sëñ Jibril Ndaw lañ ko daan feggool tey nag xam naa ne reer yee ko jàpp ba ñëwul waaye mi ngi ci réalisation bi ñu di ko ziyaare bu baax a baax euh, kooku nag jàpp naa ne gis nañ ko ci affiche yi tey nag moom la ñu defal émission bi muy spécial Cheikh Ahmadou Bamba euh, yaakaar naa ne dañ waxtaan tey waxtaan wi ci ñetti pàcc yoo xam ne ni dana wuute waaye pàcc bu mu ci mën a doon rek danañ ko ci may temps mu mën waxtaan ngir mën a gindi nit ñi ci point yooyu nga xam ne kenn ku ci nekk waxtu wooxee yaa ngi ciy gëstu ba tey muy gën des des ci sa bopp di lëj donte ki ñuy moom la suñu borom bindee parcours boo xam ni dana difficile lool ñu mën koo décri ne kii lii la mën cee teg loxo waaye tërëwul li nga xam ne moom la ciy waxtaane mu mën a tombe mën a méngoo ak xelu nit ñi ñu mën koo jariñoo loolu suñu borom defal na ko ci ab cër mu disponible lool tamit jóge Touba ñëw ànd ak ñun jataay bi bu jógee itam delluwaat Touba nga xam ne jataay bi rek moo ko tax a jóg ngir euh, bégal téléspectateur Touba TV waaye ngir bégal mbokki taalibe yi suivre muy sunu xarit euh, di sunu wëllëre euh, di koo xam ne ku ne it bëgg nay xaritam ndax ni mu mel ci sëriñ bi muy alaaji sëriñ Gana Messere Maxtaar di ko ñaanal bu baax a baax yàlla may ko fan wu gudd ak wér mu yeggale li mu bëgg a liggéeyal Serigne tubaa ndax xam naa ne bëgg-bëggam yépp mooy fexe ba marqué empreinte am ci ñi nga xam ne tey dañ lay nettali ne la diwkat daan na jataayoo ak sëriñ bi moo bind téere sàngam mbaam moom la sëriñ bi waxoon nangam loola ma ngi ciy bay waaram mu def ko mu di ko def nag ci fat fat fànn yu wuute ndax euh, ñoo ñu nga xam ne sañu ànd sëriñ bi ku ci bind ku nekk ma ngay jël am bindam di ko boole ci li nga xam moom la ñuy jàngale ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu am mbégte ci moom bu baax di ko dellu di ko ñaanalaat yàlla gën koo taxawu may ko kàttan may ko mu yeggale yàlla dogal nag suñu borom boole ay relation interne ndax eh, bi ñuy dem bayti laayil xaraam moom yëgu ko man yëgu ko suñu borom boole nu bokk ànd àndin woo xam ne eh, mu rafet lool eh, mu am baat boo xam ne ni tax na ma gën koo dolli jàpp mooy sama diggante ak yow suñu kóllëre duñ ko feddalee fii ca barab yonent bi alayhi salaatu salaam lañ koy feddalee keroog ba ñëwee ci rawdu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba ñu jàppantee suñu loxo yi surtout Serigne Touba moon romb mu ne kaay seedoo suñu kóllëre gi loolu Sëñ Touba boole nu yaakaar naa ne néeg bu naqare lañ yoroon nag ndax néeg ba ñu yoroon mooy eh, bu guddee nu waxtaan ci Sëñ Touba ñëpp daanu jooy ñu fay làmp yi ñëpp tëdd mujj ñu ne bu fi kenn waxati Sëñ Touba sax léegi nañuy wax luy luy reeloo nit ñi loolu loolu loolu mustawa bu kawe la eh, moom nag damay wax faral di wax ne Eh, ni muy liggéeyale sëriñ bi kenn du nu ko jàppal kenn du nu ko fànkal noonu noo koy jàppal sunu ndax li muy wax noonu la engagé noonu la intéressé noonu la neexit nag kon nag noo ngi am mbégte bu baax ci recevoir la ci plateau bi sëñ Gana eh, tey sax dama bëggoon a dalal daaru waaye daar daaru daa ñëw ba ci buntu ba daaw res ndax nee na ma daal fu jege sax du ma fa jege <laughs> xam naa sëñ Mourou Makhtar da daa waxtaan ak moom ci suuf eh, di nuyu ñim àndal ñëpp nag sëñ Mourou Makhtar yëpp ndeysaan ñu di ko ziyaare muy sunu xarit di ko baax ñu di ko sant nag ci taxawaayam ci sa nag ndax képp koo xam ne mi ngi def loo xam ne ñëpp la waroon kooku ñëpp ñëpp ko war a ameel njukkeel ñoom itam ay invité surprise yoo xam ne ñoom it ñu ngi ci biir plateau bi ay kilifa euh, ñor gu leen bi ñor ak waxtaan wi ak safoo gu moo waral ñu bàyyi seen yi ñëw ànd ak ci euh, bis bi euh, te jàpp naa ne am na ñeneen ñoo xam ne xam naa ne ñoom it danañ ñëw ci kanam mu nekk ay surprise waaye loolu lépp day méngoo rek tawféexi sëriñ bi ak cofeel gi euh, bala maa nuyu euh, kilifa yooyu damay ciy njëkkee rek euh, sëriñ Abdou Lahad Bousso Maram di sëtub sëriñ Massamba Kandi moom nga xam ne jàpp naa ne sa digganteeg moom cofeel gi defoon nga ko fi nag nu ma neex ci Palato ba xam nga sëriñ Laat day noggatuwaat fi ne bu génnee waaye yow yaa koy noggatu fi mu ne tubaarkàlla ma di ko ziyaare muy borom xam-xam bu rafet di koo xam ne ñëpp rafetlu nañ xam-xamam ak taxawaayam tam ci yoon waaye murit saadix la ndax moom sëñ bi da koy jàpp Euh, ma di ci teg sëñ Abdourahmane Sy bi moom sëriñ Saaliw di koo xam ne ñun ku ko gis ci écran bi sax muy seetaan di nga xam ne histoire la ndax dafa bokk ci ñu ñu toxi ko ci ay loxoom euh, muy koo xam ni sëñ Touba jaral na ko lu ne ci àddina euh, tey rek ci bëccëg lañ doon wax téléphone su ma jugee fi may dem danaa ñëw seetaan ci émission bi ndax sëñ Gànna taxawaayam ci woon ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal yàlla moom itam may ko kattan ndax yàlla dogal na yoon wi mu mujj dem ci sëriñ Saaliw ñoo ànd demandoo mu jël àddiyaam jox sëñ Saaliw sëñ bi wax ko kàddu yam ko wax bi mu ñëw ànd naag rakkam Cheikh Magay Si bi nga xam ne moom ñun ñaar benn lañ dama daan wax sëñ bi ne ko maa ngi Magay kii mooy bras droit bi kii mooy bras gauche bi euh, muy koo xam ne ku baax la di sama xarit ànd ak soxnaam madame Si bi di ko ziyaare baax soxna aana yàlla defal ko kattan moom itam may ko mu yeggale waaye sëñ daana dañoo am ci plateau bi euh, sëriñ Modou Mbàkke moom sëñ Abdourahmane Daaru Salaam di sama xarit di sama sëriñ ma di ko ziyaare bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam ndax bu dul émission bi li ñuy nekk bari na lool ndax ak xaritoo moo ko waral waaye muy sa soppe nag bi mu ñëw nag mi nga ànd ak Serigne naa Fall moom Serigne Cheikh Ndigal Fall Serigne Cheikh Roqeya euh, Serigne Cheikhouna moom it cofeel gi mu am ci yow moo waral mu ñëw àndandoo ak ñëw waaye euh, ku sëñ Cheikh Ndigal meññi Serigne Cheikh Fall Baye Bour si Mourou Moustapha maam Cheikh Ibrahima Fall jaadu na waxtaanu sëñ Touba mu tallu la foo xam ne di nga bàyyi lépp loo mën a def ñëw maa ngi ciy ziare soxna euh, maam Awa léegi rek fa laa jaar ndeysaan mu di ma wax digganteem moom moom ak taxawaay bi mu am ñuy ziyaare bu baax a baax euh, euh, sëñ Modou Kara moto sañ Kara moto euh, sañ gànn mi ngi may leeral ne ma bi ñu xamante sax waaye cofeel gi yi mu ëmbal sëñ gànn moo waral tey mu bàyyi ay yitteem ñëw àndandoog moom li nga xam ne mooy jataay bi ñu am cofeel bu baax a baax ak mbégte nag ci sa teewaay ci jataay bi sëñ Modou Kara di ci toftal sëñ papalaay sëñ papalaay moom sëñ gànnaag may wax ne moom moom taaliba sax taaliba cheikh la sax faf waaye ñor gu ko sëñ Gana ñor ak waxtaan wi ni mu koy def moo waral tey mu ñëw loolu nag jàngale bu rëy da cee ne euh, kon noo ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Papa di la euh, ndokkeel ci teew gi nga teew ci jataay bi ñu ngi feggoo ak sëñ Abdourahmane Diop moom it ñu ngi koy ziare bu baax a baax di ko di am mbégte ci teewaayam ci plateau bi sëñ Amadou Touré sama jarbaat la ñëw na léegi ci plateau bi moom it ndeysaan ma am mbégte lool ci teewaayam xam naa fan ña nga koy sànni xeer waaye ñu amaat yeneen gan soxna Adama Ndiaye mi tubaarkàlla ñëpp xam na nañu suñu diggante ak moom ak suñu yaay muslikend ndax euh, wëllëre wu yàgg la te boobu ba léegi mu ngi koy doxal jàpp naa kuy faral di topp sunu jataay moom it démb bi ma ko waxee sëñ gànnaay ñëw rek mu na ma damay ñëw seetaan si ndax sëñ gànna ñoom ñëpp say say say soppe lañ euh, mu ànd ak soxna maam awa mbub tuwarkàlla euh, borom añ bu neex bi maa ngi koy ziare baax mu sëñ Fallou Eh, feggoo ak soxna musli tey tubaarkàlla solo nañ xam naa bu sëñ Mansour ñëwee ci liggéey moom dana gën a yaatu ñu wonee ne eh, waajal nañ bis bi ñëw ci li nga xam ne mooy jataay bi ñu di leen ziyaare bu baax waaye nuyoo bi moom dama ci jiital maître maître laa ci jiital ba noppi tubaarkàlla dool leen cee teg eh, sëñ Mbacke Mbodj nekk ci machine bi feggoog sëñ Dame mi nga xam ne tubaarkàlla ci liggéey bi ak sëñ Mansour Guèye jekk baylaat borom wakaana tey nag sëñ Gànn jàpp naa ne waxtaan wi duñ ko bàyyi rek sax mu nekk waxtaan woo xam ne nii dañ koy tënk ci question dabaatal waaye dañ ko tënk ci ñetti keno ñetti keno yooyu jàpp naa ne benn boo ci leeral rek dana mandal taalibe yi lay seetaan tey te ñi lay xaar bari na am na kilifa yu baree bari yoo xam ne ñu ngi xaar sax ci téléphone bi waaye balaa ñoo dugg ci thème boobu tey dañoo bëgg a waxtaanee multidimensionnel Seexul Xadim nga xam ne wet gu mën a doon ci àddina te nit war caa am wàccuwaay sëriñ bi wet googa matale na ko ba mat sëkk te dara du ca manqué su ko defee ñetti point yi nga xam ne ni tënk nañ ko ci lañ fas yéene jëmale suñu waxtaan ginnaaw boo nuyoo ba noppi lay doon ma di la ziyaare bu baax a baax bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan salaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima eh, bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naala lislaam yëpp màggale ko ànd ko ak mbooleem kilifa diine yëpp di nuyu mbooleem jullit ñëpp sëriñ Amidou noo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax di am mbégte ci jataay bii nu bokk di la jaajëfalit ci sa taxawaay di la jaajëfalit ci sa doxiin mu di bokk gi nu bokk liggéey bi ñun ñëpp te kenn ku ci nekk nga yéene ko la mu yor ràññee ca di ca wone waxtu wu sa cofeel loolu rek moo waral jataay yi di ko def ci jataay yoo xam ne bu ñu toogee la waaye di ko def ci jataay yoo xam ne it bu ñu toogul la loolu kon noo ngi lay sant bu baax di jaarale yow it nuyoo jëwrin mi nga xam ne mooy alaaji mbakk yu fay mi borom béréb bi euh, ak mboolem ñi fi nekk ñëpp sëriñ Jibril Ndaw Cheikh Balla Samb ak sëriñ Mbacke Mbodj ak kilifa yi fi nekk euh, di nuyu it kilifa yi nga tudd léegi te ñoom it ñu ñëw fekke si jataay bi njabootu sëriñ Touba nekk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima fal nekk ci njabootu Cheikh Amadou Tidiane yi nekk ci loolu nag li muy wone lépp rek mooy ñoom seen cofee la waral tey jataay bii noonu nga ko waxee léegi sëñ moo Modou Mbakke Daaru Salaam mu ngi ci jataay bi ak sëriñ maam Cheikh Fall moom sëñ Cheikh Ndigal Fall waaye sëñ Abdoul Ahad Bousso Alkanini nga xam ne moom moom maamam Cheikh Massamba Kanni moo tax boo nee Murid Saalix la loolu rek moo war a nekk laa xarwa moom it ñu di ko nuyu di ko ziyaara bu baax seex Cheikh Abdourahman Sibi moom it ñu di ko ziyaara bu baax moom it am mbégte ci teewaay bi ci jataay bi ndax lu bari ñëw nañu këram yow yaa nu fa mas nañu fa ànd ci ñaari rakka yi ñuy def ci kii bi ngay wax seen diggante Serigne Kara Moodu Kara moto mi moom it ñu di ko nuyu li ma la wax rek moom daanaka mën naa ne bis ni tey sax la ñu gisee moom nag dafa yàgg am ci nun soofe cofeel nga xam ne bu ñu déggee ci benn plateau rek day wut ay teraanga kii di ko def ci jataay yam nekk waaye bis ni tey yàlla dogal nu door a gisante waaw bis ni tey door a gisante moom it noo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ak ñi mu àndal sëñ Abdourahmane moomu waaye sëñ Pape Laay moom ne Pape an woon na ma démb di ma attaqué na yow da waxoon ne taalibe cheikh yi may sa xarit waaye ma ne ko da ngay jéem a arrière ci ginnaaw rek bàyyi pap kii mu ne ma loolu moom du ma ko nangu léegi damay wëri pap laay ko ngeen ngeen jo diggante lijjanti loolu loolee li muy tegtale mooy ñoom bëgg gin bëgg Serigne Touba rek lay tegtale te Serigne Touba ku bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam te bëgg gi nga bëgg yonent bi dëggu ci yow faaw nga bëgg Cheikhul Khadim ndax Cheikhul Khadim lu mu am ak lu mu def ak fu mu jaar yonent bi salaatu salaam rek a tax kon loolu lu ja jokk la bokk yi ma àndal bi ñuy ñëwit <clears throat> <coughs> maa ngi jégalu. <coughs> ngi woon ci bisub sëñ euh, sëñ sëñ Basiru Coro euh, tubaarkàlla nga xam ne moom yéen ñaar benn ngeen euh, kóllëre gi jàpp naa ne kuy seetaan rek te xam sëñ Gana xam na la ak moom ñu di ko ziyaare waale bu baax a baax moom sëñ Bas mhm. mhm. ba di leen sant sëñ Modou Makhtar Diop. Mhm. Euh, moom it di mhm. kenn ci nun sëñ bi boole nu sëñ Modou mhm. Makhtar. ñu tuddee ko ko. mu yar ko. waaye nag mu boole nu. moom it mu rafetal ànd bi loolu. ak euh, sëñ Modou Sylla. sëñ Modou ndeysaan ok mooy yor sama communication sëñ Modou Sylla mooy sama ménager. sëñ Modou waaw ndeysaan ndeysaan waaw ku baax wallaay. ak euh, sa waayi bopp jooju. Daaru Dieye ma la bàyyi woon ak moom sax nga góor mu ñëw seereel la sa sa bi sëñ Daaru mm. sama grand frère moom nee ko mooy sama grand frère <laughs> ak ñu fi teew di nuyu soxna yu baax yi ñoom it ndeysaan mm-hmm. wax dëgg yàlla am nañu mbégte ci liñ def mm-hmm. muy bàyyi ci béréb yu sori ñëw fekke si jataay bi mm-hmm. maa ngi jël nuyoo bépp di ko teg ci loxo madame si bi madame si bi wallaay ndeysaan xam ne moom bu ma jaaralee ci nuyoo bi rek yàgg naa ñëpp dëgg la di nuyu nag mbooleem àdduna bi ñu ngi mhm. seetaan ñëpp mhm. ñu am yéene fekkee jataay bi ak mhm. ñi nga xam ne euh, ñu ngi ci béréb yi sori waaye ñu ngi ñuy seetaan nuy ñaan yàlla it jataay bi liñ si jublu mooy fàttalante rek ak nafar nafar rek lañ ci jublu bu ko defee yàlla na ci yàlla defal tawféex amiin amiin amiin euh, di nuyu nag sama wasila di Serigne Khalilou Rahman moom Cheikh Mahamadul Makhtar nga xam ne euh, tey moo toogee jataayu Cheikh Mahamadul Makhtar ñi nga xam ne moo nekkoon sunu bunt di sunu wasila kon Mhm. bi jëm ci kër Serigne Cheikh Awa Balla nga xam ne mhm. alaaji maam Thierno nekk ca buntu ba ñu mhm. di ko ñaanal yàgg ak wér moo ngi jël nuyoo boobu di ko jaarale sunu wasila woowu di sëñ Abdourahman sëñ Khalil Rahman waaye jëwriñ lan ji nga xam ne moom kenn ku ne xam na sunu diggante mu Serigne Sidi Mbacke Maxtaar jàmbaar jooju nga xam ne bàyyam ak loolu ko ko ñor ak njabootu kër gi yëpp daal maa ngi leen di nuyu bu baax sëñ jërëjëf euh, alaaji euh, sëñ Gana ci nuyoo yu am solo yu matala yooyu Euh, maa ngi nuy waale ñoom sëñ Sidi tubaarkàlla moom sëñ euh, Modou Makhtar Mbacke sunu xarit la lool tubaarkàlla euh, di ko ñaanal moom tamit yàlla gën ko dëgëral tey suñu waxtaan dama bëgg ñu def ko ci ñetti pàcc bu njëkk bi mooy lan moo waral arrestation Cheikh Amadou Bamba xam nga sëñ Abdou bu sama Maram damaa mës a dégg mu ne tubaab bi boo ko laajoon lan la ko sëñ Touba def du am réponse bi lu sëñ bi def tubaab bi mm-hmm. tubaab bi amul réponse bi mm-hmm. te it bu gisoon ci moom lenn lum ko xeebe publier na ko démb tey door a ñëw mm-hmm. waaye xool nañ xool gisuñu benn tâche buñ mën a xam ci moom tubaab bi munu fee nekk sëriñ bi jóge fi 27 ba léegi ba 2021 ñu génn archives yu bokkul ak yi fi tubaab bi bàyyi mm-hmm. waaye terewul bu ko tubaab bi xamoon bala ko kenn wax moo koy jege publier mm-hmm. ndax arrestation bi mënutoon a ñàkk ci parcours am ndax dafa bokk ci ndam yi mu waroon a jële wala ngërëm wala médaille yi mu war takk ci sama borom mu am ko lan dana am sabab sabab bi dana am zahir wala mu am baatin euh, ñaareel bi mooy méthode bi sëñ Tuubaa daan defare xam nga defar nit ba mu yegg ci suñ borom mu leer ko ne yegg na ci pay bi li nit di wut ci yàlla yëpp am na ko waaye booba fa loolu di la wër yow sëñ bi ndax bari na ci ñu baree bari xam naa da nga ci indi ay seede ñoo xam dañuy wax ne yegg naa yàlla fii waaye lépp lu ma mën a am am sëñ Tuubaa moom ma ko <coughs> lan moo waral ban méthode la ko doon jaare euh, ñaareel bi mooy réussite bi fii kulli fànnin nag mm. ci ndaw ñi ci société bi mm. ci ci ci ci lislaam ci xam-xam ci alxuraan ci diggam ak yonent lan yan matière la ñuy mën a teg suñu loxo yoo xam ne dañ naan yii nii sëñ bi kat ay la yeween liggéey na ci yoo xam ne yu palpable lay nekk yoo xam ne mm. dangay wax teg baaraam ne lii la bi ci njëkk nag mooy arrestation bi waaw jërëjëf xam naa Sénégal moom dañoo bëgg archive mhm. da neex lool waaye daam moom yàlla daa dogal mbiram moo ko waxal boppam xam naa boo spécialisé ci ay archives it mhm. am na ñoom yitte spécialisé ci li sëñ bi bind te moo gën a wóoru nag mhm. ndax lu changé te mooy dëgg te moo ko defoon te moo fa demoon it nag waaw moo tax damay faral di wax ne bu sëñ bi nee waxi bàyyi kenn kontut bàyyi diw kontut ak oustaz diw ak monsieur diw ak yépp kontutul bi alxuraan wàccee ni muy mel nga xam ne dara du taxaw lu may alxuraan mhm. noonu la waxi sëñ Tuubaa mel bu wàccee mhm. amatul jenn wax ju mën a ñëw féete kaw waxi sëriñ Tuubaa jooju mhm. ndax yàlla bu waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw di ko jottalil waxam lay tibb jàllale ko taf leeral ko sëñ Tuubaa yi li muy wax bu dee lu ko concerné la moom bu ko waxee da koy bind te da ngay xool fam jaar wala mu nettali ko ñu ko doy xam nga tey sëñ Tuubaa mënee su koo waxtaanee di nettali ay mbir jaar-jaaram mhm. te loo ci dégg menn magam moom yar wala nga wax ci menn bindam wala lu doomam nettali loolu mënta nekk waaw te léegi dañuy bëgg a waxtaane sëñ bi yow nga bëgg koo teg sa analyse yi bopp wala sa xalaat wala même sax bu fekkee ne tubaab bi bind na mhm. nit xel xalam lay jëriñ waaw war nga xalaat mhm. c'est pourquoi ndax sëñ Tuubaa moom dafa nekkoon koo xam ne tubaab bi dafa ñëw rek ngoor ko wala moom daf ko daf dafa tooñ tubaab bi wala tubaab yee ko tooñ mm-hmm. wala lu xew mm-hmm. dafa war a leer ci bopp nit ñi ndax léegi dañoo jàppee yëf yi ab marché ab euh, comme li ñu tuddee mooy dëkk yi am marché nangam nga xam ne mm-hmm. comme danaa dëkk bi am na marché àllarba ak marché luuma ay luuma léegi lañ bëgg a jàppee mbir mi luuma mooy kenn ku ne di bagaasam teg moom lañ jàppee géew bi ba léegi sax léegi lañ ñu dugal sëñ Tuubaa ci biir mbaar moom du doon mbaarum sëñ bi dañuy maasale waale yi ñëwoon ci jabi ñëpp rek indiaale seeni i ñëw ci luuma bi ñu ne luuma bi daal ku fi wàcc jaayee la fi indi looloo waral léegi léegi du am importance bu boobaa nag boo xàmmee comme lii nga wax da ngay xam ne jabi am na ku ci joox koo xam ne marchandise mu indi bokkul ak marchandise mi gars yi indi woon mhm. te ñun bàyyi woon ñuy jaay ñun bàyyi woon ñuy jaay waaw ba noppi bañ koo bàyyi moom mu jaay mhm. marchandise mii jar moo gën seen mooy seen jàmm ñoom te kenn mënuloon porte porter hmm. marchandise moomu ku sëriñ bi ngir li koy xamee la jiitu ca ña ko doon échange yëpp hmm. noonu la meloon hmm. benn bu dee jëmmi nasaraan bi dajeem ak Serigne Touba tukki beeg ci aju yëpp moo xam lu mu doon li ngay gis mooy jëmmi sëriñ Touba ci boppam dafa am lu ko taxoon a jóg am lu ko fi taxoon a ñëw dafa am lu ko taxoon a jóg am lu ko fi am lu ko fi tax a ñëw waaw te loolu la ci jiitu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay bàyyi message boo xam ne batale ko ñëpp yàlla daf ko yónni alayhi salaatu jox ko alquranul karim ko ci àdduna bi yëpp nga xam ne moom du yonent boo xam ne yàlla du ko yónni yabal ko ci wii xeet bàyyi wii xeet waaye wa arsalnaaka illa kaafatan linnaas mhm. kon moom yàlla daf ko yónni ci ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam boobu nag bi mu ñëwee dafa wax ne dañ maa diggal ma rayanteeg nit ñi ba feeg ñu gëm ba feeg ñuy gëm mhm. ba mu ñëwee taxawal lislaam mhm. nekk bashir nekk nadir képp koo xam ne njubug yàlla gi ñor na la mu bégal la ci raxma jim yor di yërmande yàlla ku nanguwul a jaar ci njubug yàlla gii nag mhm. mu jëflante yow ndax digalul yàlla la ci am mhm. loolu mat na fan ñaar fukki ak ñett mhm. yu yonent bi salaaw salaam woote loolu ba xëy nag di tàggatoog nit ñi ci ajam gu ma junj ko tudde xajatul wadaa taxaw ca Arafat laaj yi saxaabaam ne leen ndax mession bi mat na ndax jottali naa ko wama ala rasuli ila al balaag moom mu jot li message yàlla rek mooy wërtee fa mu laaj hal balaxtu ñu ne ko balaxta ya rasulallah léegi nag lu des kon balligu anni walaw aaya léegi nag ah man day matal naa maa ngi leen ko fi bàyyi waaye na ngeen ma jottali na message bi tasaaroo waaw yàlla ñëw ak aayaam d'accord ne matal na lislaam tey ci moom gërëm diine jii mu nekk muy diine lislaam muy diineem mm-hmm. def ko it muy xéewal ci nun mm-hmm. al yawma akmaltu lakum diinakum wa mm-hmm. atmamtu alaykum ni'mati wa a lakum kon lislaam sosa ci am sofa ci am waaye amatul sos sof moo ci am waaye amatul sos amatul sos ndax mat na mat na ba loolu amee nag yonent bi mu fi bàyyi ko mhm. xam ngeen ne am na saxaaba yoo xam ne sax seeni i bàmmeel la nga siin mhm. seenu tasaaroo ci goxi adduna yi ngir mhm. jottali rasulullahi sa boobee pour loolu taxaw moo waral ñu tàmbalee ko ci ñaareelu xalifa bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne tey mën nga ne ginnaaw yonent bi difficulté yi tàmbalee woon a am tàmbalee ci sayyidina Abu Bakrin siddiq ba waral xuroo bu ridda am ñenn ci jullit ñi féeteerlu waxoon na duñ joxe zakat mu ne leen déet yonent bi nag doo fi bàyyi nangam jóge fi yeggul ngeen ne doo leen def nangam takk xare ak ñoom Seydina Omar di ñaareelu xalifa bi rasulullah nekk amirul muminin abul hafs bi ñu koy faat mooy xalifa bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu tax ba mu fi jógee Seydina Ousmane ibnul Affan bi ñu koy rey am na quatre-vingt-trois ans te mooy xalifab bi sallallahu alayhi wa sallam boobu di mm-hmm. amirul muminin mm-hmm. sayduna ali bi ñu koy faat mooy xalifab yonente bi alayhi salatu wasalaam mm-hmm. te ku ci nekk position bi nga taxee woon sàmm li fi yonente bi bàyyi woon rek ko waral difficulté yi na gën a tàmbali ci diggante sayduna ali bi mu génnee àdduna sayduna Ousmane bi mu génnee àdduna sayduna woote ñu war koo topp Muawiya na moom mënagul a topp jëm mi ah, euh, ali yu te xamul ñu kan moo rey Ousmane Mm-hmm. wute commencé am mm, wute tàmbali am mm-hmm. te mel na ni defe naa complot bi ñu waroon a guddi gi ñu war a rey Ousmane mm-hmm. gi gi ñuy rey war a rey Seydina Ali coup d'état bi ñett ñëpp la concerné woon concerné woon na Muawiya ibn Abi Sufyan concerné woon na Omar ibn al-As concerné concerné Seydina Ali mais Seydina Ali rek moom la coup d'état am essegul de moom bañ ko faatee doomam war a toog am na lu mu indi defe naa lu bari jànges na ko loolu nag bu amee ca diggante Muawiya ak Yazid ak lislaam nangam lépp benn bu ñu boo koy xool day nuru nuru ak wuute te fekk suuxat li fi yonente bi bàyyi woon la rek ngir samp ko mhm. ñoom ñooñee bañ jeexee ñu topp seen ginnaaw jeex ña topp seen ginnaaw jeex ku ñëwaat ku nekk kuy yeesal ngay doon mhm. sëñ Tuubaa mii nag dafa ñëw bokk ca ña ñëw ngir di yeesal te annoncé ko boppam. Mm-hmm. bi mu ñëwee ba lislaam agsee moom bi mu agsee moom sëriñ bi ci boppam. Mm-hmm. lu gudd la daay moom bi mu agsee. Mm-hmm. annonce bi mu def rek moo lay wax moom fan la jëm. benn lislaam moo ko tax a jóg. yeesal sunna su Yonent bi alayhi salaam moo yitteem. lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul garra wa indi ahmad léegi nag ginnaaw yàlla moom diine jim reconnaître mooy islaam te moom moom la bëgg a yeesal mu won la ne loo mën a gis ma di ko def xamal ne diine ju dul islaam yàlla gërëmu ko te moom laay yeesal ndax yi xew yépp xam nga ne dala ci dugg ndax kii lislaam jëlulul yan te yëggul fenn fi mën na bañ a jàpp ne loolu ci la bokk mu ne nag diinun siwaa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu mu won la it ne la bu la doyul ba tey man sama diina mooy islaam diini ilal jannati l islaamu wa huwa ala diinun siwa wa sa nasu min allah inna diina inda allahi l islaam ba mu ne càpp nag ci toolu bi lislaam boobee fas yéene koo yeesal yor gopp xam-xamam nag di jàng di jàngale di yare ku xool njëlbeenu fanweeri ati sëñ Tuubaa yëpp mhm. génn loolu jàng jàngale ak yare ak yare mhm. mi ngi ci doon keppaaru way juróom mhm. sëñ Mbàkke Mor Anta Sali mi nga xam ne baxrul ulum namirul ma mawruut géeju xam-xam di naanuwaay di balluwaay ba jommal ñëpp ci xam-xam jaaxal ñépp ci xam-xam ba ñëpp nungu ne sëñ Tuubaa mii de xam-xam bi kawe bi nekk ci moom ub na boppam ñëpp mu nungul ñëppit nag ku ne la nga am bu dee xam boroom xam-xam yi mu mu wër leen mhm. bu dee walli mu wër leen fa jultu bayna al ulama wal awliya mhm. waaye yemu ca yim fi fekkoon ñu baax ñi xàll ko mu dee ay awraat yu ci nekk mu jëfandikoo ko mhm. nekk koo xam ne it moom jëmmi sëñ bi ci boppam dafa nekk nit koo xam ne dafa simple ba noppi nangu dogalub yàlla ci ku mën a doon moo tax bi mu ñëwee ñim fi fekkoon sax ñu xàll ay yoon dafa nangu na ñooñu sëriñ yi ay sëriñ leen ci moom ndax ginnaaw mi ngi door a jóg te am na fu mu jëm boo bu ñëwee dajji li fi nekk rek danañ am lu xew te ñi jiitu woon ñëpp nekk ay jàmbaar ci lislaam mu nangu na Cheikh Abdou Khadir Jeylaani moom jàmbaar la Cheikh Ahmad Tidiane Chérif jàmbaar la Achajali yi jàmbaar lañ buy lim ay machaayix xam mboole leen ci Mm-hmm. boo demee ci ayima yi nga xam ne ñoo ŋànk yëf yit mm-hmm. nga xam ne mooy mazhab mazhab yi mm-hmm. mu nangu imaamu maliki nangu shafii nangu xanafi nangu xanbal nga xam ne it dajjiwu ca kenn dindiwu ci mbirum kenn di dox ca loola nag kon mi ngi ci sof gi ba léegi mi ngi ci sof gi nangu ñooñu seeni yoon di ca jaar waaye bi loolu lépp amee li tax ngay xam fam jëm mooy ñim jëkk a wuuteel mooy ku wuute ak atteb yàlla sëñ Tuubaa dafa juuyoog yow ñim déclaré guerre mooy ñi fi bàyyi yàlla ak yonent loolu ni nga koy xamee mooy ci sëñ Tuubaa képp nga mës a déggee dafa daa mel dafa yaakaar naa Ibrahima Codé Diop la mhm. mbokkum la joor moomu ba mu bëggee jébbalu ci moom li tax yu bari day xew mhm. fi ne sëñ bi ay sew-sew da ca nekk mhm. xareb Samba Sadio di xareb si am Ahmadou Cheikhou mhm. ba xare ba jeexee fekk da doon xare ak waa Kajoor gañee leen ay yoon tubaab bi làquti ca ginnaaw faral faral faral ñee ànd ak ñoom bañ bañ bañ bañ bañ gañe ko léegi nag la jógee woon ci xare ba ku ñëw bëgg a jébbalu sëñ Tuuba bu la laajee xareb Samba Sadio ba loo ca jëlee woon ba nga ne ko mi ngi nii annoncé ko ko mu ne la bala ma laa nungul sa njébbal danga koy delloo la nga jëlee ca xareb waaw Ibrahima Koddu Jóob mi moom nangu naa delloo wàllam ñëw jébbalu sëñ bi léegi nag problème mooy ña doon ay xoobaat wala ñu ne woon boroomi xam-xam lañ mhm. am gisiin wu wuuteeg gisiinu Sëriñ Tuubaa yi ci dem leen delloo ji waaw ñu ne daa xeeb borom xam-xam yi fi nekk mm-hmm. ab atteem ak ay atte woote na mm-hmm. am na sax ñu ci def ak moom jataay mm-hmm. mu attee leen ca lu leer nañ mooy bañ ko laajee ba mu leen laajee ne leen ban ne ko li ngay alal di ngay delloo lu tax nga di ko delloo mu ne ab jullit ab jullit dafa araam ci bokkum jullitam alalam akub deram te loolu addisu yonent bi salaa ndax inna dimaakum wa amwaalakum wa aaraadukum aleykum xaraam mhm. kon loolu xadis la mhm. waaye bañ ko ci bëggee tiiñal nag da leen laaj na leen mhm. lu tax ngeen faat ko ñu ne daa wooteek nubuwa daa wax ne ab yonent la mu laaj leen ñu ko wax ñu ne ko ah loolu de waa Kajoor a ko wax ah ñooñu kat moom motuñ ci àtte nag ndax ñooñu moom la doon joteel ak ñi toog jékki jékki-jékki bali wàcc seen kaw ak mhm. maanaam ñi ko ko jiiñ ak ñi xare bi xëy dal ci seen kaw mhm. ñooñu mutuñu cee atte te mm. tuuba yéen ko teg te xam na ne mënuñu koo surxal ci mel ni mbir mhm. boole ci lu bàyyi ko ci këri wóor yi lu lungu mu tàbbi fi moom di ko faxas loolu indi na xat-xat ñu jàpp ne nag kon kii bu ñëwee daf leen di déranger wala day yàq seen programme bi ñu yor. Mhm. te lekk loolu moom suñ ci wàllu tux koo jóg. Mhm. loola nag ba mu amee. Mhm. sëriñ bi nekkoon kajoor fa ñuy wax mbakke kajoor. lay gën a confirmer loola it mooy xasidaam gi gi muy waxe xaalu li yarkat yowma bi salaatin taxus jawaïsa tuxni kulla ma xiin fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wala sura bi xeyran almi wa diin kon buñ ko bëggee jàngloo jëmloo ko ci wuur yi mu ne du ma ca dem ndax man yàlla daf maa doy te doyloo naa ko te bëgg poñe xiit nag du ma yóbbe mukk dem ci ëtti wóor yooyu léegi nag jëmmi sëñ bi bët bi ko àdduna di teg di ko xool li nax nasaraan bi mooy li nax nit ñi ci moom nit ñi dañoo waru ci sëñ Tuubaa xurural wara xarra nasaara bi kaydihim wa zannu zununa wa zununu xurur kon ay njort am na mhm. sëñ beeg yëngu bi nag am kajoor dagg bawal dagg siin dagg saalum dagg fekk na booba tubaab bi moom mi ngi ci réew mi mhm. moom nag ci xelam mu gàtt mhm. mu jàpp ne ku mas songu nam la def bu ko defee sëñ Tuubaa mi am ci lim bëgg te fekk na sëñ Tuubaa day ko yàlla waajal koo xam ne tubaab yii dañoo mënta ñàkk ni mbirum sëñ Tuubaa mënuñ see ñàkk déedéet day ñaari mbir daje gi daa am sababu sayir am sababu baatin mhm. sababu baatin bi mooy yàlla nam ma jox sëñ bi dara ji ju kenn amut mhm. te fam ko tàllal di ko fa wone mhm. kenn nanguwul a jël ndax lam ca gàll mbër mi fi mën daal boo ko daanee war a doon roi des arènes waaw te ku ñu wax si Abu Muhammad al Kunti yi dafa wax ne inna allaha taala kachafa lil awliyai an maqamin azizin indahu mhm. wala yunaalu illa bi balayin min azami lbalwa fa lam yataracha ila si ahmad bamba xaadimu rasul mhm. daraja ko yàlla wuññilee gaa yëpp mhm. da nga mu waaye nag wala yunaalu illa bi balayin min azami lbalwa dee su jot mukk lu dul nattu ba gën a rëy te gën a kawe waaye bi ko yàlla gaaralee fa lam yataracha kenn posewul candidat ku lu sëñ Tuubaa ci loolu ngay dégge te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko baa mu doon ku niy baal ndax lim yor moo ko moom waaye bëgg na la koo jox nga am indépendance bu toll ne loo neex dunde ko ko te bu ëllëgee kenn du amul ay ndax ku deful na nga def du ko man te def nga weesu la ndax ba mu ne ku ko bëgg yow rekk tàllaloon ndax lam ca gaar tubaab biit booba ñëw di noggatoo tabbi ci biir Afrique di noggatoo yor ñaari gànnaay muy xëpp xupp xëpp la alal nga noppi mooy jënd la wala mu xupp la ci gànnaay sëñ bi na ñaari yooyu nag kenn du ko man ci man ndax man lastu aqaafu durra xalqin ba'da ma fawaltu amri ila rabbi sama ak wala su arju wala axsha siwa maliki li annahu jàll yuxnii nii wa yunjinii du ma ragal kuma ma xupp ndax yàllaa may sàmm du ma faale ku ma xëpp ndax yàllaa may woomalal tubaab bi nag jorte ko ne sëñ bi kat ñi fi jiitu woon tey woote lislaam te jaare ko ci turu jihaad sëñ tubaab mii daa ñëw ngir yeesalaat lool xam nga tuuma lañ ko teg moom mhm. ndax booba mbo mbooloo maa ngi bàyyi ko fu nekk daw di jëm si sëriñ Tuubaa di ko jox seen bopp adduna mhm. dëgmal si ko aw turam tasaaroo mhm. riir mi bari tubaab bi jàpp ne kii kat ñi fi jiitu woon tey xare te woote ci turu lislaam xare boobee ñu doon takk moo tax sañ Tuubaa mi jóg te fekk na sëñ Tuubaa tax koo jóg tubaab bi àdduna ji muy wut ngir bëgg moom nit ñeeng not leen adduna ak ñuñ adduna wuti sëñ bi sëñ bi woon ko ginnaaw ñu ne kon nañ fexe ba teg ko tuuma yoo xam ne buñ ko ko tegee te ni koy xamee mooy fi ne amuñu dara dara dara dara lu leer te kenn mënagula koo génneel ba léegi ci jenn tuuma juñ teg sëñ Tuubaa ju nekk dëgg amut te ñoom bu tooñ amee ñooy tooñ mm-hmm. sëriñ Tuubaa jàng ak jàngale ak yare la nekk ak am lu mu bëgg ci boroomam mm-hmm. te la mu bëgg ci boroomam faw ngir mu am ko faw mu jaare fii mhm. ndax ni koy xamee bu dee sancub dëkk la nit ku baax daan def sanc na dëkk door dem ci géej gi mhm. bu dee taalifi téere taalif ni téere door dem ci géej gi mhm. bu dee wàccewu nit wàccee ni nit door dem ci géej gi yar tërbiyee ba wàcce leen bu dee maqaama xut bu samaan tut jot jox nañ ko ko ca daarul xudus te manqué ne booba ñeent fukki at te booba demagul ci géej gi kon lan lan lan lu ab sëriñ di yut wala nitu yàlla di wut lu sëñ bi amul lu tax mu jànkonte waat ak yi coono bu doon daa dem ba ñëw door a sañcu dëkk wala mu dem ba ñëw door a taalifi téere wala mu dem ba ñëw door a defaree nit wala mu ñëw ba dem door a am maqaamam xut boo ki xawsu waaye lu ci nekk jëkk muy génn fii mu nekk am na ko ba noppi kon jàmmaarloo gi moo mëntoon a ñàkk moo tax muccal nit ñi ak xettali leen doon la muy jur waaye jëmmi tubaab bi moom nam jàppe woon ñi fi jiitu woon rek la jàppe woon Serigne Touba waaw li Serigne Touba doon sëñ ma bañ ma ne ko mm-hmm. ñaari mbër bu nekk gunnee kirtim kàjj ju jëkk ja mm-hmm. ka man xam na kan man xam na roppee wees mm-hmm. biñ ne kàjj ñoom ñaari rek xam na ndax li ñu koy xamee sëñ am mooy bi sëñ bi sëñ ci Touba Touba bi tàmbali woon nañ faa yónnee ngir bañ mu sañ ci Touba ñu ko galgal waaw waaye boo demee ca duwaawul kabir da ngay xam ne ñoom seeni xalaat lañ yor sa sëñ bi ci yàlla lay dox ndax dana li tax Touba ak Daaru Salaam gënal ma ci dëkk yëpp sellug yéene li ma ko sanc ak ndigalul yàlla li ma ci am mu tànnal ma ko mhm. kon ndigalul yàlla la ko sanc yéene jim ci am nag mooy jaamu yàlla képp sañcutoon dara ngir def ko ab camp mhm. wala muy programme ngir bu bu àdduna yëngoo wala dara xew déedéet mhm. moo ne teewul de ba yàlla dogalee mu jóge dëkkam boobu di tuubaa dem Mbakke Bari 29 mars dameel Samba Law ba Penda jébbalu ci moom da nga bàyyi xel ne doomi ceddo yi dañoo dawoon jébbalu ji sëñ Tuubaa bi tubaab bi réetaree réew mi mhm. dañoo jébbalu ji sëñ bi ñenn ñi daw tafu ji ci moom pourtant dammel Samba Law ba pende bi mu jébbaloo sëñ bi andi na ay mbir bi mu jébbaloo bi mu loolu bokk na ci li metti Leclerc metti gouverneur général xanaa xamoo looloo waral ca mois de juillet mhm. ba ñu convoqué AOF mhm. lettre bu sëñ Tuubaa ñëwul ngir di ko gàllankoor ngir bañ sëñ Tuubaa jot ci la lan lañ ko bëgg a teg ci tuuma faalewu leen du leen wuy si daa ñëw ngir yëngal réew mi am na mbooloo tegu leen fenn mhm. te sëñ bi moom jotut bataaxal boo ko convoqué boleke leetar bi dañ ko boleke ngir mu woon ngir ñu woon tubaab bi ne ko kii respecté wu respecté wu la te loola lañ ko waxale mhm. waaye moom moom moom ci ndigalu yàlla lay dox mhm. ngir teggi tuuma yooyu ak wane ne nekkul foofa ak li mu bëgg jërugul te yàkkamti na ngeen xaar daje rek ngeen bëgg dana am waaye man dama am beneen buur bu ma mu yàlla mu bokkut ak yéen kuy seen buur ndax àdduna seen buur te man yàllaay sama buur looloo waral mu bindu leetar jox maam Thierno ngir mu yóbbul ko wan leen ne man kat jaamu yàlla laa buy jaamu yàlla sama borom te du ma ko boolee kenn di kuy dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu leen déglu rambaaj yi ak yàqkat yi ak fenkat yi aw ma yitte ci àdduna jii ngeen nekk li ma yitte woo ci yàlla mënoo leen ci dara baal naa leen baal naa ñu leen wër <laughs> kon mu am na position bu mu taxawee moom mhm. jëmmi Serigne Touba mhm. waaye li ngay xamee li ngay li ngay xamee ne mhm. yëf yi mbir a ci mooy li la koy gën a xamal lool mooy imshi walla taxsha darar ji ko rasulullahi wax demal nag te bu ragal lor mu ne xamit man yaxsimuni min ad-darar min kulli shaytaan wa jinni wa basar kon am na ay yëf yu ci daje ñoom saayir lañ jàppoon te fekk mbir mii daa mënta jàkk léegi ñoom pexe yooyu ñu doon jàppe jàppe ko nu ab jihaadkat la jàppe ko nu dafa bëgg a indi guerre jàppe ko nu dajale mbooloo ngir am doole dal ci kaw nasaraan bi fekk loolu tux koo jóg looloo waral ba mu jotee ndigal lu bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñoom it ñu takk seenub xare ngir war koo jël si mhm. ba mu jotee ndigal dafa génn moo ne moom de waxul naa dem ngir wujj ak jàpp mhm. waxul naa dem wujjub convocation waxul naa dem wujj tubaab yi dana génn naa sa kër ngir liggéey rasulullah kon tubaab bi prétexte la waaw ci mu bëgg a def waaw waaye moom yàlla lay wër waaw moom lay wër mhm. te li nga koy xamee mooy nee na dogal bi ni ngay gëmee ne it yàllaa leen boole dogal la mhm. ba muy wax ci gisaaw chekko dana xaraj yow ma sabti rabi asar ama jay sasin mhm. fii bayti la si banaytuha fii ardi jolof baax dama atat nii barawatu amiri ndari lati jaraa maa jaraa baynahu min al qadar Mm-hmm. am mbind ma de mm-hmm. kon dogal la mm-hmm. moo waxal boppam ne génn naa sama kër googu di Mbacke Bari fukki fan yaa ñeent la waajoon ngir Bàmba rabion safar la waaj jëm ci tukkeem bi ba mu waajee ñu ne ko bàyyil ba beneen mu takki bagaasam waaj jot ndigal génn mu ne ginnaaw ba mu ma dikkee leetaru góornóor mi nga xam ne dox na li dox sama diggante moom ciy dogal kon dogal ba ñëw na muy dogal yàlla li nga koy confirmer yi moo waxal boppam ci biir xasite gi na ma dajeeg armée ba ca béréb bu ñuy wax jeewal yoor yoorub gaaw loolu di ko ca bindal ba mu leer nag hmm. boo jàngee ji saw shakur alatu fi jawaab bi abdoulatif hmm. moo ko ci leen boppam hmm. moom la sëñ Moussa Kay wax naan boo ko xamul yéeral jasaawu sakuur jawaabu abdullahi loola moo wóor mhm. ne dagoon ko nag dem gi wolof nasaraanu mhm. te kon bileehi ñëpp dem niiraan mhm. kon sababu zahir bi mooy tubaab bi dañoo ñëwoon ngir soppi suñuy culture yàq suñu diine not ñu ci ay gànnaay ak alal sëñ tubaab bañ ko nu not ngir bëgg ñu am suñu indépendance ci côté boobu ak moom suñu bopp beneen côté bi ci des mooy liggéey bi mu war a liggéeyal yàlla borom bi subhaanahu wa taala te war koo liggéey fu sori mu dajeeg ñi moo tax ba muy wax ne ne dalla dalla alladi qad zanna ni asira gayru lasi yu yassirul asira ki dof dëgg mooy ku ma jàppe prisonnier kon jàpp mooy ki réer te dof man maay ki yombal lu jafe kon yombal lu jafe mo mooy mooy mooy fexe ba dagg buum yi rek may nit ñi ñu moom seen bopp dund seen diine niñ ko bëgg a dundee te doxee ko nañ ko war a doxee. Mhm. te booba nasaraan biir seen yitte yëpp weesuwul faytaalub diine ci ci dënd bii rek. Mhm. Mhm. sëñ bi nag am ci ay engagement yoo xam ne daf koo jël ndax booba ginnaawale nañ ñoñ diine di leen xeex di foyee alxuraan di taxawee ci meneen melokaan mu ñëw moom ngir yeesal loola. loolu nag moo indi digganteem ak tubaab bi mënatuñoo seere Serigne Touba mënatuñ ko supporter ak ceddo yi nga xam ne sëñ Tuubaa ni mu leen xoole ak bëgg ñu ñëw ci moom ci yoonu jub te bàyyi yoon wan nekk mën a gënoon wan a di comprendre loolu mm-hmm. yenn sëriñ si it di yenn yi soxna yi xolub yi soxna jàpp leen ci mbooloo mi fàq di jëm jëm ci sëriñ Tuubaa looloo waral bi daje bi amee ñi ñi seetaan ñi doon seetaan a ëpp fi ne ñi doon seetaan ñoo ëpp mm-hmm. ndax ñii li sëñ bi indi jàpp nañ lu bees la te fekk na lim andi du lu bees. lan la indi mooy lislaam ji ci boppam la ñëw ngir ñu pratiquer ko teg ko ci yoon woo xam ne wu leer nañ ñi lay doon te bàyyi ay caaxaan te jëm ci yàlla tam nekk dëkk. nungu ne buur benn la mu yàlla borom bi subhaanahu wa taala lenn ndaw la am tànn ko jiital ko. muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. ab téeréem muy alquranul karim mu teg lu leer lii. leneen lu ca waay bëgg dugal li sa bopp Sëñ Tuubaa nanguwul lool. loolu nag te ñee ragal ñii ragal nasaraan bi ba jàpp na ñoo yàlla te sëñ Tuubaa xam ne benn buur rek am mu yàlla mhm. kon day mel ni sëñ Amidou mhm. dangay ngay dégg ne sëñ Tuubaa du ko toog ne rek tubaab bi ñëw na damay takkee di yóbboo di takkee di yóbboo mhm. léegi accident ci ko ne Ahmadou Bamba naa ko takk yóbbu déedéet wala sëñ Tuubaa tubaab bi dafa ñëw rëdd ne man samay territoire bii lii laa fi bëgg te loola yoonu lislaam néew ci sëñ Tuubaa di ko lijjanti sëñ Tuubaa lijjanti mbooloo xëcco wuti suuf xëccoowu ci dëgg bëggut ak pal mës ta wutug lijjanti dammeel ak da teeñ ki baraaki na moom daal yàlla la bañ ko ca jëm ak rasulullah toolub islam bii mu bañ ko ko ñaaj mm-hmm. la ne bala koo kenn ñaaj ñaaj ma mm-hmm. lu ko jotaleeg tubaab bi weesuwul lool mm-hmm. tubaab bi sëñ tubaab daana ko wax daana wax ne sama digg ak nasaraan bi la nii rek la kuy def ak kuy tere kenaan bu mu fi amee ak ki nanguwul la bàyyi waaye ban ne kàjj ba pënd bu ne kur ka doon defe ngay def kay tere tereetut léegi ñaari problème yu am muy wax nga problème buur yi mhm. foofu def na déclaration solennelle mhm. walastu aqsa wala arju siwa maliki mhm. li annahu jàll yux nii nii wayun jii nii kon loolu problème la ku ne xam na ne Sénégal buur ya fi nekkoon ak tubaab buur yi li ñu mënoon mooy dugg ci dëkk taal ko donn soxna ye jaay kii yi taal dëkk ba demaat feneen dajale dagg yi rawdu shayatin ji sax leen gën a metti aw kay fa yabxasuni xubbul xutaami ilaa jawaari man duuruhum rawdu shayatin loolu leen gën a bëgg poñe xi dong nu may yóbbee ci ñi nga xam seen ëtt yi ëtti seytaane la loolu gënoon li problème sëñ bi dafa am fit kon loolu déjà problème a ngi noonu euh, sooge tàmbali ñi di jébbalu mm. ñii di ñii di woyefal seen diggante mm-hmm. moom moom mu door a des escalier tuwaay ah. kon même bu doon l'islam même bu doon l'islam gi mm-hmm. not gi buur yi notoon mm-hmm. réew mi tubaab yi not ko buur yi ñaar bu ko suñ tubaab dajji woon rek nit ñi am liberté sax mën naa bañ a yegg ci le waaw xam tubaab bi ñaari pouvoir yëpp ko fi indi woon pouvoir ak spirituel bu fekkoon ne sëriñ yi kese ko ñor du rey buur yi mu rey ak dammeel yi mu dammal rey xeex ak ñoom xeex bi lu muy jariñ kon booba waaye xam na ne pouvoir boobu booba ñoom yooyu pouvoir lañ am not béréb yépp mhm. da mbay sa bay ba noppi sëñ Tuubaa fi ne nit ñi dañ koo amee njukkal sëñ am mhm. léegi-léegi dékku naan sëriñ si ngeen di liggéeyal sëñ am xoolal yanoo suuf bawal mhm. ba jolof te buur yi daanan toog ba yàgg ñu jekki-jekki seen ku bay ba mbayam set mhm. muy toog ci pénc mi di féexlu mere gum leen mere donc tax mu ne bu subaa nañ bay mbooy gi pour toog gi toog ci pénc mi nañ bay mbooy gi tubaab bi maanaam li ñu suñ tubaab dindi rek laa waxuma leneen wala mu ne nañ wut ay jali suuf jal ko wala nga bay ba noppi buur yónnee fa wala nga yor sa jur di sàmm buur yónnee fa na ne ko na ma na ma jox damaa soxla ndawal nga yónnee ko ab gàtt wala nga yónnee ko ah, ah, aw nag wu ndaw mu ne la nekk mu mu jaarat ca ga teg loxo ca gétt waaw loolu Sëñ Tuubaa ko fi jëlee loolu dong doyoon na loolu dong doyoon na mhm. looloo tax nag mu moom mu ne nag bëgg puñaxiit akum koom mhm. nu mu yóbbee ñi nga xam seen ëtti ëtti seytaane la fa kay fa yebo axadun xubbul xataami ilaa jiwaari man duurum ray rawdu sayafitin ñu jàppe ko loolu ak ak ak ak ak ayib mooy jàppe ko ak kon ak ñàkk a yeewu ak bëgg a dund doo xam fooy jaar mu ne leen kat in kaana aybi ya zuhdun fi xutaamihimu fasaka aybun nafisun laysa yusini bu fekkee ne daa woon ginnaaw gi ma woon ginnaaw lii moom moo leen di metti loolu moom mooy sama ayib man ayib ju gànjare law léegi xoolal jali suuf ku la tàggaleeg loolu te doo dégg kenn kun la wax ne la moo tax loolu dañ kat sëñ bee ñëw rek taxaw ci digg bi laalatun dammeel laalatun buur sëriñ am jàmm ñépp am jàmm mu fexe ba xeexle bañ ñu amuk noteel bëgguñu moom seen bopp li Cheikh Abdourahman di wax naan xubbul xadimi ala sudaani muftaridun isxara rasula min raqil mudillina Cheikh Abdourahman Cheikh Abdou Khoudous nee na nit ku ñu laal dëgg-dëgg bëgg seen Tuubaa farata la ci moom ndax daf leen a goreel dog buumi jaam diine mii mu fekk ñu tër ko loolu suñu ahmadu Diop wax wa saaka lasi qad jaa wa diinu mayitun fa ahyaaw shaxsan fil amakini machi kon loolu dafa am lu mu indi mooy diis ci xol yi ñi mënta attan loolu tubaab bi jàpp ne comme ñi doon ñi doon wër wër ñi doon wër wëraan ñëpp am na lu bëgg léegi nañ fexe ba dal ci kaw te fi ne li ngay xamee loolu sëñ sëñ am kenn du la wax ci archive lu sëñ Tuubaa tontu bureau góornóor lu may ñaari baat dong ci archive kon nañ wax na la lii la sëñ Tuubaa wax bi mel ne lii lee rapport bi ba noppi mhm. alxames la neuf jàpp neuf heures demi la procès bi tàmbali ba onze heures et demi mhm. te quarante cinq minutes dëkkoon naa fi de pourtant bi ñu liiree rapport bi ba noppi rapport bi buñ ko doon wax fii dangay tudd ay nit chef de canton yeeg dammee léegi nangam kenn ku nekk dugg na ci rapport ba indi tuuma teg ko ci kaw Sëñ pour pourtant bañ ko tiimee riir rapport ba nopp wax yi ko accusé ba noppi benn baat la benn baat la Sëñ benn nañu woo ñu ko wax doo liw ci leneen nañu woo ñu ko wax rek la wax te xam nañ ne ñoom ci ay liñ nekk wóor leerut kon duñ ko duñ ko nekku fa naan waxuma ko defuma kook li ngeen may jiiñ ko mu do nu ma ko waxee ak man ci jàng jàngale laa nekk ak déedéet dañoo riir rapport bi ba nopp mu ne nañu woo ñu ko wax du tudd kenn fu mu nekkul te du fa nekk du weddante ñoom ndax comme ñoom dañ leen a wax ñu jàpp loola ba di ko wax moom amatut ak ñoom wax ña ko wax la amal affaire te ñëkkuñu fi mu ne nañu woo ñu ko wax mm-hmm. weer na lay wum fay lay amul xanaa jël signature am ba mabbe ca fen yan mabbu yépp te moo di xul huwallahu ahad te lay confirmer bu mooy xadamtuma banaahu kulla man jahad min al fira bi xul huwallahu ahad fen yeeg la ma fa fekk yëpp ñu sos ko ci ay fen maa ngi ko màbbee ci xul huwallahu kon def na démonstration waaw parce que ñu lay tere nga egg si kàbbar 45 minutes nga koy naafi la démonstration la ba noppi na ku ma woo ci yéen loolu da ko laaj sëñ Modou Mamoun Niang yàlla na yàlla gën a yàggal ko fi. amiin moom sëñ Afé Niang. Mhm. secrétaire njabootu sëñ Tuubaa yi la. Mhm. mas na dem di ko laaj ci yoonu géej géej di ko laaj yu bari ci sëñ bi keroog dafa daanu ndeysaan. Mhm. mu ne dafa am benn tubaab bu ñuy wax Gaspard. nee na damaa lay dafa sëñ Blaat la àndaloon dem Ndar Kër Masouran. ñu fekk ko fa. tubaab ba na ko na sëñ Blaat yow de sa bàyyi sëñ tubaa xaw ma lu lu ko yàllaam ji defal waaye jaral na daan na ko ndax ba mu bile julli bire góor noonu fa ma fekk man loolu ko tubaab bi wax gas fa na ko fekkee naa bi sa bàyyi di julli bire góor noonu waaye daan na ko la gën a yéeme mooy ba mu jullee ba sëlman ne ne woo ci yéen nee na kenn nekku fa naan diwala woog dañoo jekki rek solo noom mbedd ñoom ñëpp daw génn bi ba mu jeex tàkk sëñ bi doo nga fa desaatoon boobu ndax tiitaan ju leen jàpp ana ko ma woo ci yéen loolu gas baa la ko nettal da ko sew sëñ Mouhamadou lu maamun ñeen bañ ñëwee teg ko seeni tuuma ba wax la ñuy wax ba yeggee lii rek la leen tontu nañu woo ñu ko wax. arrestation euh, euh, arrestation cent 10 août 1895. événement la woon. waaw à 14h. Mm-hmm. moom bind na tubaab bi bind waaye dafa mel ni. Mm-hmm. biñ ne arrestation bi am na. Mm-hmm. sëriñ bi dem na. liggéeyale boromam. boromam. ñeneen ñi sëriñ bi tubaab bi teg na ko. loolu événementiel la. waa xam nga moom ba muy dem. asiiru mahal abraari xiina asiiru wa zanna al ida anni hunaaka asiiru moom ba muy dem yàlla la àndal ànd ak yonent bi ànd ak ahlu noonu jàpp na lañ ko jàpp 10 août 1895 lu mat di fàttali ñooñ jamono la bis bu ko gën a soge amul mhmm. bis bu ko gën a daw yaram amul bis bu ko gën a diis amul ku koy jàngat ku ne danga nga gëmee ci sëñ bi ngor ak jom te histoire war di ko nettali ñu bañ koo bàyyi rek loolu donc ku muy dund ci sa xol ba bis bi ngay dugg ci bàmmeel doo wutal sëñ Tuubaa moroom te lenn intérêt mu fekk ko ci lenn njariñu saa yi lu ko concerné fekk ci sëñ Tuubaa yàlla kise rek la amul amul dëkk bàyyi ko mm-hmm. amul njaboot bàyyi leen te lépp di tuuma nga mën a xëy ba fi ñëpp sag njaboot ñenn ñi toll ci ndaw ñi mu ci ndaw Cheikh Mouhamadou Lamine Baara bu koy ci lu muy toll day toll ci ay ñeenti at ak juróomi at mm-hmm. du bari hmm? nga xëy bàyyi ñëpp defar sa ñooñ ba lañ am ci bëtin am ko ci cërub yàlla bu ñu jógoon jaayante mën nañoo xare ba jeex tey ñu di ko nettali di bind di wax ne 10 août 1895 ba tubaab yi ñëwee Mbakke bari xare ba ca la maam yi diw demoon ca yi diw faatu woon ca la maam yi diw faatu woon keroog daje ba sëñ yëngu waaye moom yëngu yàqalut kenn dafa seere lépp parce que yar nañu ñoom ba def ci ñoom loo xam ne. Mhm. lu yëngu lu mën a xew rek danañ xam li li am. sëñ am xoolal 10 août 1895 nga julli fajar ci sa jàkk ba noppi waaxu jëm sa kër jot ndigalu bu ci tàbbeeti. ndax digg bi daa jot njaboot gépp nga fa tàmbali soxna fat ja ba ñi ñi fi ñi feeñoon ñëpp booba ña nga mbakki bari mhm. ngay takkalu say bagage yenn gaale jaarale nañ ko ca gannaaw si jomam ak wàccaayam ak dëgëram xam na ña dajal moom mu waaj mhm. wàccaayam mu dëgër tàggatoo ko njabootam wane ne moom fu mu jëm xaraj ci yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaar kon li ma tax a jóg mooy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi bàyyi njabootam ngoogee bàyyi dëkkam yooyee bàyyi magam ñooñee bàyyi moomeelam yépp jëm ci ñoo xam ne yàlla rek lañuy bañ ak rasulullahi ak mbiram xur wuñ ma sa daje ñoom nasaraan yi ñi leen fa daan fekk ab xare la ñuy takk ku am maqdoom indi ku am xeet am ko andi am jël ko am ñaar moom mu war xawlu layam di naaru góoram jëm ci ñu takkub xale yor seeni gànnaay ba noppi bañ ko te yorul genn gànnaay ba noppi nag li mat di bàyyi xel mooy bu neexoon sëñ Tuubaa yëf yëpp jeewal la yem jeewal xale la yem sëñ Moussa Ka nee na ma soon naa fanaan jeewal ba muy dem ca jëy sësin ñu woon ko fa mbooleem lay xaloo xew ba dem Tuubaa ne mënoon naa wàññi koo foofa waaye kon du am yii moom boole jaroore sëriñ Tuubaa te moom moo giñal boppam it naa ci yàlla giñ naa ci yàlla ca jeewal laa tàggoog nasaraan te genn gànnaay billaahi faaraqtu nasaara jeewali wa gayrihim qat an bila tanaawuli bila tanaawuli mooy ci dama yorul genn gànnaay kon am na lu xew léegi te ànd gi mënta ñàkk loola doyoon na histoire yoonu murid ñu di ko waxtaane bu ci Sëñ Tuubaa yemoon képp doy na daje gim daje ak ñoom jeew daje gim daje ñoom ba noppi réussir ko nag réussir ko mooy doo yellu day fanaan comme woowu fit hmm? kooku tubaab mosu koo joxañ lu neexul yàlla ba mu def ko lu ko tubaab ma sa wax mu di ko jëf daa daje yàlla na ko loolu lu war a am te du benn bu koy joxoon ju ñaar te ñoom it jot nañ ord te xam nga soldat bu jot ordre nu muy mel mhm. te góornóor a ko jël si di Leclerc te booba mooy gorom merlet dañoo bañ sañ ci ñoo ñooñu dañ ko bokk na ci ñu ko gënoon bañ. parce que niñ publier arrestation bi. mu gaaw yegg ndar. waaw mu mel ni mbégte ci ñoom feet ci ñoom. wane ne Ahmadou bàmb arrêté nañ ko tey ci jeewal ak 14 nga ñoom saayir ci la ñu hmm. waaye sëñ Tuubaa moo doxoon ne law laa xaw fu bay adduniya bi axirati la qaataluhum ahlu badrin ajana ba ma ragalutoon jënde adduna àlaxira foofu leen ahlu badrin di faagaagal. Hmm. arrestation kay. Hmm. ki ngay jëli du la conditionné waaw. ma jàpp ne ku nuy jëli dañu ñëw takkal lay lam rek ne la accu wala ñu ne la yéegal nga yéeg wala ñu ne la doxal ñu topp ci yow wala toppal ci noonu waaw waaye nga cëpp ngeen daje ci xuur nga jiitu ko fa campement la jeewal sëñ bi ne jalañ ne cëpp ciw naaru góoram waxut ñii ñu mu waxut loo leen di dox dafa xam ne yoor yoor bii ko dab fii moo ko daboon ca Mbakke Bari mhm. te yàlla mi moom Mbakke Bari moom Touba muy gaynde guy bëngee loolu Cheikh Ibrahima Diop Diop almachali wax ca xarajta min jolofin lillahi fi safarin mhm. akrim bi safaran xat xaasa kulla yam xarajta fi sabti fi shahri rabihi doxaa bi jayu sachin wala jeewal ji te lay sa kay ne gur ba ngéer la wurub beram la def kabar li jëntiwu leen de li naafi li naafi lan moo tax ba ko Leclerc jub see xaa idul jay si bu ko sëñ Tuubaa tuddee ci gisaw see ko Leclerc a tax muy wax sëñ Mouhamed lim jot dagg na bu ko tuddee ci ci irwa unatim Leclerc a ko tax di wax xaa idul jay ba mu ko jub see dafa du mooy juróom fukki bismillahi rahim la jàng nee na mu saw sawara woo fay way doon takk ci moom saw fay ba jeex mu ne maanaam tàngoroom yoroon ak aal yaag lépp giim sëñ Tuubaa fala fanaan ba julli fajal moo leen fëgg kon ñoom waruñu woon arrêté nañ ko quatorze heures daanoo waroon na dajoon nañoo moom neuf onze heures dix heures ca jeewal mu toog ba mu neexu mën a nañ dem loolu la ñu waroon a bind bu ñuy wax dëgg ndax moo leen conditionné conditionné fii laay fanaan fii laay fanaan ndigalu saa borom mooy fanaan bisu keroog la daam rañaane gaaw mhm. bari mhm. fajari gaaw bu ba maaxal labra dajeg tubaab ba jeewal yenn foofa fanaan na boo nee rëy na duñ ko siiwal loolu leer na fi duñ ko siiwal foofee dafa fanaanal boppam wa zikru rabbi zil jalaal alal hidaaka ay dari ah, fëggal leen boppam moo leen fëgg di li koy xamee it mooy ba mu bëggee jàdd kokki ba mu fa jàddee moo jàddal boppam di kokki kokki moo jàdd di na wëggal ma fas yi nasaraan bi <laughs> booba ruuyee wax ak moom na ko danoo mar mu ne wëggal leen ma fas yi nasaraan bi guddi gi sori lool ñu tekki defe dañuy fanaan mu ne bisimilah nan takk wuti Louga te boobu yàlla saa ngi ma sëy di daw toq toq ndox yu sel mu ne nañ leen dem kon léegi ñoo ñoo ko jàpp wala moo leen jàpp lu xew fee moo imposé dañuy fanaan waaw fii moo imposé dañuy dem te doonoo waajoon bëgg a fanaan ndax ndax guddi la fa jóge waaw bi kokki xelta wa ji tabax da Louga loolu la Cheikh Ibrahima Diouf almachir wax le 10 moom la ñu arrestation bi. Mhm. le 12 la sëñ Tuubaa dem Ndar. te bul yerd bul fanaan la ñu ñaar fukki fan yi safar la sëñ baa ñëw Ndar. Mhm. ñoo ko jàpp ak jàppuñu ko. la koy la koy firndeel yooyu wér la Cheikh Ibrahima Diop dane ko. taxaw nga fa ndar mabbu fa fen yoo xam ne hmm, saxal fa dëgg goo xam ne laxat axamta ndar xëy nan tasilu biha daa addalaali nga xam ne taxawaay bu dëgër boobee mu taxaw loolu day wone ne buñ ko jàppoon ñoo koy conditionné ci liñ bëgg ak fu koy awale bañ yeggee nag teg nañ seen i tuuma ak seen i pexe buñ sañoon sëñ Tuubaa ndar lay yem buñ sañoon fii bu ñuy nettali tey dañuy wax ne sëñ Tuubaa de ba mu dajeeg Tuubaa bi jeexal ba mu demee Ndar kenn waxatu ko dañ naan fa la yem waaye tuxul lañ bëgg am kon ñoom bu dee ci sayir dañoo jàpp ne ñoo jàpp sëñ bi te ci baatin sëñ bi leen jàpp te bu jaarewutoon ci ñoom lu yóbbu sëñ bi Gabon bu ko defee baatin dem Gabon mën nañ koo jiiñ leneen kon moom da leen soxla woon ma bu fekkoon ne sëñ Tuubaa nasaraan bi mm-hmm. jaarewuloon ci ñoom ngir wuti li muy wuti mhm. bu tëboon rek dem Gabon mhm. kon nii mu neexee nii sax duñu neexe ndax ku mu ginnaaw li leer daa leer ba noppi ñu di ko weddi mhm. boobaa boo waxee danaan déedéet daa tëju woon ci këram yi xalwa rek ngeen di ko tuumaal loolu waaye demutul benn loolu la wax di waaye dana fan kon ñoom ñii nuy jàngal ndaw ñi dañ leen di war a jàngal di leen leeral na leen dafa am ci am réew ku ñuy wax Ahmadou Bamba dafa ñëw samp diine di yeesal lislaam taal taali diine yi am kàccoor yu yàq diine na ko du fi am xanaa xamoo loo gën a yëkkati ndamul sëñ Tuubaa gën a wane na yàllaay buur waaw ci yenn fànn mooy boo nekkee yàlla yàlla nekkal la waaw te yàlla bu la dimbalee kenn mënu laa not te yàlla moo dimbale Sëriñ Tuubaa te la mu nekk ci liggéey bi la muy yàgg yàgg ma naa ko rajawtu annaka tahmini wa tansuruni mm-hmm. nasran asisan bi nayli minka ridwana <laughs> moom lu mën a xewit xam naa ne moom yaa may dimbale moom mm-hmm. kon sintu ko ci keneen ku yàlla borom it mooy dëgër gi sëñ bi taxawee mm-hmm. fas yéene koo jëfee lu ñuy bëlëf bëlëfee di ko nettali nii rek ñu jàppale murid dañoo am jotug nettali di kii nii déedéet dañuy nettali loo xam ne borom da ko bindal boppam waxal ko boppam nettali ko ab mag ñi ñu bind ko mu leer bu fekkee dañoo bëgg a sukkandiku nag ci lu keneen wax lu bokkut ak li sëñ bi bind ak li sëñ bi jàngalu njabootam kum neex nga seet lu la ci arasur nga mhm. la neex nga teg ko waaye histoire Serigne ak Touba bi moom daa ma di nettali nit ñi da leen mat di nettali ba mu leer ci seeni bopp mhm. bañ xam lan moo waral ndam lu réy lii sëñ Touba def ak daan gu rëy gii sëñ tubaa daan mën a yëkkati loxoom bàkkoo fu ko neex ndam li mu delloo ko lislaam lislaam daan na rek lay wax lislaam gañe na rek lay wax sama sang ba rek a jiitu ku jóg jëm ci man mooy dox sama diggante yow loolu nag waxtu wu xam nga xam nga sëñ Gana foofu bëgg naa nga nga leeral ma ci sénégalais bi nan la mënee dem Paris hmm. ñu laaj ko foo dëkk mu ne senegal hmm. ñu ne ko ndax xam nga saajo Mané dal na la hmm. nga ne waaw xam naa ko mm-hmm. joueur sénégalais rek la yem ci mm-hmm. waxoo ne Casamance la mm-hmm. waxoo ne daa gàtt waxoo ne daa ñuul waxoo ne daa def dara nangu nga ne rek moom sportif la ci équipe nationale Sénégal la bokk nga génn ñu laaj la sëñ Touba nga indi beneen commentaire bu bokkul muy premier sénégalais africain bu ab gouverneur mës a jële fii yóbbu ko ngiri pexeem dellu si waat ko ci ay bokkam canam deme woon xam nga loolu boo ko expliqué karaama amu ci da ngaa expliqué honnêtement rek ni nga mën a seet dem nañ màkk maag yow bi la <laughs> soo jógee Sénégal nga ne ko amal xam nga Sadio Mané nga ne ko kuy kooku ñun sëñ bi lañ xam lan lu tax nit <laughs> lu tax nit ñi mënuñoo am audace boobu c'est-à-dire ne ni sëñ Touba kat jërul sax ñu naan Touba daaru Xuddoos ak daarul Manaan wala bàyyi laat maanaam sëñ bi daal moom sénégalais la rek boo xam ne tubaab bi ñëw na jaar naa moom fi indi na ko est que loolu audace boobu waruñ ko mën a xam nga loolu li ko gën a indi lu mu doon mooy nun noo complexé mhm. nun nooy maanaam misaal nun nun nooy dañuy woote foire internationale na foire bi lu waaye am na ko indi ñun ñu yor dànq importé ko dànk mhm. yóbbu dànq ji dem ba ca ba ca foire ba nag am complexe dem di jaay pom bàyyi dànq ji <laughs> loolu nu dal noonu dañuy complexe koo fi dégg ñu koy tudd buy wax rus naa tudd sëñ Tuubaa sax sëñ Tuubaa sax fi ne boo ko dee nett danaan doo borom xam-xam ah? seet boo loolu wax sëñ Tuubaa danaan doo borom xam-xam waaw bo hmm? koo xam ne lu ñu la jox nga jël ngir moom kay bu ñu koy waxtaanee la nga war a nangu nag doon <laughs> moom du baax leer laa la wax fi ne buñ xëyoon ne nañ bàyyi wax sëñ bi bu ko nit ñi xamati kon ba man di def naa nga man a ñi la doon wax naan la nañ bàyyi waxtaani sëñ bi ñoo jóg wutu yéen ne yii loolu bu mu fi amee buñ doon def fun jëm ne sëñ bi sëñ bi nee naa foo ko exposé mu jar côté boo natte foire boo ko yóbbu rek ñu jënd mat sëkk yóbbul fu la neex taxawalal fu la neex te wax kii sëñ bi tey nag waxi sëñ bi nga wax ko te bañ bañ bañ bañ a indi sa wax mooy yow nga jàpp na sa dimension yow rëy na ba boo waxee ci sëñ bi xam nga dañ dañ sëñ am dafa am lu jafee comprendre fi ne mooy sëñ Tuubaa bu bindee am am na lii maa ko wax yow boo ca dugalee sa bopp rek ak sa xam-xam ak say lijjanti day wàññi dimension ba kenn du tug la gëmati waaye boo ko waxee bàyyee leen ko ak lu mu rëy rëy rëy kooko leeru lu koy tax muy gëm ci sëñ bi la ne waaye du yow nit ñi dañoo war a xam ne ñoom taxuñu ñuy gëm sëñ bi waaw ndax bu quelqu'un desee rek ku ne am nam xel léegi tey bu nu amee complexe gu toll nii ñaar la complexe gu bi mu amee ba noppi ñeneen dañoo iñaan Sénégal gi da nga fi dégg ku toog di wax rasulullahi deux heures de temps ba egg seet koo xam ne ñaari téere la bind ñenn ñetti bayit lañ ci wax nga def gis ku ci def seet tonnes nangam te doone nee na nangu ngaa jëlee misaal ci feneen nangoo jëlee misaal ci neneen mais doo ko jëlee ci bi loolu ba du seen nga gis ko sëñ am dëgg la loolu dëgg la te kenn ci kaw suuf ku wax lu toll ni li sëñ Tuubaa rasulu lay amul xam mu bind lu toll nii li sëñ Tuubaa bind wax ko rasulullaay ku mën a doon andi bala ngaa jeexal ma wax yi képp bala ngaa jeexal raaya képp mhm. bala ngaa jeexal xapaaba bala ngaa jeexal xama Suleymaan bala ngaa jeexal miimi ya da xam ne kii li mu wax rasulullahi kenn wax bu dee julli ci moom bu dee nuuru daaree ni mafatixul bichri jaalibatal maraaxi bi lim julli ci moom kenn julliwu ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te tey boo doon joxee misaal jël feneen misaal fi ne ba ci gone yii di dox ci réew mi doon na yàlla sax léegi-léegi boo waxee nga ne bañug noteel de waroon nañ cee xool sëñ Tuubaa di ko jàngal naw ji day tax seen doole gën bari bañug noteel waras na cee jàng sëñ Tuubaa Mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa kat ba muy dem tëkkul mbooloo mu bari di ànd ak ñoom ngir ñu di ko xarele ba mu jógee di yeesal ujaddidu shariatul mutahara inchaa wa xaqiqatul munawara dem soob na yàlla daal danaa fexe ba sharia leer naa fexe ba aqiqa leer mm-hmm. nii nuy jànge ci école yi lañ ñu waroon di jàngale sëñ Tuubaa dañ ko waroon di jàngale mm-hmm. ci sëñ Tuubaa nga xam nit ku ñuul koo xam ne jommal nañu weex ci xam-xam jommal leen ci ragal yàlla jommal leen ci jaamu yàlla jommal leen ci mboolem makaarimul axlaax ba au lieu que sëñ bi topp ci seen i ginnaaw ñoo ñaay mujj di wax jikko yu rafet yooyu ñu gis sëñ Tuubaa ñu di ko delloo ci moom mm-hmm. te loolu taxawaay boobu mu am rek ko waral jëf yu rëy yooyu mu jëf rek ko waral kon loolu boo nit nekkee ab jullit mm-hmm. bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg doomu aadama rek ku tax doomu aadama fiix am jàmm rek war nga koo sopp war na mbiram it war na laa ñor sëñ Tuubaa daa waroon nekk lu nekk ci boppi nit ñëpp leer ci bu boobaa kumpa gi dana dañ mu leer nit ñi ñu jariñoo ko mhm. fi ne taw na Tuubaa taw na yeneen dëkk ñim tawut ci ñoom bu ñu lee leeralul ne taw na Tuubaa dañuy defe yàlla tawut fenn ba ci biwut fekk bët sébbi na bu yàgg moo tax nawet yi wuute kon dañoo war di wax ne bët sébbi na ndax am na ku den ci jiwoom puudar ko bu yàgg bët sébbi gu jàpp fekk taw na mooy sëñ Tuubaa mhm. dañ leen koy jox ñu jariñoo ko mhm. ki namm yàlla du parparloo ci loolu yàlla rek ko yitteel rasulullah rek ko yitteel te gisul bunt bu gën a jaar xam nga ki nga ne sama lépp yonent bi laa ko jox te Sénégal moom defe naa ak adduna bi amuñu ku toll ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te sëñ Tuubaa bi muy wax këram yu gent yii néew dara ko tax a gent lu may rasulullahi rek xusuur mhm. yi xalat wal ahlu an ni tafaaraxat mhm. li maddaxi alladi anhul maddihu xasiir sama kër yi gent na sama njaboot tàggoo nañ li ma ko yóbbee tagg rasulullahi sama dox bii nag masiir yi kaw ni abdahu xaadiman nabi wa mhm. am loolu baraaya lillahi yasir kon tey waxuma la ñuy dem ba ba France ñu lay laaj sëñ Tuubaa waaye dañoo waroon di jóge fu ne di ñëw di laaj ci Serigne Touba ju wóor ñu di leen ko wax di leen woon jeexintali Serigne Touba. Mhm. di leen wax njabootu Serigne Touba. Mhm. ndax Serigne Touba mbiram dafa leer koo xam ne bu ñu nee la photo baa ngi nii du créer photo Serigne Touba baa ngi nii kenn dessin wu ab photoom la borom baraag bii. Mhm. photoom bii moo ko fotow ca njaareem ca bara baraagam ba. ñu ne la doom ji ko fi mujjee wuutu 2007 la fi bàyyi ko di seen Saliou. ñu waaxu nga ñëw ñu ne la béréb bii fi lañ ko denc. bu doon kuy wàcc mu ngi ci béréb bii mhm. mbind mii moo ko bind ñii ñoo di njabootam tey Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii fi toog mhm. ñu ne la kuy wéy juróom nga ne sëñ Bachirou kuy wéy juróom sëñ Touba mhm. lu leer nañ fi nekk ku ko dégg fànnaaral nag mën naam am waaye ku ko déggul baa xamoo ko amul sëñ Touba moom loolu jeex na lastu ajulu li ilsalil maarifa la waxoon nakk ren kuntu fa sirtu maarifa mosuma dox di wër ku ma xam kenn xaw ma woon mujj naa ñëpp xam ñëpp a ko xam ñépp a xam sëñ bi xam lànk ak xam nangam nii moo ci am waaye ñëpp ko xam. dëgg la jërëjëf sëñ Gana euh, ñu ngi bég bu baax a baax euh, ci euh, waxtaan wi ak njalbeen gi ñiy yónnee ay bataaxal sax bari na lool sëñ Alaaji Bousso léegi maa ngi jot bataaxalam moom sëñ Abdou Karim Bousso Eh, ak eh, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maa ngi jot bataaxalam nee na ma eh, léegi damaa bëgg a dugg ci jataay bi incha allah des na ko dugal léegi ndax moom xam nga ne amul sago ci sëriñ bi dëgg la te it jàpp naa ne sax leneen dana ci am léegi kon su ma déggee sa waxtaan ci arrestation bi yëpp weesuwul waruñu woon a wax ne arrestation am na waaye daja nañoo moom la ñu waroon a bind ah, ñaareel bi mooy sabab bi su ñëwoon rek libéré sénégalais yi ak buur yi rek mhm. doy na sëkk doyu ci mu libeere leen ci lislaam delsiwaat ci am réew mooy li may wax ne fii la ganee àddina fii lañ ko génnee fii la ñibbi siwaate fii la des ba tey te ba tey ji yóbbaatuñ ko fenn te it ak njabootam ba tey aéroport ba ñu wàcc daañ leen gatandu daañ leen teral li ngay wax ne mi ngi ne dàng ah dëgg la aéroport boo gis ku ñuy jël si accompagner ko ak i garde corps ak i police réew ma bu laajte boo day dañ naan sëñ Bamba moo moo meññi waajuram loolu jàpp naa ne lu ko gën a leer amut ci mm-hmm. àddina Euh, li ñuy wax casier du cher xam naa quota euh, sëñ Maguette dana ko xam. moom bosam dafa vierge. amul amul amul amul tâche amul amul lenn luñ ci mën a remplir. set wicc. Mhm. Euh, sëñ Gana mu mel ni am na beneen dérangement bu am. Mhm. muy méthode bu ñu daan defaree. Mhm. xam nga fekk na sax nit ñi di defaree. waaye koo defar day sañcum dëkk. ah wax dëgg yàlla nag fas yéene nag doon ki nga doon. ah doon ki nga nag. waaye moom nga defar nit ba noppi. te moom li nga ko defal doyulu ci. ma jël ci ko mel ni Cheikh Ibra. ah waaye yoonu sëñ Bamba yi ah waaw sëñ yoonu suñ bàmba wi neex na ndekete soxna ci la kooku lan lay séentu lan lay xaar te bëggul di keneen kenn bëggul di moom méthode bi waaw xam nga loolu li ko defit mooy moom lim mus la musal ñu ko topp xam nga sëñ bi wurut ñi mu hmm? sëñ bi wurut ñi mu àndal leen waaw déedéet li nekk original ci moom mu di ko mus loolu la musal ñee moo tax lim mën a ñàkk muñe kam toppoon di rasulullah looloo tax ñu ko toppoon mënatuñ koo muñ moo tax ba ko tagg naar bay tagg dana ko antal murabbi bi maa rabbal aminu bii mhm. xarfan bi xarfin fa maa fil jiili charwaak yaay yaraa kon bi nga xam ne ni rasul lay doon yare rek ni nga doon yare te yonente bi saxaaba yi ko gënal ñoo ñoom yonente bi leen gënaloon seen lépp na yonente bi def saxaaba ci yar leen tàggal leen ci boppam wan leen yàlla mhm. ba gisatun dara mhm. noonu la sëñ Tuubaa def ñim tàggatoo yar leen te gis nga métatu yar boobu li ci gën a yéeme am na ñooñ fóot dong lañ man fóot dong lañ man hmm? waaw fóot rek gupp moom man nañ mooy ku taq ñëw ñu jéem a kii nii waaye li tax sëñ Tuubaa doy waar hmm. mooy sëñ bi daa boole ku set ak ku taq defar hmm. ni nga koy xamee mooy am na ñooñ daanan gàggantikoo la waxul ma fuus Mm-hmm. am na ñu daan dégg dayaa lay mm-hmm. am na ñoo xam ne kaamil bi lañ daan naafila mm-hmm. am na ñoo xam ne kaamil bi ñaar rakka lañ ko daan def am na ñoo xam ne dañ daan saxoo koor am na ñoo xam ne guddi gi ñu tëdd nelaw te loolu lépp ban gisee sëñ Tuubaa dañoo mel ni koy door a tàmbali dem bay yegg ci dégg ndéyal aras waaw wëlbati ku ñëw bàyyi fa loola ak koo xam ne ceddo la day lekk mooyal sëñ Tuubaa moo doy waar day yori pàq loo yónnee ñu def sëñ bi soppi loola teg la ca pénc ma nga nekkoon mbooloo ma la doon daggu lu say taari bi sant ba di wenn jëf jëli wenn ña la daan garde ngay yónni ñuy dem te dañ lay gëm ndax yàlla ji sëñ Tuubaa def ci yow moo tax Cheikh Ibrahima Diop dafa wax lu doy waa dafa wax ne fa kam muslimin misli bi jaahika jaahu min allahi xufraanu lahu jaalabitahu wa kam zalimin wal wasra anqada zahrahu fa lamma ataaka saara adlan bila wasar fa kam jaahilin allamtahu day hadaytahu mhm. fa saara teexal allah fi l amri na nahi dana ko bari waa na ku fees dell ak bàkkaar ba mel ni man bu ñëwee fi yow set wicc ba laab bari koo xam ne tooñ gi da koo gën ba sawar a yey ko ba mu ñëwee fi ku mhm. jàngut xamul dara nga defar ko ba muy jëfe diineem ci xam la yàlla digal la muy tere sëñ Tuubaa moo yar ku jàngut ba muy pratiquer diineem ni ki jàng téere yi ba jeexal di pratiquer diineem ñu yam ca ci aw defaree nag ak aw yareen ñu bokk lu ñuy pratiquer seen Serigne Touba mooy defee noonu lu tax bi mu ñëwee lu mu leen doon yare dafa xam ñin war a tàggat ñim doon dafa am doomu aadama ñeenti noonu yu ko wër mm-hmm. bii tudd bakkan bii tudd bànneex bii tudd àdduna bii tudd seytaane noonu yooyu nag kun mas a amal problème ku nekk mucc ci jafe na mm-hmm. Serigne Touba nag day fexe ba mucc loola ci bakkan mucc mhm. loola ci bànneex mucc loola ci àdduna mucc loola ci seytaan loolu mooy lan mhm. mooy bakkan mhm. moom regg rek lay songe sëñ Tuubaa moo dàqoon a xiif la xiifal mag ñi sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nee na bokk na ci minhaju riyaada bi mu yoroon mooy bi taj weexay wa kasratu tilaawati wa dikr wal i'tizaal nee noonu la daan yaree xiif nga ne mag ñi daan xëy suba ba ngoon di liggéey ba ngoonee ngëbub cerew wala ngëbub kolkolub cere wala ngëbub pepp lañuy am ki béeru setal ak ndox lañ koy jàllale buñ ko amaatee waxtu waa dellu siwaat mhm. di saxoo sikar bi xasaay yi di tawaalif yi ñu am daax yi ñuy yëkkati bi mu amagutoon sikar la mag ñi daan def mhm. di sikar waaye ak beru beru gi sëñ Mourou Lamine Diop daga neen rawatina jigéen ñi te xoolal loolu am na sew-sew bu ci am digganteem ak maam Thierno mas naa ko borom daaru na ko nañ nañ moytu kër jigéen ñi mu ne ko sama kër jigéen mu ne ko sama kër nday sama néeg nday te laa nekkoon soxna Faty Sy mu ne ko mu wax jigéen ñi sa ndaya tax soxna Faty Sy a tax nga xam ne diirub li muy ne ci kër sëñ Touba li muy ne ci li muy ne ci ron sëñ Touba maam Thierno dugg nekk soxna Faty ngir bëgg a lekk baa bëgg a naan noo ko Cheikh Moussa ko waxee mm-hmm. kon léegi li nga ciy déggee mooy daf yi noonu yi gàllankoore mm-hmm. bakkan bànneex àdduna yooyu la sëñ Tuubaa tàggat ñi muy yar jëme leen ci ba ca topp mooy bànneex bànneex wax ju bari ju amul njariñ la daan lay songe sëñ Tuubaa mag ñi mu daan tërbiye nit daana xëy suba ba ngoon benn baat nga wax wala ñaar nit daana ko xëy si mu ne ko bi nga xëyee léegi ñaati baat nga fi wax nit na ko man de nit kooka na ko man de nit nuyu na ma man na ko ana waa kër gi ana njaboot gi sëñ bi dinaa ko bëriwul waaye ba ëllëgee na gën a néew xolo yooyu baat bëriwul waaye bu ëllëgee na gën a néew ngir xam na ne wax ju bari mooy waral bànneex ci lay dund ba ca des mooy àdduna ab jaxasoo mu wuteeg beru ba ca topp mooy seytaane seytaane ci sàggan mhm. lay songe mu jël tudd yàlla googu mag ñi foo leen sa fekk seen dënn yi riir mhm. ñuy sikar turu yàlla waxtu wu nekk mhm. mu xam leen moom ne salik bi ki bu jëm ci yàlla faaw mu gunge woo ñett gis nga méthode am mhm. sëñ Tuubaa nee na dafa am aliment boo xam ne ki jëm ci yàlla moom lay dunde ngir doxinam jëm ci yàlla gaaw te ki jëm ci yàlla daana ci tukki faaw mu am bu yóbbal muy sëriñ faaw mu am gànnaay sëñ Tuubaa wutal la yooyu nag wax na xayru taami li muridi saliki dawaamu dikri sil jalali malik wa xayru zaadi tuqaa wal li man lahu qablu ba'd al amr amma silaahuhu faqul sayfu wa rabihi yakunu qati'an nee na aliment bi gën ci ki jëm ci yàlla mooy mooy mooy tudd di ko tudd mm-hmm. moo tax ñuy tudd yàlla waxtu wu ne muy dëkkar loola moom mooy mooy la Cheikh Ibra Fall tàmmoon sax ca ba bi sëñ bi nekkee Touba it bu ma jëm ci jàkka ji mag ñi di ko gunge sikar lañ ko lan gunge ba ca topp mooy ragal yàlla ragal yàlla ñaari jéego la imsaalul awamir wa jitinaa bi nawaahi waaw mu yar leen ci la yàlla di bëgg la yàlla tere duñ ca jaar ñemewuñ caa jëm ba topp mooy sàmm ci lu néew ak ci lu bari defe naa sëriñ Abdou Lahad Bousso mii am na maam ju wax ju ñuy wax sëriñ Cheikhou Bousso sëriñ Cheikhou Bousso Cheikh Amadou Fouti Tall lañ ko tuddee mooy taawu sëñ Bousso bi sëñ Cheikhou Bousso waliyu la Cheikh Omar Fouti Tall moo waxoon sëñ Bousso bi boo amee doom nag moo ko tudd nay sab taaw waliyu lay doon te moom sëñ Bousso bi daa ñaanoon yàlla balaa denc soxna mm. suñ borom da koo nungul doom ju mu am waliyu doon balaa muy denc sax waaw suñu borom da ko ñaan ko ba yàlla nangu ko lool tax li nga xamee ne ponkal la mooy sëñ Bousso bi bi sëñ Tuubaa waree na ci tukki bi suñu borom nee na kon bokk na ci sa nijaay ji lu mu ñaan yàlla moom sëñ Cheikhu Bousso moom mësta naan meew maanaam soow nii du ko naan meew du ko naan ngir sàmm gi xam nga lu ko waral nee na nag wiñ ko ratte laa xamut ba xam mas naa rekkum ruuram déet nag bi ginnaaw nag bi mas naa lekkum ruuram déet naa muñ meew moom di rub dundam xoola sàmm ku fa yeggagul ci ñii di jaay diine ak a sàmm sàmmaloog naan loo xam ñu ne xaraam te foo gisub kanet daaj ji xamoo fu mu jógee épicerie boo dugg da ngay loolu bu ñu waxee nga naan sunna sunna sunna ah? ku ci yeggagul foofu rek lay laaj ñàngal maan yi yëpp koo ci waxam mu ne la meew daa baax bu mu guddi surtout mu guddi bi waaw naan la original meewum nag te xamoon nag lekk na produit bi sëñ moom bàyyi meew moom xoola googu sàmm sàmm googu sëñ Tuubaa doon tàggat mag ñi di leen ci yar xoola sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi mhm. sëñ Mouhamadou Lamine mhm. moo daan wax sama kër sunna laa ko sance ñagee ko charia ku ko ñëgërti Mouhamadou Lamine boolewula ci boppam yaa boole Mouhamadou Lamine sa bopp waaye Mouhamadou Lamine boolewula ci boppam mhm. sëñ Mouhamadou Lamine xoolal googu sàmm ak ni meloon ak fi mu tolloon ci moytandiku lépp loo xam ne ab safaan la mag ñi sëñ Tuubaa da leen a tàggatoon ba sàmm gi te loolu sëñ Tuubaa ko def ñoom sëñ Mouhamadul Bachir nekk nañ ci beneen barke Xadim ne mhm. sëñ bi xëy na suba di dox ba ngoon booba day war am ñum àndal mhm. ba ca ngoon nga takkusaan am ñu dajeek ñoom da daal di laaj ne waaye yéen ba ngeen xëyeeg léegi gisoo leen fi kenn déglu loolu ba ngeen xëyeeg léegi gisoo leen fi kenn am ci ñi ànd ak sëñ bi ku ne ko xanaa du ko ñuul te gàtt sëñ bi ne ko dëppal wari ko ba gis ko nga jéggalu ko ndax melokaan yu mel nii ci ngeen di jëw seeni morom kooku xadaraam du xadarab yàqi dar de buddilu la garab buddilu romb dégg ñuy jëw mu buddilu garab ga jàng lu fay kaamil jël suuf sa féete woon biir jëmale biti xoola googu sàmm mhm. xoola sàmm googu nekkoon sëriñ bi sàmm googu moom la moom la suuxatoon ci mboole mag ñi ko toppal ba tax lépp lu mas a doon nurub safaan dañu koy moytandiku wala maam Moodu Asu Jaxate mu baax mi nga xam ne mooy maam yi Serigne Saliou woo mës ta lekk lu dul lu mu bay ci loxo mhm. fu mës a jëm mooy yor sangalus boppam te mooy loxo benn yoon la mës a joxe ñu di ko ci toggalub laax ñulug bi kooka jël sangalam def ca laaxee kook ngir mu far ba ko musee rek daa wàccu na ko dara mu ne ko laax bi daa dogoon ma sama sangal mu ne ko musuma lekk lu dul lu ma bay sama loxo li nga ci def tam moom ma ko rek a tax mu génn la ilaha illallah sëñ bi da leen yaroon kon ci sàmm loola moo taxoon nag waxtu wu ne tiit ñoom sëñ Tuubaa identifié na leen ci xoqa xoqa boo ko xoolee lépp ñoom la mhm. kaanu ida layl arxa sitra da halakin mhm. xaamu siraan li ihyaa idu janati mag ñi daw ñu wax lal lallil ma ma tëri lallil ma lallil ma xam kii wax lallil ma moom bëgg naa tëdd lallil ma waaw mag ñi seen njàppam gee daana julli fajar toog ci dara bi rek kërëb kuur si dal seeni néeg ay godd ak yuula ci nekk duñ fa xas duñ mu di leen matt baaxu fudulam bi dikir lay xaalixihim ñu jaay mboolem loo xam ne bànneex la ci jënde ko tudd yàlla mhm. lan moo doonoon seen a seen waxtaan nag xadiisum dikru muxnin nafiin samadin laa dikra xindin wala naa fil maqalaat seen waxtaan yépp mooy yàlla bokkut ak booy am nga visa ak passeport beeg sa ay temps yi nu mu koo yor jamono yi yooyu moom daawuñu ko waxtaan te loolu moom moo xew ci noonu moo tax nu dox dox jafe noonu waaye la ca gën a garaaw mooy jihaadu nafsin wa shukurin bil qadaai rida tarkul tifaati ila xaalil bariyaati wa zuhdu fi kulli faani baadahu warau maa tawakkuli sabrin kulla saati not seen bakkan di xeex ak moom te not bakkan a gën a jafe mu not seen bakkan di sant yàlla ci dogal lu xew dogalub yàlla lu ñëw ñoom daawuñu wut sababum nangam lu xew rek ñu ne yàlla xoolal am na ko ñuy wax sëñ Maxtaar Penda Jeng sëñ Maxtaar Penda Gay Jeng sëñ Maxtaar mhm. mooy maami sëñ euh, Cheikh Ndig euh, sëñ Cheikh Fall Mbawor mhm. sëñ Maxtaar Penda benn doom la am bu jigéen moo jur sëñ Maxtaar sëñ Cheikh Fall Cheikh loolu sëñ Cheikh muy nettali na ma ko mhm. maanaam pour li ngay xam doy waar gém doy waar benn bis la sëñ Tuubaa toog ker gu sedd guyu sëñ bi ne fii de neexoon na loo am dooñ suul fi loo am rek suul fi mu ne ko tippoo naa ko am féete woo naa loolu daal am naa ñaan mu dem ndax wax gi sëñ bi ne ku xamoon la ci am doom mu dawalu jiitu la keppaar gi fees dell nga am koy doom suul leen mu ne ko jël na tippoo naa loolu engagé wu naa loolu engagé wu naa sëñ Maxtaar Penda Dieng moom nee na ci sëñ Tuubaa rek ci gànnaar ñeen am na bis sëñ bi dafa tawat ba mënta jóg nga xam ne bu déggeek ak day day bërbëri ngir tawat ju metti ci mais mujj ñu ne nañuy nëbbu sëñ bi noddu gi ba noppi tey jiital ku ñuy wax Sidi Abdallah waaye sëñ Maxtaar nee na li leen ci yéem mooy bu noddee lu ñu gaaw gaaw gaaw gaaw rek dañ fekk sëñ Tuubaa ci kanam jàkk ci mujj mu ne sëñ Maxtaar penn daa bokk ci li ma yàlla defal bu waxtu julli jotee suñ borom day teggi tawat ji jox ma kàttan ak waxambaane ñaar fukki at ak juróom da cay bu natt bi loon téeméer da ciy teg beneen téeméer muy ñaar téeméer nga xam diggante takku ak tisbaar ju ne natt bi day gën a diis ci moom waaye bu waxtu yàlla yu jotee rek mu jógati sàmm googu taxoon na ba mosu leen a may dara am na bis am ku ñëw andil ko addiyee mhm. njeexaat am addiyeem ñëw andil ko am koo xam ne it dafa denc addiyem andil ko sëñ Tuubaa ab taalibeem joxoon ko ab dërëm téeméer boo xam ne da ko foroon boole ko ci mhm. gis nga sëñ ba mu ñëwee ni muy def falan falan falan ba mu génn mu ne ko li bokk ci mu ne ko sama taalibe ko foroon denc na ko ab at jox ma ko ma denc ko loolu andil ko mu leen doon def lu waay romb moomoo ko ba ko fa lu waay delloo ko fu mu ko jëlee ba xam demee joxaat ko taalibe mu wax na ko delloo ko fa taalibe ko ne ko ah, na ngeer ga ma ko jëlee tu woon noonu waaye li nga xam ne mu jàngaleem sëñ Tuubaa mhm. gis nga ba mu demee ba jël téeméer ba ne ko fa tegg ca ngeer ga mu ko fore woon ñaari gaay yi ànd lëngoo ba toll foofu kenn ki ne sama mbayum daaw ma ne nii laa ci toll ngeel gi la ma réere woon sama téeméer ba xoola lool kooko door a kooko door a dem fëgg kenn ko kon de teegaa xool fi mu door a gisul téeméeram lu mu la joxañ rek am na lu tax loola xew noonu mu meloon nag ci sàmm googu moom la defoon ci mag ñi moo tax sëriñ Mbàkke bu su nee na sëñ Tuubaa wal xaws wal miqyaas rabbaa xuluubanaa wa ajsaamanaa fal kullu saafin wanaay sëriñ Tuubaa daf noo yar defar suñuy xol defar suñuy jëm ba ñun ñëpp jàpp koo gis ci noonu nekk nëtëx nekk ku looloo tax nga gis ñu mënoon daan saaraan ci naafile yeeg xamuñu bànneex ak xamuñu dara ndax tàggat gi leen Sëriñ Tuubaa tàggatoon yar leen ci bañ nekk ay modèles yu saaroo ci àdduna bi te nee naa la am na ci ñoo xam ne ay ceddo lañu woon tey dem nañ ba doonoon ay ay ay ay mëccoob am ñoo xam ne nii doonoon ay mutu saw yu fuun mhm. am ñoo xam ne boroomi xam-xam lañ bi ñuy ñëw Sëñ Tuubaa ni ñu waxee ak moom nga koy xamee te kenn ku ci nekk nag sëñ am na nga xam ne lenn doo nga doon dàkk suñ Tuubaa bi nga ñëw muy ngërëmul yàlla waaw sëñ Daaru Asan Njaay dana ko lillahi xat surtout laa xëy arabi yàlla képp a tax ma lay siyaare leneen taxut man de xam nga lan laa bëgg mën Daaru Asan Njaay mooy ngërëmul yàlla mooy sama bernde boo may berneel berneel ma ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla laa bëgg ku ma sa ñëw ci moom ci mag ñii loolu ngay wax te téewul kenn ku ne mu tàggat la xoolal sëñ Ahmadou Fa Jamañang mm-hmm. bi ko sëñ bi ne kaay jébbalu lu mu ko wax dana ko man de bu malaaka yi deyaale maa ngi koy dégg mu ne ko déggub deyaale am na solo ay fekkee jataay baa gën a wóor mm-hmm. ba jaayantee lu ko sëñ jox ma tas la takkaat la wala ma cuut la Mm-hmm. Ahmadou ma tas la takkaat la wala ma cuut la. ma désinstallé la ba nga set ba nga wala li nga yor ma bàyyi la ko def ci li ma yor mu a ko tas ma takkaat bi sëñ bi supprimé ko ba mu set wicc waaye ba mu noppee ca moom daanaa wax ne def ak dindi ku lu borom yoon maa la di ñan. daanoo sëñ Mat daanoo ku dul Seex Ibra Fall bopp lañ nuroo sëñ Ahmadou Fa Jamaña sëñ Ahmadou Jaw Pax bi mu ñëwee lu ko wax ñëw naa fi yow. bàyyi naa ñëpp kër ak njaboot ak ñëpp dikk fi yow bu la neexee bu la neexee yow senn saa ma yegg ci yàlla bu la neexee waxtu bu la neex ma yàgg ci yàlla waaye lu mën a doon maa ngi toog di muñ di xaar waaye bu la jàmbatuma ci xaar gi jàmbatuma ci dara ndax bu la neexee rek ma yegg ci yàlla mhm. xam nga lan la ko jural la mhm. ma yegg ci de ne alhamdulillahi la si jaxalani bi darajati fardil abdul qadimi min rijalillah la ilaha illallah alhamdulillahi alladi jaalani bi darajati fardil abdul xadimi min rijalillah lettre bu maam Cerno la ko doon bind waaye ca biir da caa tiitaree wane ne maa ngi sant yàlla mi ma def ci daraja sëñ Tuubaa mu bokk ci góor yàlla yi góor yàlla yooyee la maam yi sëñ Abdulaat mii doon wax naan saraftu himmati li himmati rijal wa himmati rijali waccu sil jalal xoola lool soppi naa sama ngalaab soppi sama fas jaabal naa fan laa jëm ci yittee gaañu baax ñi gaañu baax ñi luy jëmm yàlla ci saraftu himmati li himmati rijal mhm. wa himmatu rijali wajhu dil jalal jëmmi yàlla joojoo leen taxoon a jóg te sëñ Ahmadou Diaw Pakha moomu dem na ba egg ci sëñ Tuubaa ko yaay sama jaww maay sa asamaan hmm. kon xoolal boobu dimension mu ne Ahmadou Diaw jawwun wa cheyquhu sama wal ardu taxta al jawwi laa taxta sama moo tax ñoonu dàqoon ak kennal moo daan wax mun jiitu na mhm. al fardu alladi laa yujmau wala yusanna mhm. wa siwaahu yujmau kama yusanna sunu xetalaa kon bi di Sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Diop Paxa daan mooy ki nga xam ne kenn la kenn du ne sëñ Tuubaa ak kenn du ko dugal ci groupe ku nuy ber la mel ni dañ ko ko laaj na koy kooku mun na ko saaka jaaru la in kunta saa'ila rafiqul li mamdun fii noonu wa naj boo ko mooy ki dëkk la ki dëkk ak yàlla tey xaritu rasul la mm-hmm. mooy Ahmadou Bamba ay kuréel yu dul la defar ci ñooñu mm-hmm. sëñ Ahmadou li ma la wax léegi sëñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi mi mm-hmm. sëñ Modou Lamine Gueye jëmooy ba mu ñëwee ci sëñ bi noonu la ñëwee fees dell minni masal minni salaamun ka yaaquutin awi durari bal faaqa duran wa yaaquutin kal xamar ila lasi saara abdallahi xaadimahu cheykhi malaasi xiyaasi man xadaa watari haza ziyaratuna yaa rawdata xutaba yaa xuddatal ulama yaa malja albasar xoolal kooku li mu wax sëñ sëñ Ahmadou Gueye mooy ca ñëw naa tey sama wéeru waaye sama yaakaar mhm. waaye lan mooy sama lan laa bëgg nga berneel ma ko xiraaya fawzun wa ridwaanu wa takrima li ma bëgg nga berneel ma ko mooy ngërëmul yàlla ak tedd nga ak nga neel loolu rek laa bëgg nga berneel ma ko almashar yi la kasalika almashar yi ku ne xam na ne doonu toon doonu toon doonu toon njëlbeenu ab murit te kilifa la di mu xaddam ci fam ne woon mhm. waaye xoolal li ko booleeg Sëriñ Tuubaa mhm. al mashar yi moomu keroog bi sëñ Tuubaa jógee Sannoosi jóge ci géej gi ñëw si Sannoosi si la ko fekk nan nga ne mooy seexub sëñ bi ginnaaw géej gi moo ci njëkk Sannoosi almashaari xoolal lañ deflante ñoom ñaar la ko sëñ bi woon mhm. booba dañuy wax ne dafa am juróomi téeméer bor mhm. dañuy wax ne ko gas suul waaye sëñ bay laa jóob ndax man damaa jaxasoo ñoom dama leen di laaj mhm. sëñ Baye laa Diop mi xalif sëñ Mbacke Diop mhm. Kalsaan Kalsaan maa ngi koy siyaare bu baax siyaare sëñ Moussa Diop mhm. di siyaare sëñ Moussa sëñ Mbacke eh, eh, sëñ sëñ Baye sëñ Mbacke Diop Kalsaan sëñ Baye laa nee na ba mu bindee leetar ba ci garabu xël reen ba sel jëm penku ca la ko roof te boobu sëñ baa ngi ci géej gi te jubluwu ci woon sëñ bi de daa bindub leetaram rek am bor juróomi téeméer na rasulullaay fayal ma téeméer Ababacar téeméer Omar téeméer Ousmane téeméer Aliou téeméer jubluwu ci woon sëñ Tuubaa yi nag roofub leetaram sëñ bi dem ci géej gi ba ñibbi si nekk sànnoosi mu dégg ko na naa na na na na na ànd ak ñoom yi ànd ak dem sànnoosi fekk fa sëñ Tuubaa waaye li gën a doy waaye sëñ am mooy mhm. kocc yu ko sëñ Tuubaa joxañoon na ko xoolal ma kocc yooyu ba mu ko tekkee ñaari kocc la sëñ bi ne ko xoolal ma ko mu wàññi bii muy ñetti téeméer wàññi bii muy ñetti téeméer sëñ bi ko beral benn téeméer mu bi ne ko téeméer benn bi Ababacar benn bi Omar benn ko jox ndax yónnee bi rasulullahi fu ko sëñ Tuubaa message yéen danaan kàng moon ndax danaan yónnee bi rasulullahi bi jaare woon ci moom ñëw te moom sëñ baa ngi ci géej gi moom Masar Masar mu daal di jëmbeelu nag laa tatlubanna min si waxul fadlu sa taabin fal min xayri xat kaana masluba kuy sàkk nga leen teggi Ahmadou Bamba foo jëm nga leen lu baax léegi lu tedd yi fi amoon yàlla doon joxe joxe na ko sëñ Tuubaa daan na waman xalal aqlu min yadusnu sawee saqin kubra on alima alima al yaqina abduhu faridan waxidan misa sayidan barra ku dof sa sam xel gàtt rek yaa koy wutal morom waaye ku xam dara te yeewu sa kumpa dañ na xam ne yow mii xam nga ne waa ji kenn la ko beru daana na te ku ko def moroom fii demal ci pay bi daana bu ndajee ca xadara ba góor yàlla yëpp toogi ni ku julli la ñuy toog kenn ay taxaw kenn ay wax muy ahmadou bamba xatibu rijalla fi xadarati liqa fa lam yakun qailun sama qaaimun bada baynahum shamsun kawakibu wa nuuru nujumi layli bi shamsi afilu bu gaañee dajee bu daam ne jaleñ moom képpay taxaw daam ne jaleñ moom képpay wax ndax sëñ Moussa Ka ne balaa dafa xew ci pays yaxalas ci baatin ñu di soog daam te mooy jees yi boroom lu ne jóor na ko sëñ Tuubaa sëndamal sëñ Tuubaa dana ko fa jaahu ka inda llahi jaahun muazzam fa mën naa la yasaru bi asfa wasilati li annaka shamsul awliya wa qutbuhum minka amsalu nujum daila fa lil kulli minhum rutbatun wa makaana taalat walakin fuxtahum bi maziya liannaka asfaahum wa aksarum tuqaa wa fa turon masa bi masa bi sunnatin wa aksarum ilman wa xilman wa xikma wa ajdaruhum xaqan bi kulli fadila wa atwaluhum baaxan wa ajsrum nada wa arafum billahi min duni mirya waaye xoolal kilim ko tëgg masar waay waaye sa daraje ci yàlla daraje ju màggal Ahmadou Bamba daan na ko gars yi yàlla ay bidéo la yaay jant bi daan na ñëpp am daraje nag kenn tuuti fa li kulli minhum rutbatun wa makaana gaa yi yàlla yëpp rëy walakin faxtuhum bil basiir waaye yaa leen kawe de lu ko waral leen ko asfaahum yaa leen gën a sell wa aksarum tuqal yaa leen gën a ragal yàlla wa axfaahum tururan bi mazhabi sunnati yaa leen gën a topp sunna rasulullah wa aksarum ilman yaa ëpp xam-xam wa aksarum ilman yaa gën a lewet wa aksarum xekma yaa ci ëpp xam-xam yi ko wa ajrum xaqan bi kullil fadila yaa leen ëpp ay ngëneel wa atwaluhum baaxal yaa leen gudd gudd gën a guddub jéegu wa atwaluhum baaxa yaa leen gën a guddub jéegu jéegu tey parcours daam fi mbër wa atwaluhum baaxa yaa leen gën a gudd jéego wa aksaruhum nadaa gën leen a bari may wa arafuhum billahi min duni miriya kenn du ko werante yaa leen gën a xam yàlla daan na kii nag sayxun bihi xat unil naa kullu makrimatin xataa bihi rabitat na ahlu baxdaada wa ahlu misra wa man fi ardi kullihimoo akrim bihi min imamin kashifin daada dooraleel maali maali li baxdaada sawxun wala faasa walakin bi ruya jolob xat bi waxtu alfaas yi waaye wasaara yax bitu ni man kaana maskanuhu fi batni baghdada aw fi misra aw fasi taxul mu yam ca de mu ne ahlul hijaasati ahlul hijaasi <laughs> ma ahlul ahlul madinati la wax ahlul madinati ma ahlul hijaasi bila nukriw ataw li suqya bi faydakal jaari kama ataaka unaasu misra ma unaasu saamu kullu baax daara bi daar ilmal bi annaka yaa shamsul hudaa matal waaye darrayna sabqu kullal aalamina bila raybin siwa ahmaqin aw xaasidin aali yaa na ca kanam yu ahmadu bamba ñett képp umpale na yaa jiitu ku dof ku alku ku iñaan dar ray na sapp ko kullal aalamina bilaa ray bi ñépp xam ne yaa yaa jiitu yow Sëriñ Tuubaa mhm. waaye sabaxta jamial awliya bila miran wa ardayta diina allahi fi loxosi wala yusi yaa jiitu gërëmloo nga yàlla gërëmloo diineem ba muy jafe ak i métti te pourtant nii Sëñ Tuubaa waxee nii parcours boobu noonu la ko nettalee moom it lépp yow lu géej gi ba lépp man kon loolu te kii di borom xam-xam ak cër bu rëy bi mu am ak kim doon ak fi mu toll xool Cheikh Abdou Karim Touré ca xam nga doy na wax ju rëy rek moom daa jëkk waxal boppam moom daa annoncé boppam moom Cheikh Abdou Karim Touré wax boppam ne faxlam bi anniya min qawmin masiat machiatuhum machiatu xaaliqil maxtaay si diyami boo ma bëggee xam man Abdou Karim Touré xamal ne man maay ki xam ne lu ma neex rek neex yàlla moom na nga jëkk comprendre loolu ba min xawmin machiatuhum machiatu xaaliqil mata isidiyam man maay Abdou Karim foofu laa lay jëkk a xam daan na maa fil bariyati man jaay yu ma sinuhu ilal kazuba la si yëfil ka abadi neena na buñ la doon laaj ki dàq wax lu dul dëgg mooy ki leen di wax sëñ bi nuroo ki koy dalale kenn moo dàq wax lu dul dëgg xoola ñooñu fi ñu toll ci cër xoola ñooñu fi ñu toll ci dayo ku ci ne natt nga sa bopp ba xam ki nga doon fees koo xam ne bu Jibril daan ñëw ci sëñ Touba melaw Abdou Karim Touré lay yor ci Abdou Karim Touré du du n'importe qui ci fees ci xam-xam ci fees ci ragal yàlla ci fees ci cër bu rëy fees del waaye gis nga la muy jóor Serigne Touba. sëñ Babacar Sarr sëñ Ibrahima Sarr Ndiagne. noonu lañ mel Massamba Diop Sam sëñ ah, kenn ku ci nekk laqad laqad alima al qawmu atal bahaima bi anna raïcha cham bil xaqi qaim loolu baykat ba wax nee na Cheikh Massamba Diop Sam moom jur gi sax boo leen laajee xam na ne ma Massamba Diop Sam ci dëgg la ne jur gi boo demoon laaj ko bëy baaw xar sax mu wax la ne Massamba Diop Sam bi ci dëgg la ne Cheikh Issa Diène kooka jaay la mbokk ak lépp moom seex ma Massamba Diop jaay la mbokk ak sëñ bi jaay léppam jël boppam jox Serigne Touba ak guddeem bëccëgam lu ci nekk mu jox ko Serigne tubaa ba Serigne Touba gërëm ko ngërëm lu dakkati won ko na ko ngërëm naa la ñaan naa yàlla sama borom loola aar sàmm la sàmm sa njaboot lu ma sàmm jox Serigne Touba nga xam ne nii la nii la sëf yi daan jooyalanteel lay yóbbu buy yóbbu tasante lii ñëw lenn lu ci nekk borom gisaa ko yaa xillu gis nga ko muy Cheikh Ibrahima Sall loolu doy na tampo gisaa ko yaa xillu Ibrahima mawlaaka xayral jasa wal munaa daarayka awlaak faxala bi annaka indi zuuri dan abada wasaaka ribxuka fii dunyaa wa uxraak fadum ala siddiq wal ixlaasi mu jahida fii siir wal jahri kaytan mu mazaayaak wala Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne xoolal loolu ni mu mel rek Ibrahima saar Ndiagne te tërjumaan ja gën a doy waat tërjumaan ji da koo wax ne ko yàlla boole na ci ñi nga xam ne yow ma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ataa Allaha bi qalbin saliim ngëneel yu rëy la suñu borom defal al Ibrahima al wafi bi nga xam ne matal nga nekk saadiq nekk lépp lu ci nekk suñu Tuubaa garantil ko ci defal ko ko xal bu salim jariñ ak jariñe gontoog lor door ko ko na nga xam ne man gërëm naa yàlla la yàlla fay yow Cheikh Ibrahima Sane Ndiagne jasak yaa xillu yow sama xarit Ibrahima yàlla na la yàlla fay faxlam bi and ni yaa andi suuri leen xamal ne gërëm naa la mm-hmm. waaye saxal nag ci ragal yàlla waaye xamal ne kaytan mu masa yaak ngir say may di yokk mm-hmm. lu ko may loola mooy ak defaru lu ko may loola jëf noonu ñu mel boo demee Cheikh Issa Diène kasaalika xaasal mafaaxira Issa Diène suu këramin wafaasa bil xurbi wa ridwaani bil xidam hibbul xadim wa misbaahu tariqatihi bi istanaarat li man yamsi bil adlam loolu Cheikh Ibrahima di wax nee na sag yi ak tedd nga yem Issa Diagne lamboo na ko ak jege sëñ Tuubaa ak am gërëm soppeeb sëñ Tuubaa baa ngoog nee na mooy lamp boo xam ne ci sëñ Tuubaa ku ca tegtaloo doo réer lu ko may lu tax lu sëñ Tuubaa laal mu ne bul fàtte Issa waa këram ma nangoo jëf nee na ay addiyaam kenn mënu koo bind ci xalima kenn mënu koo takk te boole ko cërub yàlla bi mu amoon fees dell nag Cheikh Issa Diène ay ñun la war toppatoo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko seeral na ci góor yàlla yi la bokk. waaw léegi ki bàyyi ndono bàyyi royaume. Mhm. bàyyi ndono. nga xam ni ki dafa war a falu. Mhm. mu bàyyi loolu seen dëkk. Mhm. di ko wër ab diir ngir gis ko. Cheikh Ibra. nga xam ni tey bu fekkoon ne benn nit a ñëw nii rek. Euh, jóge ci dëkk bu yam noonu rek nga xam ne. mën nañ ne kii sax daa dëkk ba mu dëkk dafaa xat wala daa daa amul am ndono lu mu fa am mhm. moo tax mu ñëw waaye bàyyi nguur googu ak booba ndono ni mu toll mhm. ci royaume fa mu bokk mhm. mu bokk di wëri yàlla ci sëñ Tuubaa waa xam nga Cheikh Ibrahima dafay koo xam ne gaa ñi dañoo jël riir mais kii mais ku mat a jàngataat te te tey ci mbiram la bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa li wax dafa leer te sëñ Bachir na ko ci Minanul Baqil Xadim dafa wax ne ba may génn sama kër damay wuti sëriñ boo xam ne daf may mën a yeggale ci yàlla. bi may génn këram waaw Cheikh la dama doon wër sëriñ bi moo mën a yeggale ci yàlla. kon moom egg ci yàlla rek moo ko taxoon a jóg moo nekk yitteem moo nekk bëggam. waaye xoola jaayante pas-pas bi dox ci digganteem ak sëriñ bi te ba muy ñëw naafile yii gaa ñi jaay moo leen dàqula naafile daana naafile kaamilu alxuraan mm-hmm. Cheikh la léegi nag xoolal tey ba mu ñëwee sëñ Tuubaa xaatabante gan xaatabante sëñ bi dana ko mm-hmm. yow de na nga xam ne man bi may ñëw jamono ma fekkutoon dara du alxuraan du hadis waaye wóor na ma ne jant bi daana tiim rasulaay asamaan si daana ko tiim daana lox ci kaw suuf danaa ko liggéeyal ba am li eh Cheikh bi la ne ko may it ki may wër boo ko gis tool da gis bàmmeelam danaa fa sax di ko liggéeyal ba mu gërëmam <laughs> xoola pas-pas boobu xoola googu jaayante xoola googu dëgër waaye yoon moom jaar nag ba ca jiitu bokk na ca mooy nungu dogalub yàlla ak nungu ko yàlla joxañ nungu dogalub yàlla ah. ak nungu ko yàlla joxañ waaw ah. xam nga fi mu toll nii tey boo fekkoon ab préfet wala nga fekk ab maire wala góor noonu nga ngàddu ko dañuy daal di wàcce rek daal na kii kat moom nguur gi la tooj ak ndawul buur xam nga ndawul buur lañ koy wax lewul mm-hmm. buur léegi yàlla moom ay wali yoom ay xejjam da ca fiir moo tax mu ne ku noonu sama wenn wali déclaré naa la guerre waaw ku ko toppal aw wali kon lu mu lay jural mm-hmm. ku ko toppal wali yi lu mu lay jural Cheikh Ibrahima bàyyi léppam te léppam génnul yàlla nag ndax sikrul ilaahi la sax yendoo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu koy bàddeel ko Cheikh Ibra fal sikrul ilaahi la sax te xayru taxaami li muridi sarik daaw am sikri si jëlaali mel boole ko lu ngoo liggéey ba noppi def li gën a jafe muy tawaadoo fàtte boppam fàtte fa mu bàyyi ko te mënoon doon buur boo xam ne bu ñu doon liw dammeel yeeg nangam ca kajoor dañ koy limaale mu bokk ci néeg boo xam ne léppam ak ruwaayam la mu jaay ko di sol yére yu xottiku di sikkar di buub di root di def lépp mhm. loolu xoola googu defaru rek mhm. te pourtant de bari na ñooñ saa yoo waxee ak ñoom danaan la noo man xanaa xamoo fi mu fokk bokk fëggub dënam man sama maam bañkat la woon waaye bañkat gi kat yàggam yàggam lañ cey teg mooy dee rek dee gi nag lañ ñub jàll danaa ne sama maam bañkat la woon la moom nag mu doon donn loola ba nopp bàyyi ko topp Sëñ Tuubaa lu ne mu dégg ko ngir sëñ bi lu ne mu daj ko ngir sëñ bi loolu may ko tey bu ñu nee Cheikh Ibrahima Fall na baabul muridin loolu rek doy na buntu muridi muridin ñu namm yàlla mooy seen bunt lu mu jëf fàtte ko waaw hmm? mhm. te xaddamtahu la ko Cheikh Abdou Aziz Fall sëtam ba waxoon yàlla ko yàlla dool yi leer xaddamtahu aabidan lillahi jalla ala fal muqtadi bi ka lan yu laa mu fi saxar da nga koo da ngaa liggéeyal sëñ Tuubaa jaamoo ko yàlla kenn du la roy di dem sawara yu Cheikh Ibra Fall kon loolu jëf la joo xam ne mhm. day wone mhm. catégorie yi sëñ Tuubaa dajale ni mel mhm. ak ñi fees ñi dajale ku mën a supporter Cheikh Ibra fal sëñ Mbàkke bu sa aw fee maam na aw fee juróom ñetti fukki at yu manqué ñeenti weer la dund ñaari yoon la ma sa tiim ba ma amee ndox fay na ko dëgg a dajale ñu mel noonu sëñ Ndam Abdourahmane Nefe Bay Sarr taxawet soxna Saalihaat mi ah. ngi naan maa ngi koy ziare ca Amérique mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi naan ma nee na nee na ba nga ko <laughs> eh, sëñ Bay Sarr mhm. sëñ Moussa Kane koy wax ma jóob la kuñ wombat du xam fa muy du xam jaar mhm. xam nga mu mag la bi muy ñëw ci sëñ bi waaye fii la sëñ Bay Sarr rek mënees na cee jàngate lu bari mhm. ci wóolu gi sëñ bi ak doyloo gi sëñ Tuba ah. xam nga yëngoom ba ak dalam ba léppay anwaar nga xam ne kooku bu yëngoo ko dox sax ni muy mel xam nga loolu ñuy wax ne am na bis muy yëngu-yëngoom boobu tëggam moom nga xam ne boo ko dégloo ni mu lay daanee la bu dara xewee njeereem ba nga dégg mhm. dënnum sëñ Mbay Saar gaayam yooyu mhm. ñu dégg yëngu bi ci pénc mi ñëw na sëñ bi tëggum Mbay Saar mu ne bàyyi leen ba mu ñëw ngeen ndax moom comme nitu kii la te mu xam lu mu lu ñu ci jublu ba ko ko laajee sëñ bi ne ko da ngaa bëre sëñ Mbay ne ko da ngaa bëree ba daan xeex ba dàq te bakkuwoo man nag mënuma ko muñ moo tax ma lay bakku moo tax muy jiin di ko bàkkul man maa tippoo bàkkul waaw ah, di ko bàkkul hmm? mm-hmm. te sëñ bi dañ ko war a bàkkul ndax moo daan mbër mbër sax léeg-léeg mu daan nga gis ay supporteurs am yuuxu daw yëkkati apprécier nangam nangam nangam loolu la doon def ni taxan di jëf doon borom mu cër bañ bàddil ko murid di xam leen ne mm-hmm. euh, Bakar Sarr mm-hmm. maj soob la bon wamat du xam fa jaar defe naa gars yi ahlu tasawuf moom nangu na mëcc sóob ni nangoo murit nangu muraat lañ xam mëcc sóob moom dañuy moytandiku mëcc sóob moom mm-hmm. gars yi mm-hmm. dañuy moytandiku mëcc sóob moom mëcc sóob mooy mm-hmm. général ci a mooy général mëcc sóob mooy général ni gars yi fonke arme général bokku ci gëbi yii général noonu mooy mëcc sóob la bun wammat doo xam na muy jaar xam nga murit ak muraat bokkut ki nam yàlla ak yàlla namm bokkuñu waaye mëcc sóob bi nag dañ ko bàddi nga boole loolu lépp nag dajale ñooñu ak kàngam yoo xam ne kenn xamul nañu toll nga def ko ci sa biir yi bokk tàmbalee ko ca kala ak mag di sëñ Mamor Diarra mi borom Cham nga bokk ak moom lépp muy nafila téeméeri rakka jàngal la ba noppi nga woote mu jublu ci yow loolu xam nga doyoon na li jël mm-hmm. lu woon mag joo xam ne daa toog nii rek de mm-hmm. sëñ mu dem daana wax ne jaamu yàlla ak ngem njaboot mm-hmm. xaw ma ci ku mel ni borom saam sëñ Tuubaa nag kenn xamul lu mu doon waaye borom saam mat la borom jamono mm-hmm. say nijaay ak say bokk ak ñëpp jël seen bopp jox la te ku ne teg ko ca yoon woo xam ne kenn ku mën a corriger sëñ Tuubaa virgule wala nga dégg koy nettali ba ne sama maam keroog ba mu demee fekk sëñ bi daan lu amul waaw lu mu la joxoon ci yàlla rek moo la ciy jiitu amul daal bu muy tëdd du noppalu lu dallu tey nag loo ko jox jox na lu ko raw boo ko joxee kal lu pepp mboolaa ñuy bay di la jox boo ko jébalee mbaam ñu jëli kat kat di la jox boo ko joxee juróom ñi takk million di la jox moo tax dëlëf dëlëf ji ci yoon yi comme naqari da muñ carte gi jàll na ku mënta dellu sot waat affaire bi mu amaat rek mënoo ko réglé waat yàlla xam na kenn mënatu ci dara lii xew nii du ay élection yu ñuy wote carte ak naan nangam amut amul fu ñuy déposé kii bi it naan nañ def recours ndax liñ attee bokkut amut jeex na ku mën andiwaat jeewal andi tubaab yi histoire xewaat yëngu xew ku mënaatul loolu mënoo changé système bi mais mais lu tax ngay véhiculer stress bi nan yoon yu amul stress sëñ bi damay gis gaa yi sax ci internet bi yenn saa yi sa wax jooju dañ koy dañ koy attaqué nga ne dafa neex ndax amul attaqué amul stress ah xam nga mi ngi tàmbalee ci ñooñu attaqué te yëguma leen xam nga ñoom ñooy am stress mais man yëguma stress man sëñ am sama nopp du déggul naqari man pare naa ci yooyu man mii di mujj ñëw ci yëf yi rek yooyu du ko dégg déglu fi ne nit ñee la koy wax waaye parce que man comprendre xam naa ne dëgg laay wax te ci dëgg laa nekk te ki ma nekk nekkay dëgg mais yow li ngay dégager lu mu doon lan moo la war a mën a naqari am xoolal sëñ bay jaxat dane alhamdulilahi nun am nañ lu nu euh, am nañ sëriñ bu nu doy mhm. bu nuy fegal lépp lëf loo xam ne bëgguñu ko moo mhm. sedd ab mhm. xol te dal am xel te buur yi gëti te doy sëriñ si yëpp ak yëfiri kenn yëbbu ko internet bi mën ngaa fexe ba duñ attaqué kenn kuy attaqué sëñ Tuuba gànna mesere boo ko attaqué la koy barkeeloo te yow mi may attaqué yow yaay kat man yow bokkul yow benn li njëkk di tardé mooy xam gi nga xam taxaw ma la ma la njëkk a gañee mooy li nga ma xamee taxaw ma la yow jënd sa te man xaw ma xaw ma la aw ma Facebook aw ma aw ma nangam ah WhatsApp amoon nga ko parce que dégg naa la bi nga ne amoon ah, yaa ma ko installé woon ca Makka yow ñoo bokk benn nekk hôtel ba xamatuma woon nu mu tudd buruju la buruju la ma di leen àbb seeni téléphone di woote Sénégal nga ne ma aale bi mënuñu la koy aal lu bari ndax dañuy jox ko yor nga téléphone andi ñu installé la téléphone bañ ne ko Moustapha Kane Moustapha Kane sax laa ko may fan téléphone bu cher la woon yow mii yaa ma ko installé na ma nii lañ koy defee Ibrahima Fall Lamp defal ma ci loo xam ne bu pour bu fekkee nekk naa ci réew mi bëgg ñu jot ma ak ma waree yote yow mii yaa ma ko installé lañ ma ca envoyé bañ envoyé war naa la ko ñëw naa ba ci yow na la Amidou lii ñu ma yónnee lu mu doon waaw ah, nga ne ma ginnaaw aj gi. jàpp ñaata message ci saase. ah ñaata message nga woon ci sa cinq mille. waaye benn ci yónnee moom doy na nit ñaa ma koy laaj nag maa dégg ñu ma koy laaj sax di naan lañ la yónnee waaye yow am na ko la ngeen koy laaj am ndax moom ma ko loon te bañ ma ko yónnee woon naa ko yow xam nga ne yaa ma installé whatsapp boobu ndax man xawuma ay whatsapp ak yow yàlla xam na ko du dara li ko waral mooy li li tax mu di ma gën a soofi day gën di continuer parce que man xam nga yambare mënta weesu changer sa profil sensé <laughs> sew tur làqatu ci ginnaaw internet di wax yow doo góor ñàkk jom googu koy bu la doyut man dama am sa temps mais est-ce que du yenn saay sa communication parce que yenn saa nga dégg euh, xam nga boo amul ñu la jox nga sol sa mbubb mu gàtt wala nga si ci amoo ñu la topp ba pare ngay teg sa communication. pour boo pour lan boo amul ñu la jox yenn communication. ah waaye léegi amoo ñëw ñu liggéey di la jox ba pare nga naan ak cëriñ gi bidan la wala sariyan la wala nangam. mooy li ma la wax ra ran gii ñuy bañ ko ko dagg. ku leen rang dong lañu bëgg te kenn du leen rang billaahi sunna moom dina ko jaay ma jaay ci réew mi mooy ñàkk jom sëñ Tuuba ak ñoñam foo leen koy jaayee sëñ sëñ bi yow dëkk mas ngaa dégg wenn xeer wu ñuy tab tabax ci yoonu murit kilifa jiite ko ñu ne lañuy tabax ab immeuble boo xam ne dañ ko bëgg di luyeeg wala dañuy tabax na loo dégg ñu teg kow xeer néegub yàlla lay doon jàkka juma baa daaray alxuraan milliards yoonu murit yépp ci jàkka la dem ak jàngukaay liggéey gii nuy liggéey di jox ñii nag ak topp leen seen maama nu ko defal ginnaaw yow toppee woo ba noonu toppee rek te kat am na ñu leen topp ndax saa yu ñuy wax gis naa mbooloo mu leen topp dañoo amul lu leen defal loolu seen problème ndax ñoom amuñu ku leen defal ba ñuy defal ñun yor hmm. te sëñ Tuubaa moo wax ne moo wax ne mm-hmm. rajaa u man ahabbani mu xaqaq inda alladi lii amali yu xoq sëñ Tuba ko ca yaakaar ki ma bëgg du tas lim yaakaar lu dëgg la mooy am ginnaaw moom nag moo nu woo ba noppi na li ma leen di wax am na loolu kenn mënuñu wax sëñ Mamoor Jaara borom saam daana wax ne sëñ Tuba woowu leen ba ngeen ñëw mu door a wut la mu leen jox da ko am door a woote te lii ma la wax rek ci nekk mm-hmm. yoonu murit ba muy door a tàmbali dañ naan tàkk-tàkkal boobu laag ay nax laag mënta sotti ak murit yi jànguñu ak diina ñuru leen loolu la ñu daan wax tey jii bu doon xëccoo ëppi jàkka kenn ëppale wunu ëppi juma kenn ëppale wunu naafile kaamil alxuraan baa ngi am Touba boo fa ñëwee gone fukki at ak nangam ku nekk jul nga doom ji mokkal alxuraan bindi kaamil mhm. diine ji ñu jàngale boobu gàggoon gone yee koy lijjanti mhm. ama barke bii jëm ci njabootu sëñ Touba gi nag ku jàpp ne moom ginnaaw sa maam bukk ci woon rate na rek nit day nungub dogal te espace bi dafa fatt fi ne kenn mënu tuta ñiy woote sonn na fi ne ñii doon nañ ay murit ñi doon Tijaan Pape Laaye nga ne kenn mënta wootaat ñi doon ñeseen ñi doon xaadir espace amatu dañoo occupé terrain ñi dañoo doon murit ñi doon Tijaan ñi doon xaadir affaire bi jeex nga ñëw ne cëpp ci digg te xam nga li tax affaire bi soof mooy waaw yow miy wax bu fekkoon da ngaa juddoo woon ca ginnaaw Arabie Saoudite ñëw sax ñu xam ne gan nga waaye yow sa baay ak sa maam kajoor gi la juddoo woon ak ba bawal ñu xam la yow nga ñëw jàngi ñibbi si ñeenti téere bëgg contre te bëgg a duggale ci boole da ngaa ku bees ku nu mën a convaincre moo tax dégg naa keroog koy wax naan man li ma jaaxal mooy loo mën a wax te bokk ci benn tarixa duñ la faale li koy def mooy li nga fi indi daal da nga ko fay fekk <laughs> ñëw yëtul lu bees te borom dañ laa xam na nga fi nga juddoo sa ñaari maam ku ko topp ko doy waar doon doon doon loolu dong nga doonoo ku bees affaire bi espace amut tijaan yi pare nañ Pape Laye ngi ne mënoo koo gëm mënoo xaadir yi nag ñeseen yi laa ilaha illallah wasifa yi riir xasida yi murid yi gën a rokkosu gën a sakk ci sëñ Tuubaa nga di leen aj ajal ak karkaral naan leen moytu leen taal yi tàkk boo leen ci ñun baax na ñoom sébb bi nañ tàkk ndax buñ ca daanoo dee baax doy na loolu la waaw koo ci gis li mu dégagé rek lay encaissé li muy dégagé rek lay encaissé bëgg àddina mbooloo dong kepp ku ci sañoon mm-hmm. xam ngeen ne sëñ mur sëñ Muntaxa mi daa ko daa daa daa daa propagande kenn fi na am nañu takk addi di xaar mu ubbi bañ dem siyaare ji boole ko di joxe di jooy noonu la ñuy ràngee kër keneen ràng keneen ràng keneen ah, boo demee fee ca Mbakke tey institut islamique bee ñu fay tabax ay Baay Faal koy tabax. Mhm. ñaata milliards cay dem université bi ñaata milliards ciy dem ah? waaye ku la dàq jotu la nag lu mu for sànni la. dëgg la. te man aw xas xam nga kañ lay metti ci man. Hmm. xas woo xam ne man doo nga ko moom moo may metti waaye xas woo xam ne sa bàyyi nga ciy jiital ndax boo nee gëmoo leen diine ba noppi wedd dina sa bàyyi gëmul diine kon koo xas ko metti ñi des nag di wax nii. jëluñoo faale ñooñu damaa wax ne xam nga li ci neex man bala may kontaan léegi-léegi bu ma gars yi wanee dara na ma am na kuy wax nii damay bég mooy li ma la wax léegi xam gi nga ma xam te xawuma la gañe naa la ci déglu gi ngay dégloo dara man ci di ma ci en loolu man neex na ma ndax bi nga eenee am na ku may wër ngir lu ma jox waaw waaw léegi nag nan laay ñàkke fayda bi la maa ngi yow ne ci terrain bi di affronter rek mm-hmm. nañ defante rek mm-hmm. rek nañ affronté ah man moom du yàgg ba li ngay wax moom ma di ko déglu ba di la lijjanti moom parce que man li nga am baax na xam nga yow comme man yow da nga kaani gaa ngi kaani gaa ngi kaani gaa ngi te man suukar ma intéressé dama lay bàyyi ak sa kaani rek ak sa tisli mais man maa ngi suukar si <laughs> foofu laa nekk ngay wax rek waaw <laughs> jërëjëf sëñ Gana Messere Makhtar euh, tey moom lañu am ci émission bi ah. euh, tubaarkàlla euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi bég bu baax a baax a baax a baax a baax gaa ñu nee nañ tey moom diiwaan spécial diiwaan la wuu euh, euh, kéemaan la message yëpp mënu ma koo liir euh, sama yaay soxna maam Matim Cheikh Mamadou Fadal. maa ngi lay ziar di ko ñaanal ma téléphone ku baax. wallaay soxna maam Matim mi ngi lay topp nee na bég na lool. macha allah soxna maam Marème Bousso. ku baax sëñ Bousso imaam soxna Adama Mbacke moom bàyyam da nga mën gaañu sëñ Fallu. maam awa nee na moom mënoo ñàkk a wax ci sëñ Fallu dara. sëñ Fallu ma ne sëñ Fallu bàyyam moom. waaw moom soxna maam du seen morom yabulul xadimi la si yudduha bi fadlina maanaa la fadluka la unsa wala dakar sabaxta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadail lam tusal fiha fikar laqad tanashata min samsin wa min qamarin fa sirta bahran min al anwari tasdaxiyu sarti lislaam yëpp la matal ab jullit la aj na makka tabax na juma bind alquran galas bàyyi mee na ko di faj aajo xotti seetir tas yaakaar doo ko ko laaj ku laaj mu jox la nga gijal fa lu xan niyu la mm-hmm. kooku boo ko doon waxtaane na nga neen waxuma la ak na ci jotaay dëgg ndeysaan kenn mënta am ku mel ni moom. ndeysaan te moom jaay na léppam da moom moom moom mi kenn mënta am ku lu mel moo ne. yaa raa iman misla cheikh yi maxalam fa lasta tara yow miy wër ku mel ko gis ku mel ni man sëñ Fallu mënoo koo gis noppalul jumaay Tuubaa jee bañ koy tàmbali nu mu meloon. Mm-hmm. kan mooy Cheikh Moustapha kan mooy sëñ Fallu xoola taxawaay boobu ah adduna bépp fi ne foo dem dégg tijaanub sëñ Falloog njaagob sëñ Falloog naarub sëñ Falloog tubaabub sëñ Fall lépp ak sëñ Fallu te loola jëf rek a ko may bëgg sëñ Tuubaa na ko dan dàq jaamu yàlla ñëpp raw ñëpp gën a dégg ñëpp arab ëpp ñëpp xam-xam mm-hmm. jaay lépp jënde ko taalibe bi waxtu bu nu watee biir irada lakum li kay awsa bi xar xaada mm-hmm. min baax di ma staraytumuha min nii fi in ahdaytuha lakum bi xayri man mm-hmm. sëñ Amidou yëf yi lu leer a fi nekk jërëjëf eh, alaaj sëñ Gana Messere Maxtaar tey moom la ñu am ci plateau bi eh, mu toggoon ak coono yu bari bi muy ñëw ndax bi mu yegg si fii eh, booba tubaarkàlla coono yi metti na waaye sëriñ bi ak mbégteem taalibe yi ak ni ñuy dunde sëñ tubaa jaral na ko mm-hmm. di ko sant bu baax te gis ngeen waxtaan wi ñaari tomb yi jiitu ni mu ko ni mu ko leerale ndax li ma jot ci bataaxal bari na waaye tey émission bi dama bëgg mu saf sëriñ bi nu bàyyi ko mu waxtaani sëriñ bi moo waral tey dugaluma sax laaj yu bari dama koy bàyyi rek bu mm-hmm. waxtaani sëñ tubaa ndax euh, li may wax rek ne moom murit yi ñoo ko soxla noonu ndax li muy wax nun la neex nun la intéressé nun mm-hmm. la engagé kon nag noo ngi koy sant bu baax a baax eh, kilifa yi nga xam ne teew nañ fi wax naa ko léegi sëñ Abdourahmane Si tubaarkàlla tey moom day boole bëgg ak di ree sëñ Abdou Lahad bu sa maram dama bëgg ci kanam ma jox ko kàddu gi mu defal ma benn synthétise boo xam ni mm-hmm. ndax mi ngeeg ay abyaat yoo xam ni mm-hmm. doy na kéemaan dafa mel ni général Cheikh Ahmadou Kra Mbacke Noré ni tàbbi na ci biir jataay bi eh, ku baax noo ngi lay nuyu di la dafa mel ni ba waag léegi yaa ngi topp jataay tabarakallah waaw Mbacke noo ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax Mbacke. waaw naawaadanillahu min acheytaan wa xaadali manaafihal awtaan. Mhm. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam mhm. eh, ngi leen di ziar yéen ñëpp di ziar eh, Cheikh Ganna. Mhm. Hmm, Cheikh Ganna mooy gën na. alhamdulilah. alhamdulilah Mbacke. Eh, ñaar ñi nga xamante ni bii du yéen ñaar képp sax waaye bu ma leen tuddee tudd naa ñi ci des ñëpp. Mhm. Eh, di ñaanal Serigne Abdou Samad mi nga xamante ni bii. Mhm. moo feeñaloon yéene ju rafet ji ci yéen. Mhm. waaw donte du yéen ñaar donte du yéen ñaar képp sax waaye. dëgg la. da ngeen di yóbbaale ñëpp. dëgg la Mbacke ndax képp koo xamante ni bii moom da ngay tànn ay murit rawante naag murit sadiq wa nabi ndax yéen mm. ay nabil ngeen mm, ndeysaan alhamdulilah murit ñett la ñu murit ñetti murit a am dafa am murit rek am murit sadiq am murit sadiq wa nabi alhamdulilah rabbil alamin murid sadiq wan nabi nag moom la ku tedd kii wan yoon wi mhm. uri li wacci maliki sabila mhm. kulla muridin sadiqin nabila mhm. moo tax jëwriñ mënut a ñàkk ku mel ni Serigne Abdou Samane nag ak ñi mel ni ñoom nga xamante ni bii dàkkuñu dara lu dul bëggu ku tedd ki ñu xam ku tedd ki li mu jëfal alayhi salaatu wasalaam ak li mu ko jaral أنت الكريم أنا القديم دهرا أديم فيك ثنائي gis nañ mu teg ca rumtum tidaaha yoxti falaaha yakfi iftidaaha maal anay tekki ni inni bi maddihi ayantu ribbihi qatan wa nujjihi maal binaay ñu gis ni li ko yonent bi jaral hmm. la bista siyaabal majdi wal fadli wal hula hmm. wa fiika min al axlaaqi maa ahjazal kulla hmm. rafani iqdaamu xayra rusuli rafan bi wafaqtu kulla mursali wa quttu amdaahi li rabbil alamin رفعت توحيدي li rabbil alamin waquttu am daahi mhm. ahmad al amin loolu moo tax ñun ñi mhm. di wax mhm. waxu na ko ngir yëgle li ñuy def déedéet tout tànk yi daan feeñe ci man ku tedd ki rek la daan jox tur wi waaye diggante daaw ak ren nag ma koy jox alayhi salaatu wasalaam ngir jëmmi ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngir di ci ngir di ci wut mbégteem ku tedd ki mhm. noonu la sëriñ Abdou Samad di def ak yéen ak ñi yóbbu màkk ñëpp ak ñeneen ñi mel ni moom ak ñi ñuy yóbbu ñëpp wallaahi mbàkke bu ñu seetloo ku tedd ki mhm. bu ñu dee faral di settantal ak di leen déglu yéen ñii. Mhm. ba noppi bañ a yem ja rek ci di leen déglu di settantal boole ci ci téere yi ak i waxam. Mhm. ndax daf ni waajahani bil bishri kulla layli mahan naharihi mhm. wa taaba nay di guddi gu nekk ak bëccëgam dëgg la la cay bëgg la suñu borom di bëggal jaamam yi lépp mbégte mooma jot na ci waxaat ni waajahani bil xayri kulla yawmi wa kulla shahrin waa wa xaw qawmi kii kay wax dëgg yàlla nee na bis yi ak weer yi li ci di aw yiw lépp yàlla jox na ko moo tax muy guider peuple am nañu nangu mu guider ñu pour mu guider ñu nag pour mu guider ñu nag wax dëgg yàlla dañuy nangoo tegtaloo ci ay tegtalam ci dalilam ay dalaayilam lu leer nàññi la yi xew bari na ci àdduna bi ba Iblis dinu ci jéem a laawaale te dégg nga li ma tàmbalee awdinilaahu mina seytaani moo ko wax yàlla musal na ma ci seytaani te waxaadi li mën a fexal awtaan te jox na ma njariñi dëkk yépp waaw loolu duñu ko gàttandu waaye dafa am façon dañuy faw nu façonné waaw wax dëgg yàlla waxoon naa ko te naa ko waxaat Sénégal dara waru fee xew lu dul jàmm dëgg la Afrique yépp ci Sénégal la war a roy adduna bépp ci senegal lañu war a roy ndax mm-hmm. kii fi feeñe ci wax mhm. mooy malaas mooy mabsa mhm. wax dëgg yàlla nanu dimbali suñu bopp dëgg la caaxaan yi bari na bari goo xamante ne bii nanu dimbali suñu bopp mbaa nu dimbali suñu njaboot mhm. caaxaan yi bari na lool léegi nag man ah wax dëgg yàlla waaj ji ñuy waajal mbàkke li tax ma ni nañu ko defee mbàkke mooy fala feeñe waaw man mbàkke dama koy jàppe ni màkka tubaa dama koy jàppe ni madina al munawwara ndax loolu laa gëm loolu ma waral mawdu ba nekk taddi mojj hmm. waaw hmm. ñett baax na hmm. waaye tati it mojjaani itam am na yeneen ñett waaw ñett yu baax amee yeneen ñett yi nag moom mooy contraire u mooy mooy safaan ba mooy aks ba moo tax loolu lañ fa bëgg a développé te di ca woo ñëpp nag wax naa ko Cheikh Gana nee naa ko Mbàkke ji moom ku fa ñëw di nga dégg loo mës a te lépp ci dëgg lay tege mhm. waaw moo ko wax de hadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilaahi kasa taq yihi dahaq ngeen baal ma àq nag ndax man xam nga bu <laughs> bu may wax ak yéen ñaare. <laughs> daanaka du ma xam lu ca yem. ndeysaan ndeysaan ndeysaan du ma xam lu ca yem. fi mu toll nii fii. Mm, mm. émetteur bi moo xaw a ba mënuma leen a gis ak yooyu waaye moo tax ma ne ko rek nañ yem ci waxukaay yi. Mm-hmm. ñu ngi leen di ziare tey ñaan ku tedd ki nag maanaam mm-hmm. lu ci wàcc ci wiw rek. mu mm-hmm. fulandi ko. amiin ba eh, sëriñ bi ilaahi boxda sayri bi jaahihi wali baana xayru sax yi. baada istibaahihi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ndeysaan. Eh, bëggoon naa ko laaj sax benn bayit bu muy faral di wax boo xam ni ci moom laa ko njëkk a dégg xam nga naa la dégg nga ne li mokkal ci bayit te waxtu waxee gis wenn bayit bu mm. bees la bi mu ne bi sëñ bi ne yow yàlla dama bëgg li nga ma fay mm. nga fay ci say yonent mm. waxut li nga fay yonent nga fay ma ci de waaye yow li nga ma fay fay ci say yonent te na saf lem na saf suukar mm-hmm. wal tajzi anil anbiya wa rusula mm-hmm. xayran yu diimu sukaran waasala mhm. ci moom laa déggoon tam mu ne waccangal kalaam yi naafian wa saafiya mhm. gis nga dongaam mi maag sëñ Abdu Laat mi dem nañ fa ñu di ko ñu di ko def njàng moo xam ni ah, sëñ bi foo nekk sa àddina day tukki mhm. yaakaar naa ne bis boobu muy woote foofu ci Mbàkke muy bis boo xam ne ni bisub sant ak sargal Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul muy samedi bii la 3 sëñ Gànna mii war na faa def waxtaan wu am solo ca Mbàkke Bawal mu taamu ci rek dunduk sëriñ bi ak jaar-jaaram ci Mbàkke Cheikh Euh, muy def loolu nag miraaran ak ku mel ni moom ak Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaïbou ak Serigne Moustapha moom Cheikh Abdou Leen Baara moom Cheikh Abdou nga xam ne waxtu wu ñuy def émission danañ fexe ba ja tàbbi ci biir ñu ah, nañu ñu waaw leen góor ah, li ngeen di def neex na ñu di ko ñaanal bu baax se général yàlla na ko sunu borom ah, gën a dëgëral may ko kattan may ko mu yeggale li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba Khadimou Rassoul mm-hmm. ndax kenn la ci nun mm-hmm. te it taxawaay boobu la am ci nun mm-hmm. euh, te it toll rek mbégte moom day wax ne su ma su ma toogee sax mel ni ku xaw a est ku xaw a xaw a tëju sax faaw ma jot sëñ gànn wala ma jot la rek damay firéeku mhm. ndax su boobaa damay mën a wax ci téléphone bi lépp day denc ci sama xol ndax bëggam sëñ Touba ñu ngi koy sant bu baax di ziyaare euh, sëñ Omar Bamba Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex mi ngi topp jataay bi ak euh, sëñ Moustapha Guèye yegsi na léegi moom tubaarkàlla xam naa faaw nga laala ko ci borom daaru fi ne yéen ñaar yem ngeen benn marque ngeen am tubaarkàlla ma di ko siyaar a baax Euh, ñëw na léegi di ko baax moom it di koo xam ne it taxawaay gi mu taxaw ci sa wet it wax dëgg yàlla mbégte lañ ci am ndax lu baax lu nit mën a defal sëñ Gana dana ko yaatal ba ñëpp mën cee jariñu te it lu baax dañ koy génne nit bu sëñ Abdourahmane mi jëloon ni marakis jox ko sëñ Gana sax neel marakis yi sëñ Abdourahmane ah, ndax dafa am loo xam ne nit mën na ko la sëñ Tuubaa wax naan dañ naan àll jërta gën a mat mu ne ah kay am na àll yu am mat te mënoo koo jariñoo dëgg la loolu lu am solo waaye nag sa xarit sama xarit tàbb si na léegi muy sëriñ Mor Gueye xasida mhm. di koo xam ne gis naa léegi moom it benn rabu ndëpp la muy sëñ Fallou bi nga tuddee sëñ Fallou mu mën a jàng lool nag barki biig daje nañ ci tali bi muy wax ci yow di seede ni ndax mu murit la sëñ Mor moom lu ma loo ko mën a gis muy wogg garam bu di noggatu waateeg yëpp boo nee sëñ Touba musumeeku moom loolu moom ba jërul sax di sori loolu moom <laughs> loolu moom <laughs> waaye maa ngi koy a baax a baax bàyyi laat bu sa maram maa ngi maa ngi koy dolli nuyu baax a baax mm. ak Euh, sunu sëriñ bi euh, sëñ Cheikhouna Fall sëñ Modou Mbacké ngi nii mu sëñ Abdourahmane euh, xam ngeen ne ñu ngi waajal màggal Dar Salaam la 30 incha allah soxna Maawa gis naa ko léegi mu aalu aadama Ndiaye gis naa ko léegi bi nga nee sañ Bay saar moom Touare Kalla ñoom maam Cheikh ak ñëpp a ngi message madame si gis naa bi nga nee sëñ Saliou mu aalu sëñ Maguette Touare Kalla ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax waaye nag man sëñ Daaru mooy sama conférencier. waaye nag yow yaay yaay conférencier wu sëñ daaru sëñ daaru xam nga fi ne dama lay gën a sori fi ne loolu mooy problème bi hmm. ndax sëñ daaru nee na fu sëñ gànna jege du fa jege fële laay taxaw bu noppee nag ma ñëw taabal ji ko tegal sax damay sori ba taabal ba noppi ma door a jege taabal ji waaye sëñ gànna bala ñoo ñëw ci quatrième point bi mooy réalisation Cheikh Amadou Bamba hmm. tey wax nga léegi ne mag ngi ne ku ci nekk la la sëñ Touba defal hmm. moo waral ngay bëmb di bëmb ci façon boo xam ne dañ naan ñii la ñoo def seen bi yàlla fekk lañ gis la Cheikh Samba Diarra waxoon. Mhm. lañ gis teg ca bët. Mhm. loola moo leen fees ba àndatuñu seen sago ci loolu. Mhm. léegi na ngir gën a jege loolu. tey damay seetaan sa benn waxtaan. mu mel ni lu la marqué la. muy sa jaar jaaru sa waajur wu jigéen. nga wax ni bari na lu ma sëñ Tubaa defal lu mu fekkewul te bu ma sañoon mu fekk. am na ci loolu nag sëñ Tubaa ma ko def. ma waral man gànna man gànna sama obligation man. sama devoir ci àddina. mooy di sant sëñ tubaas sama njur. Ah, ban jeexit la def ci yow. ah loolu xam nga xam nga man sëñ bi damaa bëtale wut nag moom dafa jëflanteeg man directement. Hmm. ci ji ëlliwu ju gàtt ji ma gaar ci xam sama bopp rancé bi may daw ci néew xam-xam. Hmm. waaye loolu lépp moom gisu ko moom xam nga li ko ñor mooy ko ko ñaax ku ko wax ko wax nit ñi moom ku mu doon rek ba tax na damay wax ne sëñ Tuubaa nag gëmewuma ko ci nu mu def nit mhm. ci bu dee def defam fi ne kenn ku ne ni la sëñ bi def rek moo tax doo si tollowut te defe naa méttitu jàmbur neexute yëg ba neexu jàmbur neexute yëg waaye li nga mosal sa bopp yëg ko guu boobu yow yaa koy xamal sa bopp te ku mos bu bëgg sëñ Tuubaa rek fàtte lépp loolu mam Balla moom sëñ mam Balla borom saam doon wax ne man zaaxa taxama xubbihi ansaahu kulla xalaatu ma yaxwa loolu nag mooy wane rek yëg sëñ bi rek xam nga dafa am yoo xam ne day day day xaw a day xaw yéeme ci man day xaw a diis waaye ay gët moom ku ko yor walla nga yore nopp di déglu bu la diw nee nu ma mel sëñ bee benn nga xam na meloon démb wala ni ma mel tey wala nga xool danga xam ba xam li muy wax nan la mel mm-hmm. ak lu ko waral ndax defe naa léeg leen nga dajeek nit ci mbedd wala cib yi bu lay nuyu lijjantiwut koo doon lijjantiwul noo sant lijjantiwul foo dëkk lijjantiwul ku la jur yaa ngi wax baaxu Sëñ Tuubaa gi rek mu fàtte boppam ngir yow mm-hmm. tey jii misaal sëñ Pape Laaye nga ne waaw mhm. taaliba la dem daa mujj na ma damay wut kër fa sa wet fa sa wetu kër laa bëgg a wut kër tabax fa kër ndax dëkk ak yow ndeysaan hmm? loolu lan lay tegtale mooy sëñ Tuubaa yow suñu nekku ci lépp moom rek lay doon te xam nga dafa am loo xam ne sëñ bi dafa tey boo sañoon boo mënee dara boo mënee dara man koo defal say way juróog yooyu sax loolu lu neex la hmm. waaye li ngay sant yàlla it mooy ginnaaw askan woo bokk gën ñëpp yombul waaye fa nga bokk bu la kenn gënul mu doy te ku la wax na laa moom de sëñ Tuubaa def lu ne nit waaye yow de mënoo ñàkk a mel ndax si ay baax na xam nga loolu neex doy na sëkk ci neex dëgg la xam nga loolu daa neex hmm. Hmm? moo gën ñu naa ah, yàlla de mën na lu ne ay guy dana jurub xatam waaye muy man muy yow muy sëñ Abdoulaye mi muy keneen ku mën a doon mm-hmm. xabtalu lu nu dal rek sëñ bi na ko yóbbee noonu fi ne lu nu dal ki naan dara ba ne ci mbedd mi di wëndeelu biteel ba mu naan lu ko dal biteel baa ko yóbbee rek ñun ñi li li doos bi ne ci sëñ bi li mu nu ci falaas tuuti looloo jàpp rek moo waral ngëlam teleeg mànd teleeg coow leeg nangam nangam lépp a ko waral mm-hmm. waaw waaye nag ndokk ndax fu nu sëñ bi toll bañ di ko sant di wax du wax di wax lu baax am na ko noonu sëñ bi toll na ko ba may wax bu safar mm-hmm. hmm? kon kay léegi wax dëgg yàlla lu mu jaral kee war na ñoo jaral lu ko raw te sëñ Amidou mm-hmm. sëñ Amadou Kara Mbacké nooré nii wax loolu rek la mm-hmm. xam mi ngi tudd sëñ Abdou mu sëñ Choyb bi mu yóbbu Màkka wax nga ko yóbboowu la Màkka ngir sëñ amidu Diop yóbbuwuma Màkka ngir Gana waaye sëñ Touba tax Mhm. te tey bu dee sëñ Tuba moom mooy sëñ Tuba ci nun ndax moo nu gën a jege sëñ Tuba kon li ngay xamee loolu tey moom mhm. léegi lu muy war a sintuwaat ci am Gana Messere ba tax mu di ko war a yóbbu Makka loolu lépp ñoom fu ñuy dàkk bëggu sëñ Tuba rek la sëñ Amadou Kara Mbacké nooré nii mi noonu lay def dalay wax na la dama la amel salaire boo xam ne dama la koy fay par weer ndax sëñ Tuba xoola loolu xam nga léegi ci bëccëg lu ma wax bi ma jotee waaw dana ma te mois de novembre la ma waxoon weer wu ma jox la salaire salaire wu te mois de novembre ba léegi. Mhm. tey damaa bi ma jotee téléphone tey dana ma dama koo xool sa xam ne li gënal ku tedd ki mooy loolu ni ñu koy defee du mat dara nañ koy multiplier. te moom du ne la dama lay jox salaire ba noppi la 5 doo jot la 4 lañ nga ci jot. le 28 la koy jox un ah. an mi ngi ma koy jox man. Ah. salaire bi 28 ah. waaw. bi mu bi mu tardé weer weer dana ma dama dama damaa war a fay damaa war a fay dama war a fay euh, alamaan sëñ laat. noonu la ko waxee damaa war a fay alamaan bi waaw jël enveloppe boo xam ne ay deux millions xanaa boobu moo jegoon maasul fi ne damay daal di kii ah. mooy alamaan bi ah. bi ñeent fukki junni la kon salaire bi a toll léegi nag loolu léegi nag léegi nag loolu loo ci war a xool la def war a xool hmm. maa ngi lay wax léegi sëñ sëñ Modou Karamé waaw Karapano mi ak sëñ pa hmm. ab Pape Laay hmm. mi lañ xamante laa àndal bi ma waxee man ba man xam nga ab ab kon xaw ma dakaar xaw ma ñu may seeteeg yooyu li ma leen di wax man saa Touba laa bu ma gontee ñëw fii lay gont dellu xam naa ne war ngeen li tax nag ngeen toog fii war ngeen ma ko xamal ba ma ma ma war a toog fii la la dof waxoon ndar daal dañ ko joxe ceeb bi mu lekk ba yàgg mu ne fii de buñ ko du teree ma toog fi waaye man mi waroon na maa xam yeen ñii li tax ngeen di fi toog sëñ Mor Gueye ah, ah ba ma man fee toog. waaye li may misaal mooy ñoom ñi bi ma ñëwee keroog. Mhm. bi ma ñëwee fekk naa ñu defal netaal boo xam ne cadeau bu ma mos a jot moo ma gën a neex sama àdduna. bi ci jëkk mooy sama woy juru jigéen awuma benn nataalam bu ma nangoo def fu ma ne. ñi ma xam sax ma dëkk ak ñoom ñi samay soxna ak sama njaboot xam nañ ne kenn du tudd sama woy jur sama wet ba tey jii yàlla ma ko nattoo. lay lokki sama xolit mooy la ma yéene di ko bëgg te am nu ma dundee woon ak moom xam loola loolu rek ma jàpp ak sama yaakaari àdduna ak rek yi nga xam ne mooy si sëñ Mouhamadou Makhtar ñu jël photo boobu boole ko defal ma ko ab ab cadeau ma ñëw ñu bett ma ca yëkkati ko jox ma nga xam dama dem sama saal mm-hmm. ba biir ci laa ko def di ko gis xale yi dañuy ñëw kon maam nii la meloon xamuñu seen maam. ndeysaan ah, kon nii la maam meloon ñaan daan nuru diw ak dama leen di tëj damay tëj saal bi rek bàyyi dem loolu sant naa leen ci lool. Mhm. taraanga yeen ca boole kenn xamul lu mu toll ndax limub ay parfum yoo xam ne ba ca gën a néew ñaar fukki junni lay montar bii ni ñi ni ñuy ni ñuy miite oto lañ koy miitee mhm. utal koy këyit du montarub kii te man yàlla xam nga man sama sëriñ sëñ Mourou Moukhtar damaa dimbale woon ci ay montar kii ah ma sa takk montar boo xam ne mooy montar yow yooyu daan xongu tey jar xaw ma 1500 wala ma takk ko màggalu Daaru Manaan di ko xooy ma sëñ bi daal sëñ Mourou ndax biir yéegi ah booba foofa la sama doole tool jàpp naa ne fi ne góndi naa sëñ Maxtaar ma koy def nii sëñ bi ne ma ma ñu mu ne ma bul takkati montor yi mel ni montor bi nga xam ne boo dendeek ab bassin sax mu taxaw montor bi dafa ruus ba fay moom bañ a taxaw hmm? loolu mën na maa jural nga mën a am wari su montor woo xam ne montor bi defe naa buñ ko doon wecc ko dana mat dara de hmm? mhm. boole ko kaamilu alxuraan yu cher kaamil boobu talaata moom laa bëgg a yët sëñ Muntaxa ndax soppe yi ma am ci Facebook bi mhm. fédération lañ dama ne leen man du ma sëriñ bu ñuy dajalee di ko jox boo leen amee nag seen addee joo lañ ma sarax boo leen ma ko joxee ma jël waaye li ñuy liggéey ci at mi mm-hmm. fi nag ni ñuy def dañuy dem ca maam jaara yi dagg ci ay maam jaara yoo xam ne ñun xamuñu ko muy doon en tout cas daal rosi bi soppee gànname si rek nag ñu pare na ay maam jaara fayal fayal leen seen at jàng jébbal sëñ mun tax Muntaxa addiye fi ne loolu talaata laa jot jaar bi kañ nga ko talaata sëñ Cheikh Abdou jot naa ko ba mu ma talaata onze heures mën ngaa ñëw danañ àndandoo soppe yi dem jébbal li ñu dajale am ko jox ma ko nu boole ko la ma am ñu jébbal ko dama ne woon kaamil boobu dafa ëpp ndax na mel ci rafetaay ak na mel ci taaru sëñ Muntaxa laa ko bëgg jox incha allah moom moom moom laa koy jébbal bu soobee yàlla bu bu talaata. kon daal talaata mooy ziyaaru Serigne Gana Messere ci Cheikh Mouhamadul Mountakha waaw incha allah 11h waaw. maanaam ñii dañuy jóge ci région yëpp. daje sa kër yi mat na juróom benn groupe la fédération la. Mhm. Mhm. léegi nag dama leen di wax na leen comme man du ma sëriñ bu ñuy bàyyee li tool ak jox kii ak yooyu hmm. bu may waxtaane sëñ Tuubaa nag sëñ Muntaxaa sax moo joxee addiyee ma jël bu may hmm. na maa lekk addiyee ku ne waaye ma nee nag boo dajale man ne nañ dem yët sëñ bi rek bëgg rek ñun ñëpp ñu jariñu hmm. ñu ngi koy def at yi yëpp nag talaata ji la war a doon bu soobee yàlla loolu it li koy de nekk Ndakaar wala ci région yi xëy na am na ku leen fi nekkal ñoo xam ne nii tey waaw fenn fu nekk am na ba ndax sa mi ngi tàmbalee Espagne hmm. dafa am ñoom sañ Mbacke Diop moo fa hmm. nekk bu dee jëwrin yëpp nag fédération yi ku ñuy wax Ousmane moo ko jiite hmm. fii nii Ndakaaru gis nga sëñ Makhtar Diop mooy coordonnateur bi sëñ Makhtar maxtaar mais sëñ Mouhamadou Silla meeg sëñ Mouhamadou ak Daaru ñoom ñëpp ñoo ŋànk bureau bi nga xam ne sëñ Mbacke Diop moom moo ko créé woon waaye ku ñuy wax sëñ euh, Ousmane Kama nekk Mbar mooy président dinaa joxe léegi numéro sëñ Makhtar Diop ak sëñ Daaru waaw moo jiite ku bëgg dem ci ziar bi ñoo jiite fédération bëgg cee fekk si waaw nga woo leen waaw àndandoo dem onze daal lay doon solidarité ca kanam mm-hmm. sëriñ Mahamadul Muntaka mm-hmm. ngir ñu di ko jëbbal lañ at ci koor gi laa ko daan def mm-hmm. mais ren nii yëf yi demee moo tax loolu it liñ ci jublu dàkk ngërëmul sëriñ bi rek xam nga sëñ am ne ci sëñ bi ak sëñ bi ne ci yow bokkul bokkul fi ne boo gisee ñu bari bu ñuy wax doo leen faale boo nekkee ci bi mooy oto yeeg kër yeeg montar yi la nit ñiy jox yooyu mooy ne ci sëñ bi mhm. bu sëñ bi nekkee ci yow la sa jikkooy baax dëgg la mhm. te ku ñuy xam baax nga wala baaxoo nañ dem ba say bokk ak say dëkkandoo rek noonu lañ war def def micro centre territoire di laaj nit ñi say bokk ak say bokk ak seen i dëkkandoo ba xam ñoom dañoo am la yor di ko lekkam dañoo fàtte seeni bokkam dañoo beewam dañoo dimbaliwul kenn lam déet mhm. hmm? dëgg la loolu da ko mën a xam ci nit ñi ci biti loolu nag euh, jëmmi sëñ Touba bu nekkee ci yow bu sëñ nekkee ci yow sa jikko mooy rafet boo nekkee sëñ bi nag moom man ngaa am xaalis ak mhm. yëf yu luxe yeeg yëpp waaye nag mën ngaa dese aw koro yu jikko yu ñaaw ak yooyu dëgg la ah, dëgg la maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi sant sëñ Ahmadou Kara Mbacké nuuréy ni dëgg la di soññee ci la trois boobu moom it mhm. dafa naa Mbacké dana euh, gaaw gaaw bu Mbacké moom lay doon Mbacké danañ am sëñ Ousmane a ngi koy ah, waajal ah, borom baax ñoom ñëpp tubaarkàlla fas yéene ñu ca Mbacké baax a baax ñi ñëpp danañ ci ñëw fas yéene ànd ak moom ndax moom lu mu woote ña nga ca waaw gis nga sëñ sëñ sëñ Mara ñoom ñii. Mhm. fi ne bisu tam xarit bu jot. dañuy def bisu yonent bi da nga ko teel a wàññi foo toll dee ko bisu tam moom dañ ko fay taxawee. ñoom Adama ñoom neen dañuy ñëw. musli ah. soxna musli ah, daa ci Cheikh ah, si sax dañ euh, jërëjëf sëñ Gana euh, bala ñëw ci troisième point bi nga xam ne moom lay jeexale waxtaan wi ndax am na kilifa gu ñu may wax ne bëgg naa tab bi waaye euh, dafa am lu muy xaar troisième point bi la bëgg ñu dugal ci sëñ Gana sëñ Dame euh, tey nag spécial Cheikh Amadou Bamba la thème bi gis ngeen ko moo nekkoon l'homme multidimensionnel te jàpp naa ne côté yi mu jaar yëpp waxtaane ci benn bu ci nekk mënees na cee tirer leçon euh, am na ko ma wax léegi message ndeysaan surtout sëñ sëñ Cheikh Issa Dieng la nee na ma waxtaanu sëñ Gana da ngay dund sëñ bi ba pare doo am benn stress Euh, loolu am na problème xam nga xam nga sëñ Mamor Mbaye maa ngi koy ziar yoonu géej gi maa ngi koy ziar baax nga mu yónnee léegi xam nga bàyyi laat sëñ Mamor daa wax lu xikame nee na dafa ñëw ci baas di waxtaan génn benn waaye gàttandu ko ne ko yow moom àjjana rek ngay waxtaane lu tax doo xupp gaa yi ci sawara mais àjjana rek sëñ bi ku ko yaakaar àjjana àjjana mu ne ko non c'est que baas bi waa àjjana ñoo ko baas woo ma pour ma waxal leen ci àjjana léegi waa sawara ñoom buñ baasee ñoom mën nañoo waxtaan ñoom ci sawara waa ji ne ko am na ko wala yow waa sawara nga bokk mu ne ko non non non man dama doon posé sama question rek damay kii waaye xam nga loolu <laughs> question bu na moo tax <laughs> loolu yooyu yëpp fi ne nii dafa nekk <laughs> boobu moom sëñ laaj bu sa noté na ko boobu moom nañ sa sedd yoonu géej gi bu ko piraté sax dalay fay droit d'auteur waaw ne mën naa dem mën naa dem TFM sëñ bi jékki-jékki waxtaan lu neex rek mun ne sëñ Mamour yoonu géej euh, waaye bu ko piraté dalay fay na sa xol sedd euh, sëñ bi Fall ñu ngi lay ziare baax sëñ naa euh, ndax moom waajuram it noonu la mel sëñ Cheikh foo ko gis rek ñi bëgg sëñ Touba ñi dund sëñ bi rek ah. lay lay lay fréquenté ñoom lay wax loolu moo waral euh, teewaayam bi fii ci euh, plateau bi euh, ñii seetaan ñëpp nag bëgg nañ bëgg moo xam ne mënee su koo sax lim barki sëñ Touba waa groupe kenn du sëñ bi maa ngi seen message yaawa saw ñoom mam ma cun ah soxna saalihaat ñoom ñëpp soxna bintu jaxate sëñ am satu mbàkke Zoubayru mi ngi may yónnee ah, message waaw naam ziaral ma sëñ gàmm te santal ma ko Zoubayru ak ah. sëñ Maam Mor Mbàkke kennal sëñ Touba sëñ Maam Mor foofee ca TFM ndeysaan ndeysaan sëñ Maam Mor Mbàkke waaw sëñ Maam suñu xarit walaay walaay ku baax borom xam-xam sëtu borom sam walaay walaay walaay ñu ngi koy ziare baax sëñ Maam Mor walaay ndeysaan ñu ngi koy ñu ngi koy ziare baax sëñ Maam Mor Euh, muy ku baax. Euh, sëñ Alaaji Bousso waaw sëñ Alaaji Bousso mi ngi ma léegi message. Euh, sëñ xalifa takk der la. gendarme ma ca Wakaam nee na muy nuyul ma sañ Gànna. Mhm. ziyaaral ma ko maa ngi lay ziyaar ak sëñ Alsane ca Ndula. moom mi ngi bu ñuy wax ga galo ba galo ba moomu nekk. waaw mekk Mbàkke. sëñ waaw Gallo fi ne lii ma sol moom ko si Gallo Gallo ndeysaan ndeysaan wallaay moom nekk Mbàkke wallaay wallaay wallaay wallaay baax moom yàlla ko yàlla jàpp ñoo ngi koy ziyaare baax sëñ Xalifa nee na ma damaa bëgg nga wax sëñ Gànna mu ñaanal ma li ma bëgg mooy doom ju ma tudde sëñ Tuubaa macha allah nee na doom ju ma njëkk am sëñ Tuubaa laa koy ah, tudde eh, comme waxtaan na ba tàng maa ngi koy ñaan sëñ Tuubaa mu ñaanal ah, la ko ci ñaan te di ko fas eh, nee na mënoo ñàkk laal ci sëñ Saaliw eh, waaye bala ñoo ñëw damay bàyyi ak sëñ Abdou bu sama maram dégg nga waxtaan wi ñaari tomb yu mm-hmm. njëkk yi ah. lan nga ñu ci dikkal su ko defee sëñ gànn mën a mën a kii ñu door ñëw ci troisième point bi euh, mu nekk jeexantalu jataay bi da nga may indil rek waaye sëñ Afe Cobaan mu sëñ Saaliw maa ngi lay ziyaare euh, mi ngi naan yónnil ma sëñ gànn doxal ma ko samay nuyoo sëñ Afe maa ngi lay nuyu baax di la ziyaare euh, di la ñaanal yàlla defal la tawféex sëñ la sëñ laat jàpp naa ne tey fi mu dooree rek méngoo na sax ak ñaareelu point bi mm-hmm. mooy bi mu jigéen ñu bari xamuñ lu ko yëkkati dañoo jàppoon ne ak njaboot wala samp kër wala daara te dégg nga ni ko sëñ Gana waxee mooy yooyu yëpp am na ko moom laataa muy dem sànc na kër defar na ba fi créé na ay sëñ Touba. Mhm. ay sëñ Touba la fi bàyyi. sëñ Touba bu buñ ne woon sax sëñ bi des na Gabon waaye Cerno la fi bàyyi rek Cerno moom dana dana doon aw lëjal ci seen biir li mu fi bàyyi. ndax ba muy ba muy ba muy laataa muy dugg génn moom fees na dell Cerno mhm. aw fit moom ku ni mel ni Cerno amul càddin. dëgg la tubaab bi di wax ak moom muy rëg-rëgi muy muuñ te boobu ku jàkkaarloog lu xonq daw dëgg la de looy ree mu ne damaa xam ne sama mag ja ma bàyyi du ko nuy jëli dëgg la de kooku moom mooy ñëwaay kenn du ko jëli maanaam carno rek bu boo xam ne maanaam bu fi jógoon mënoon nañu ko tuddee Xaadimu ko wuutu na ko temate na ko sëkk ndax juróom-ñaari at lu sëñ lu bi woon tubaab yi ci géej gi rek carno woon na ko gaay ñi ci jéeg dëgg la de la de maa la wax loolu ndax bu bu mënoon naa ñëw di ko ko jéeg bu mu naan ko ah man kan Mbàkke ba nga demee laataa ngay dellu si waat diw génn fi àddina Eh, daa ji kat daa mujj tas waaye déedéet daa ñëw mujj xaat lépp tegaat ko ci loxo waaw mhm. ah, te daa ñëw enseigné continué Mauritanie mhm. doxal rek ah, ba ba mu door ko wax ne ko doxal san cib dëkk dëgg la ah booba bu fi desoon même bu fa desoon sax sëñ Tuubaa wàcc na xam nga engagement wuy ji jeewal rek daje gaañi rek maanaam sëñ bi wàcc na li nga wax ne daal na leen ah, laataa muy dem loolu moom victoire mënu ko weesu bàyyi laat nan nga nu jàngale réussite boobu balaa ñoo ñëw ci ci ci ci ci kii xam naa am na ci am na ci loo xam ne jël nga ci ay note waaye lim wax mooy fi mu tàmbalee ba fii muy wax ak yow waxul woon lu jëm ci moom. jëful woon invité d'honneur la moom. waaw invité d'honneur la. tubaarkàlla te xam nga tubaarkàlla waa ka sëñ Massamba Kanni euh, doy na waar ay murit lañ ndax sëñ Tuubaa daana wax maamam su waxee dara su tontu ba néewee danaan ana Massamba Kanni mhm. xanaa nekku fi ñu ne ko ni mën nañ ko nañ ko woo. dëgg la de Sëñ Abdourahmane bu maamam ñëwee sëñ bi du ko wax ne ko maa la woolu de day dellu ca la mu waaye bu sëñ Massamba defee réaction rek. mën mm. a sikkuwul a jekk ma xam ne neewoo ci bi nii bu baax ndax da xam ne. Mm. <laughs> waaw tubaarkàlla. <laughs> Euh, ku faa sëñ Massamba la nag da ko faa ni nga koy gisee nii. ah noonu la sëñ bàyyi laat ma bàyyi la kàddu gi sëñ Amadou Touré maa ngi lay ziar bu baax a baax sama jarbaat. ndeysaan. Mm-hmm. majsuub yi li wax ne am na ñoo xam ne ñooñ tasawuf ak sariya xam nañ majsuub yi sëñ Massamba Kanni ci maj majsuub yooyu la bokkoon sëñ bu mag bi ginnaaw bi mu jógee ci tukki géej gi xasida gi mu defoon doon ko ci ñaax sëñ bi nag moom ku dul yónnente bi sallallahu alayhi wasallam séqut ak yow lu mu lay taggee waaw da lay ñaax rek dolli la ci yoon bi nga nekk nga gën a góorgóorlu waaye ci njëlbeenu xasida googee mu doon bind sëñ Massamba Kanni euh, wax na ko ca xillil man xad xiila inna lahu jazban ilallaahi xataa qalbuhu bahara sama xarit boobu nga xam ne moo bokk ci njabootu kandi mbàkke gi nga xam ne wax nañ ne moom ab majzuub la loolu sëñ musaaka Ka da koo gën a dëggalaat yi yaa jaban sëriñ Masamba Kanni fañ tànne xutbu ya fa lañ ko tànne moo gëm sëriñ tuuba te gëm rasuulu te am tasawufam ba am wusuulu ba muy eh, bu Bàmba daa xaddis mu ko dellusiwaat ci euh, liggéey bi soxna ñaaña Diop ma ngi ca Paris sab soppe la lool nee na waxtu woo guddi na foofu waaye mi ngi lay topp soxna aji Diop ma ngi ca Floride soxna Seynabou Thiam moom sëñ Abdou Akim nee naa leen nañ ko wàccee ca appartement ba ca kaw soxna may bu ngeen ko daan wàccewut dana fa mas a def loo xam ne soxna maam jaare seen mi ngi ñu ngi koy ziare bu baax nee na mi ngi lay topp sunu sunu sunu waajur woowu sunu xarit boobu soxna Marème saar maam sëtu sëñ Bay Saar la euh, maam sëriñ ñi ngi koy ñi ngi koy ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax a baax a baax euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaanal bu baax a baax a baax mboolem ñiy message nag euh, sëñ mu du maa ngi koy Chicago ñi ngi koy ziare baax soxna Astou Gawane Diop mi ngi yónnee bataaxal ñi ngi koy ziare baax moom it tabaarkàlla nee na sëñ nee bu moo paree ma leeral ko WhatsApp bi indil nga ma problème boo xam ni te xam naa ne loolu rek la ci bëggoon sëñ Abdou Samb <laughs> soxna Bintu Sopp soxna Bintu ñu ngi koy nuyu baax Eh, di di di di ko ñaanal moom itam tabarkalla soxna ay Ba eh, moom sëñ Saliou eh, sëñ Mor Dagga si la soxna ant Samb man ca Texas ñu ngi koy ziar baax sëñ Taala Xasida moom ñu ngi koy nuyu ak sëñ Mouhamed Diatara kon bàyyi laat ma bàyyi la nga yeggale fi nga tolloon kon xam naa maa ngi doon wax ci tënk rek maa ngi tàmbalee yuy bëgg a guddal sëñ mag bi ni mu doonee ab sagub lislaam waaye nu mu doonee sagub der bu ñuul. loolu nag ñun ñu waroon koo jël ñun Sénégal jaay ko ci àdduna bi sagoo ko ndamoo ko waaye malheureusement lii sëñ Gana di wax léegi di nga gis ñoo xam ne seen yitte yëpp duñ ko def ci lenn lu dul lan la ñuy mën a xool ba am luñ gàkkal ci deru sëñ Tuubaa boo xoolee fan yi yëpp daanaka lu mel noonu dafay am da ngay gis ñoo xam ne ndeysaan <laughs> euh, sëñ Tuubaa 33 ans la def ci loxoy Tuubaa bi weeri at ak ñett. fanweeri at ak ñett yooyu yëpp fi mu ne amuñu dara luñ ci mën a génne loo xam ne mën nañ cee tilimal ab deram lu dul benn leetar boo xam ne dañ ne yee yaay 1902 ginnaaw tukki géej gi la tubaab yi woo sëñ bi sëñ bi di leen lay naan leen dama feebar ak yebal naa maam Cheikh Anta yooyu nga xam ne lii ndeysaan mooy liñ mu amagun ci luñ mën a jàpp te li koy weddi ne fi xuus nag euh, du jar sori yaajum la tan dong da koy weddi ci même jamono bi la euh, boo ca demee da ngay fekk sëñ bi di ci wax ne uffin li xawmin sallasu wa dukuruhum xulfun wa kullun jubba un wa awkaabidu su boo ma aw nit woo xam ni ña ngay bokkaale yàlla di wax ne yàlla ñett la muy tubaab yi te ñoom ay tappet lañ yoo xam ne dañoo ragal a ragal ba jongu sax dañ koo ragal a def loolu ci xiyaajum la tan xadd sallasoo la ko sëñ Tuubaa wax am na feneen fu mu wax ni zabahtu xulfan sallasu yawmul ahad dabaxtu xulfan xulfan thalathu yowm al ahad bi xunjirit tawxiid yi abdan lil ahad jongal naa gaa yi nga xam ne zabaxtu xulfan la wax de jongal naa gaa yi nga xam ne mooy tubaab yii di bokkaale yàlla kañ bisub dimaas laa ko def ñu ne ko ci loo leen jongale mu ne leen bi xunjurit tawxiid yi ci paaka wala jaasi ji ñuy wax tawxiid ci laa leen jongale ñoom ñooñu ñu ne ko loo ci jublu mu ne abdan lil xat jaamoo ko yàlla kon ku nii digganteem ak tubaab yi moom nga xam ne amul jenn wax ju neex ju mas a wax jëme ko ci ñoom te mooy li ngay wax léegi muy ñu war a gën a privilégier mbindum Sëñ Tuubaa ndax tubaab yi moom boo privilégier seeni archive yitam mën ngaa ñëw ñu sosal sëñ bi su boobaa noo koy def léegi nag jiital mbindum sëñ bi te histoire itam ñi jàng historien yi may déglu xam nañ li may wax dafa bokk ci règle yi ñu leen di jàngal ci histoire mooy bu ñuy gëstu bu ñu yemee ci archive wala dara nañ ko boole ak ca kam jëm moom lam wax wala lam bind bu fekkente ne bokk na di benn su boobaa ñu xam ne archive booba lu wér la kon loolu nañ ko ciy bàyyi xel bu baax a baax sëñ bi mbiram dafa leer nañ ñi doonut loo xam ne itam dañoo am problème mu expliquer expliquer ko kenn lii gaañee di wax itam te nga junj ko léegi muy lu jëm ci wàllu sëñ bi kennal sëñ beeg yooyu sëñ mag bi moo njëkk a boppam te moom moo ñu njëkk a wax it ne kenn laa awma moroom raddali yallaahu alladi xat faata minal xuyuuri wa misaali faata li gaayu baax yi doon te mënuñu koo am yàlla boole na ko jox ma moo tax wa misaali faata ku mel ne man dootu leen ko gis loolu mooy sëñ kenn la kon moom moo njëkk kennal boppam li sëñ bi di wax ci boppam Euh, ñi ñoom ñii daanaka amu ci kenn ku ko ciy wax booy xool li sëñ li ñuy wax ci moom ba gaañi di yéemu li muy rëy rëy li sëñ bi wax ci boppam a ko gën a rëy foofu gën koo yéeme gën koo kawe kon mi ngi noonu kon nan ko nan ko sagoo te te te sigiree ko nam daan sigiree yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu xam ne sunu sag la boo xam ne ñun der bu ñuul ñu ku ko gën a kawe te duñ ko am ba ilaa yawmi diini héros national ak yii yëpp gis nga kuñ ko mën a def fii moom sëñ Tuubaa dong nga fi ne ku dul moom ku sëriñ boo ci lëmbaaje mbooti biiram mu indi teex kon nañ fexe ba euh, góorgóorlu ci sëñ bi te nu xam ne lam waxal boppam foofu lay daaneele leer na mooy jihaadiyan xada wa bayan rabiha wali siwaaye kulla kalbin nabaxa la ma taxoon a jóg muy sama jihaad jeex na la ca matoon a def def naa ko la ma yoroon ci marchandise di ko jaay jar na yàlla mi am njëg jënd na ko léegi nag wali si waaye kulla kalbi nabaxa fu ab xaj jógeetee di baw feneen ngay jëm fu ci man kon sëñ bi moom leeral na mbindam la war a li mat tontu tontu na ko li mat a leeral leeral na ko mhm. mu wax nag ni képp koo xam ne noonoo nga ma da ngay sonn adduna sonn àllaaxira mhm. kon mhm. loolu nañ ko bàyyi xel bu baax léegi nag suuxlu mbër ànd ak moom ma ci gën muy bëre daan ngay ree kon sëñ Amidoune balaa may. guddal ginnaaw ma ñëw di déglu si dong. yow mos nga euh, wax dëgg bëgguñu woon a sax jël kàddu geeg yooyu. waaye yow bàyyi si ñaan mu continuer rek ñun ñu wéyal noos gi ñun. yenn saa yi dama koy dama koy yërëm booy waxtaan. day daj loo xam ne. tey nee naa ko woon dana woyof. noggatu gi noggatu gi tey xam naa moo des tey tey tey dama xam nga man damaa ñëw tey. damaa indiwaale poids sëñ bi moo tax yëf yi métti ci man ndeysaan ndeysaan moom léegi léegi léegi day ñëw gelmatu loo gelmatu goog <laughs> moo ci dimbali su ma naree yéeg rek jàpp ci mu wàccewaat ma. ndeysaan jërëjëf sëñ Abdou Lahad Bousso Maram eh, ñu di ko sant baax di ko gërëm ci intervention bi soxna Ndiaye si bi ca Belgique mi ngi naa ma tey moom suñu si si bi bi yi nga invité tey faaw nga ndawal gu day ndax ñoom ay kilifa lañ ay sëriñ lañ ñu ngi koy ziar baax fa fekk ca Belgique. Eh, soxna Ndeye Birane HLM moom mi ngi yónnee bataaxal ñu ngi koy ziar baax a baax. Mm-hmm. sunu yaay soxna Musli kenn eh, sama avocat boobu bay di mbay maa ngi koy nuyu bu baax a baax baax a baax ak waa kër gi yëpp. Mm-hmm. yaay seex yi maa ngi koy ziar bu baax a baax euh, ba ci serpent ñoom vampire Touare Kalla ak euh, ñoom nday pend ñoom ñëpp ziar naa leen. Euh, Touare Kalla ah, waaw ñoom ay ay xale lañ sëti sëti sëti soxna si lañ dañ koo sonal mu far leen ko tudde ndax buñ ko sonal. Ah. waaye Touare Kalla ñu baax lañ maa ngi leen ziare sëñ Amadou Touré. sunu ñu ngi nuyu sunu mag soxna Jatu Diop ci golf soxna Coro. Fat Niang Tuwaar kall euh, ñoom Adja ñëpp ñu ngi leen ziare sëñ Dongo euh, di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex sëñ Gana euh, xanaa dañuy ñëw rek su ko defee sëñ Modou Makhtar damaa bëgg nga defal ma benn bataax rek su ko defee ma mën koo yaatal ci ñaari numéro yi ñu mën a waajal ziar bii nga xam ne ni moom la soppee sëñ Gana Messere di def talaata incha allah ci Cheikh mun Muntaxa fas yéene dajale pas-pas yi ak addiye yi mm. dem joxaat ko sëriñ bi ñu mm. àndandoo wettali ko ci mm. te it loolu lu am solo la ndax Euh, li may wax ni moom benn drapeau rek la yor fa mu dem samp ko fa muy sëriñ bi. Mhm. kon nag euh, képp koo xam ne ni fekk na la Touba na nga ñëw ku mu fekk ci yeneen dëkk yi te nga mën a euh, teewit na nga def lépp yépp yitte ba ànd ak moom ci bis boobu. ñu ngi leen di fàtte itam bis bi nga xam ne ni moom la ñu ànd ak kenn du kuréel kenn du sëriñ bi di ko def mu war a nekk dimaas la 11 juillet incha allah fii ci Masaalikul Jinaan fas ko yéene àndandoo kilifa yëpp ak mboolem soppeek wëllëreek am di jàmm yi incha allah ñoo ngi koy xaar seen gànna ndax nga bis boobu. Euh, moom bisam la tubaarkàlla euh, di ci euh, woo mbokki taaliba yëpp say bàyyilaat mi bokk na ci coordinateur yi mu war a nekk la 11 juillet incha allah incha allah foofee ca dimanche lay doon fële ca ji naan à partir de quinze h maa ngi ci woo mbokk yëpp ak mbokki taaliba yëpp ak wëllëre yi sëñ Gana dañuy ñëw ci troisième point bi muy réalisation sérieux bi nga jeexale ci tey lan lañ mën a tey ku waxoon ne man ñi ñi bu ñee ñëppay faatu mu ne ba des man ñi ngi ko mën a gëmee ci juillet 27 la fi bàyyi ko te lim réalisé ginnaawam bi mu fiy nekk sax amul. ndax bi mu fiy nekk lim fi réalisé loo xam ne boo ñuy tëg ci bët mooy jumaa ji ginnaaw bu noppee ci nit ñi. mooy jumaa njaareem. waaye ñaata jumaa lañu réalisé waat ginnaawam. ci aspect bu mu mën a doon. mooy ci mbind mi. mu ci alquran mu ci sañ ci dëkk yi mu ci defar nit mu ci continuité boobu tey lan lañ ci mën a wax ni lii bokk na ci réalisation wala réussit ci sëriñ bi nga xam dañuy teg loxo ne lii nii kat fekk ko fi waaye day mel ni ba mu koy bind tey taxaw euh, jërëjëf sëñ Amidou jërëjëf Cheikh Abdou Lahad noo ngi sant bokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel jataay bi ñoom it ni ko waxee léegi maa ngi nuyu sama wóolal wu ñuy wax sëñ Waly dëkk foofu ci Thiès di taalibe Alaaji Maam Thierno sëñ Waly Ngom ak sëñ Thiès ca suñu raat si la ca Louga mhm. waaye suñu Yuusu Sourang nekk foofu ci Koungheul mhm. eh, ak jigéenu Bamba yi nekk ci nekk Thiès yëpp eh, ci soxna na koy xoll waaw xam nga sëñ bi moom mhm. lim li sëñ bay wi sëñ ci wax loolu rek matal na ko jihaadiyan qada wa bay'an rabiha wala si waaye kulla kalbin nabaha sama jihaad jeex na kon li ma taxoon a jóg di samay guddi samay bëccëg mhm. lépp matale naa ko bu ma doon yaxantu yi tonewu naa mhm. kon nag ku toog fa àll ba di di di di di di di di jëmme mel ne ku soboote ka yàqit man ngaa jëm feneen waaye man doo am ci man ndam mhm. loolu danga nga koy tàmbalee ci lim lim jëkka lim jëkk lim jëkka woote di ko di ko di ko di ko woote ni mu ca réussir ak ba mu koy woote na mu wéete waaw mooy ba muy woote yoonu murit gaaw ajjuma jam ko wootee ñett nit rek a jaayante woon ak moom mu ne ko namm li ma namm na ñëw ñu dem ku bëgg yàlla ñëwoon dem daxan ilallaahi jallafal mujibi lahu ridan wa naajinu muhtadin ilallah la saman suul jo wax mm-hmm. ñaata ñaata million yi nit ñoo wuy ci woote boobe tey di tudd ay muridullahi te Mbàkke Kajoor la ko woote bésam ba mu ko jëkkee wax na ku namm li ma namm ñëwoon dem ku leneen tax a jóg nag seetal keneen ku la ko yox ñett nit a ko topp keroog tey fan gox ba mu ko doon wootee Mbàkke Kajoor la fan la yoonu murit egg ci àdduna bi yëpp waaw ci ak wasaaroo ba mu leen wooyee ban ñëwit la mu doon leen def mooy tërbiyee leen saxale ji imaan ak islaam ak ihsaan ndax mooy yi mu soso yoon wi mhm. ussu tariqati imaanu bi tawxiid wa islaam bil fiq wal ihsaan bi tasawuf loolu it moo daj àdduna bi ca kenn yam ko defee mooy kenn ku ci nekk mhm. bala sëñ bi defaree la ba gërëm la it ba nga àndeek moom ba nopp fee nekk noppee gi sëñ bi sax njaboot loolu la ñuy dundal ba dëkkub koo ci jëkk a jub mm-hmm. la nga koy mandargaal mooy jàkka ba juma daaray alxuraan ji fee nekk mm-hmm. gëm leen tënkoon ñoom ñëpp ca buum googee waxtu nekk day gën a tasaaroo di yokk yoon wi di gën a dolli ko ci melo woowu mm-hmm. mën nga ko caa jànge ba ca topp dëkk boppam bi di Touba ba mu koy gor di ko sanc mbaarum ngeer nekkoon ak dóor dóorum la defoon jàkkaam waaw di ñaan boroomam wal tusbiran fii jamaatan xam asalawaatul xamsi bal yaa xakim ñaan yàlla mbooloo mu fa sax di julli waxtu yu juróom mm-hmm. tey jii rek mën ngaa wàññi Tuubaa téeméeri jumaa ak fanweer yu julli ak jum te mënoo wàññi jàkk yi kon defe naa woote boobu wujji na mm-hmm. sëñ Cheikh Coro mas na maa wax moom sëñ Basiru Xujje ne ko Cheikh Sidi Moustar nee na am na bis ma toog ci sëñ bi waxtu timis nee na ñu nodd mu ne ni nga déggee baati nodd yi tasaaroo ci dëkk bi gëndaloo mm-hmm. noonu la baati gaynde yi meloon ñaan gam doon yàlla ñaan yàlla ab dëkkam def ko na ko def dëkkub yiw def ko dëkkub xéewal Touba tey dem na ba nekk deuxième capital ci économie ci réew moom nekk mhm. di dëkk boo xam ne na muy màgge benn dëkk du ñu màgge di dëkk boo xam ne it ba ko sëñ bi sañ jaamu yàlla ak liggéeyee taxoon waaye barkeel na ba tey loo fa jaay mu jar mhm. ba tey ji bokk na ci dëkk yi nga xam ne li ñuy joué ci économie kenn xamul lu mu toll kon loola ak réussir la gu leer nañ màggal gi mu wooteeloon boppam 21 it jaaxama tël sasin njaareem la jëkk a màggale ci tël sasin la àggale fii la bàmba jommale cay bàmba ahmadul makin jëmmi màggal googu tey ñaata lay joué ci réew mi ci di ko ca tabbal ak boobu yëngu bu ñëwee lañ lay xewal te ba mu koy woote booba ba mu ko jëkkee woote kafeeg sukkar romb ko la ca toppaat rombut ab gàtt tey ji ñaata milliards yi dem ci màggal mhm. kon lam ne na maa sant yàlla sama borom ci Touba ak sanc ko ca daarul minan ak daaru salaam yi cant yàlla defal na ko mu li ko amee ni bëgg bokk na ca lam yittewoo woon xam-xam ba wax ne maa ngi leen di digal na ngeen yittewoo xam-xam tey jii ñi mu gërëm dëkk yi demal daarul moxti demal daarul salaam demal tuubaa demal feneen demal feneen kàngami xam-xam ba tey jii da mën a wax ne université boo xam ne comité bi koy taxawal tolluñ ci trent nangam milliards te mhm. defuñu ko lu mooy am njàngale kon lam bëggoon ci xam-xam yittewoo ko it looloo ngi am te tey jii boo demee poroxaan ñaata maam jaaraa fay mokkal alxuraan nekk aw jigéen ñu di leen yar di leen jàngal kon defe naa la mu bëggoon ci alxuraan bëgg ko ci te loolu amoon la ca gën a la ca gën a yéeme it bokkaat mooy samp gi mu doon samp mag yërëm ndaw ndaw topp mag yooju war ma ko xool gis ko ci yoon wi mboolem sëñ bi tey koo bokkal sëñ bi tam féetal ak magit xoola na ngay fàttee sa bopp ngir ngir màggal ko ci waaye it woote bi mu doon woote yéen waa géej gi yéen waa jéeri yi ñëw leen wuy si rasulullahi tey ji loolu fan ngay toog di dégg turu yonent bi di jolli ci biir ay am doo xam ci biir tagg yim tagg yonent bi sallallahu alayhi muy xasaa ñaan gim ñaanoon boroomam it ne sama xaside yi na taxawe taxawaay sayqu mu raq kitaabati qaaimatun maqaama sayqil mu raqil wa yuhubul maqaama mhm. tey jii ñaata nit ñoo defaroo te defaru ci biir mbindum Sëriñ Tuubaa mhm. bokk na ci la mu doon gën a réussir damay xusuuri xallan wala ahlu an yi tafaaraqat mhm. li madaxi alladi ma madiw qasiru booba genn kër la am benn dëkk la am muy Touba. 1895 mhm. ñu tere ku fa dëkk taalub Serigne bi daal di fay fa tuuba tey jii dëkki tubaab yooyee nga xam ne ñoo doon yóbbu Serigne Touba ñaata kër la fa Serigne Touba am lañ doon bañ inni uxaati monasara turra fi ardihim li malikin mutarra tey jii waxtu wu ne ñu ngi takk ay pancarte di ci def ay mbindam ak jëmmam di dox ci dëkk yi njàngalam Serigne Touba di tesaaroo mhm. jëmmi Serigne Touba jooju tey ñu seet béréb ya gënoon a seer ñu jënd muy doon ay kër Serigne di fa màggale di jàng xasaay di doxe doxee wenn wu nekk. di mhm. melokaan loolu. Mhm. bokk na sa it la mu waxoon ne lastu ajulu li ilsaamil maarifa nakiratan kuntu fa sirtu maarifa mosuma wëreelu di bindi leetar di defi communiqué. ngir ku ma mhm. xam. damaa ne woon fi mu kenn xamuma tey ñëpp ma xam. tey adduna wala ngaan kap ñëpp a xam Serigne Touba. dëgg la waaye nag li gën a neex te gën a doy waar mooy ñaan gi doon ñaan boroomam mu def ko muy xaddiimi rasuul nga xam ne dem na ba confirmer boppam ne mulkul xaalil baaxil xadim jaxal ni asnal xadim li man lahu fadlun yadum wasaani ni an xidami tey jii lu waay bañ bañ bañ bañ da nga nangu Cheikh Ahmadou Bamba xadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. te loolu doonu ko turu gàtt nga waaye turu jëf la turu jëf la woo xam ne Serigne Touba da koo jëf mm-hmm. bokk na ca mooy fexe ba moytu al ananiya ci Sëñ Touba nga gisee nit ku mën a am benn joxe ko toog Sëñ Touba nga gisee nit ku mën a fàtte boppam yëkkati keneen ci sëñ Tuubaa nga gisee koo xam ne ci biir li mu fi bàyyi rek ni mu mel xam nga loolu ñuy wax li ma déggoon benn waaye naan sëñ Tuubaa de seen sëriñ bi ngeen di coow jenn jumaa la fi bàyyi loolu mooy réussir bi jumaa njëriñ la fi bàyyi woon ñaata jumaa fi am deux mille deux mille deux mille dix neuf ji wala deux mille nangam ji mhm. inigré nga jumaa fii ci Masaalikul Jinaan mhm. Mhm. te bañ koy dugal 1895 ci néegam bee pokos la boo xam ne ci xottu bi la teel ak ràbb ci la doon joggi tey jii ñi fi bàyyi kon bu fekkoon ne taxewuwun lislaam dundal diine ndax loolu dana mën a am kon la mu bëggoon te ñaanoon ko boroomam na ko yàlla jariñ ma te jariñ sama njaboot ci man sëñ Tuubaa jariñ nanu ba noppi jariñoo nañ sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa jariñ la loo xam ne kenn ko nekk jot na ci ci wet goo wet goo mën a nekk mm-hmm. ci defar aw nit defar aw nit xam nga léegi-léeg nga dégg ñu defar aw nit moo gën a jafe sëñ Tuubaa mm-hmm. moom la def waaw defar aw nit te fi ne tey koo mën a doon da ngay dégg ñu ne xalif général des mourides ñam defaroon góoreediwun yokkiwun beruwun bewuñu yëguñu seen bopp mhm. kenn ku ci nekk ndigal la ngay déglu mooy lu bàyyi ko sa kilifa wuti ca bët bu seen nga dégg ñu ne waa kër seen jiw jébbale ñu seen addiye waa kër seen def nañ nangam waa kër seen diw def na nangam loola lañ tey jub te kenn sëñ Tuubaa ku fi nekk ku ne luñ la jox la nga koy delloo mooy delloo ko ci yëfi sëñ Tuubaa dëgg la yàlla fay ko ci tey jii ñay gënoon a jàng nasaraan te doonoon ay tubaab doon ko contre tey ñi gën a jàng tubaab doon ay intellectuel ñooy taalibe Serigne Touba dégg ko la dàqoon a wax alors ak ici ak mais ak d'abord tey moo la dàq wax askay ak jërëjëf Serigne Touba dàq laa daanu. Mm-hmm. duggal ci biir université yi duggal ci biir bureau yi duggal ci biir fu nekk kenn ku ne la ngay xëllantoo mooy taalibe Serigne Touba la loola nag la mu ci doon lijjanti fexe ba jot ci xol yi. Mm-hmm. bu nit ñi jotee ci jëmm yi it bu iblis jotee ci jëmm yi fexe ba jot ci xol yi moo tax mën nga gis nit koo xam ne ab abiyewu na abiye boo xam ne lu sayire lay doon waaye boo làmbee biir xolam Serigne Touba nga cay fekk mhm. li gën a jafe ci adduna yi mooy liggéey sa alal ba mu leew la nga nu nga ko joxe ci yoonu yàlla te jox doo ca boole nag di di di ñaxtu wala nangam mhm. nga xam ne li alxuraan na wala sa sadaqatu sadaqatuku bil manni wal adha mhm. loolu ngay mën a gis boole joxe sa alal ba na boole kooku jooy di dékk ay loxo waaye fexe nag ba confiance bi mu bëggoon am ko ci moom mu dëgër ba fi mu toll nii lu yàq yi gën a bari tey la gars yi gën a rokkos sëñ Touba waaw li sëñ Mountakha waxoon rek nee na sëñ Touba ku yàq ku defaru sax mënu koo yàq mënut a yàq mbiram waxumaa yàqu baa ko bëgg a loolu benn garantie bu ko gën a wér amul ginnaaw ba adduna cukki lim yor mën te barkeem day laddi te lim yor du yàqu te kenn mënu koo yàqu ku baax mënu koo yàq ab safar mënu koo yàq kon moom lim samp dëgër na tudduutu daanu mukk mhm. te lépp lu di neen sori na ko tudduutu ko jege mukk lépp lu mu bëggoon ci boromam am na ko sëñ Tuubaa dafa marqué ay jamonoom digganteem ak boromam digganteem ak rasulullaay digganteem ak mbindeef yi digganteem ak njaboot bi digganteem ak jàmboor yi ñëpp kenn ku ne la ko war taxawaay bu sell ba mu ca war a taxaw da ko caa taxaw dafa nekk koo xam ne même bu dul woon sëñ Tuubaa geeg nangam xool tey buñ tudd ci nit doomu aadama boo xam ne dafa ñëw rek fexe ba jariñ nit ñi ñëpp su ki ne jariñu nañ ci sëñ mm-hmm. loolu lu nit ki war a xool la te moom képp moo daan ñaan naan yàlla wan fian biyel wara jariñal ci man nit ñi te ba noppi ñaan yàlla njariñam lan di jot kenn ku nekk ba ku ne mën caa jariñam mhm. kon loo natt rek loo natt ci àdduna rek fekk nga sëñ Tuubaa lam ca bëggoon lépp am na ko ci moo waral firfir ji sëñ Tuubaa por yi mu samp bu dëgërutoon xam nga ne ku toog ba heure bii mille vingt 2021 ngay génne lettre naan sëñ Tuubaa da benn bis tubaab bi dafa ñëw ba ci boori passage seni boobu boobu ci njëriñ mhm. góornóor bi yónnee woolu sëñ bi jëm moo tax nga xam ne ñii li ñuy wax dara du ci dëgg sëñ bi jëm si jàkk ja ba sëñ bi jëmee julli ji timis ba wàññi ko waa xuuti ko ba mu dikki mu ne ko sa yàlla ji du la pardonné benn yoon sëñ bi ne ko ñàkk jom rek la dal de ndax lim ma teg la la teg nga lànk ma nangu ko xoola loolu loolu ko képp la jàpp lim la teg la ma teg nga gàntu ko ma nangu ki mën a wax sëñ Balla Coro mu jàkkaarloog ab tubaab di nóor bu am doole te am kattan William Ponty lu ko lu ko lu ko lu ko sëñ Balla Coro tontu woon ku baax ki ne kàcc nga kàcc nga kàcc nga te sëñ bi ne ko woon nee ko kàcc nga sëñ joxar bil ko loolu tey jii loola gëm-gëm boobu tax na ba sëñ Touba fexe na ba Cheikh yi dafa wax lu yéeme Cheikh Sidiye ndeysaan dana dafa bokk ci li may yéem ci Serigne Touba mhm. mooy nasaraan bi mu taxool diirub juróom-ñaari at te la muy yàgg-yàgg li tax loolu nekk lu doy waar mhm. nee na la taxoo ko di yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ba suñ bisub tey bii ñu nekk nasaraan bi mënta andil benn gàkk sëñ Tuuba nee na mënu ko andi lenn lu ñuy nettali loo xam ne kersa da cay am ñu ne lu tax ñu ne sëñ Tuuba ko joxoon defoon loolu te loolu lu leer nañ ñi laa la ci wax mi ngi nii wa shahida lahu al alaamatu cheikh sidi yaqul inna min ajami xifsi allah al cheikh ahmadou bamba tuula muddatu muxaalati liman aaduhu wa kasratu quwaahum wa infiraadi bihi an ahli al muruaati min ashrafi dawla wa muaamalat lahu bi kulli qaswa walam tuusir anhu fi'latun yastahi min hikayatiha aw kalimat yandima alayha qat mhm. nee na bokk na ci li ma gën a yéem ci sëñ ci sàmm gi yàlla sàmm Cheikh Sidi na sàmm gi yàlla sàmm sëñ Tuba ba mu ànd ak bi juróom ñu boole ko xol yu bon ak bañ ko ak wow xol ak dëgëru sori loo ko njabootam mhm. waaye mosuñu ko jëf lenn loo xam ne am nañ kersa nettali ko muy luñ bind baa luñ wax nee na kon kenn mënta génn lu ko gàkkal te loola ba mu koy laaj dana kat lu tax la bind wa maa kaana man rabbul ibaadi waliyahu wa maxdamu xayra alaamil yaxsara ku yàlla doon sa kilifa ngay liggéey rasulullahi nee na doo pert te loolu la Sëñ Tuubaa taxawe woon kon loolu da caa fexe ba lam waxoon ne set naa wicc jëfuma lu ma taqe kon bu kenn jëf lu may taqal kenn mënut a taqal Sëñ Tuubaa ba tey damay wax ne lii gaa yi wax da ngay gis koo xam ne dañuy wiccax waaye nee naa gadoroo ngay yor di ko bi cax ci asamaan ngir bëgg mu taq say gët da koy taq waaye mënoo koo gàkkal mhm. tey bu fexe woon ba point yu yëpp marqué wu ko ak ni gars yi mën a yàqe ak ni gars yi mën a saboté mhm. ñeneen ca ginnaaw ñag bay woote ak ñi bëtt ñag bi taxadiyaat yi nga xam ne daaxili ya xaariji fu ne mbëkk mi di départ te saa yoon yàqee ba defe ne découragé am na mbir mi gën a yokk saa yoon jàppee ne am nañ leen bëgg rek dolli ko gën a am dëgg la loolu sëñ Tuubaa ko sengeel boppam sëñ Tuubaa ko jëfal boppam sëñ Tuubaa taxawal boppam mhm. bi lu dul roy ko mhm. ak bëgg ko ak liggéeyal ko ak jeex ci moom mhm. ku ko def defoo dara lu lay jariñ dara dëgg la dëgg la bëggoon naa nag mhm. euh, danaa dégg léegi sim laat bi mu dafa naan yaa xay yaa xay si nangam man comme du ma football man gànn lu sama yoon ci mat comme yow gëmoo sañ Tuubaa doom murit li ñuy wax néew ñu yaa ko wax moo ko wax ñooñam a ko wax ay waay man ci alxuraan mënoo koo tekki du jeex addi si mënoo ko jeexal waxtaan ci te bàyyi li ci des te ak ñeme yàlla mënta weesu ngay firi alxuraan na alif lam mim na allahu axla bi muraadihi alif lam ra tilka nga ne allahu axla bi muraadihi nga ne noonu xaaf nga ne noonu ba noppi ba wax ne niwul ci alxuraan yow mënoo ñett firi ñetti baat yi ba noppi bëgg na nangam niwul ci alxuraan moo tax koo dégg ne firi na téere bi dañoo war ne wax na ci aslaf rek ndax alif laam raam alif miim googu nga romb képp wala xii miim googu nga romb te mënoo koo firi mën naa am la nga la la jaaxal ba mënoo koo xam ca la ne ginnaaw yow daal sa yoon ku ci màndu ci la ma naan wax rek yàkkub jàmboor ku ci sa biir daw da ngaa waale dëgg la <laughs> na kenn ku ne xool fa la mën a jàpp nga ne ca waaye sëñ bi yow bu la yàlla nattoo bu la yàlla nattoo nga dëkk ci réew moo xam ne mm-hmm. li ma la wax léegi espace bi fees na amul vidde amul mhm. bi lay ni may kontaane ma seetaanee télé bi ah damay kontaan xoolal fi ne da ngay dégg ñu tey layeen yey wax subaa ñu ne xaadir yi murid yi tijaan yi waa kër Baay Ñas fu ne ku ne andi mbër moo xam ne yow miy toog di seetaan boo ca amul maam amoo ca dara xam nga ne ñii moo mënoo sa maam ginnaaw lañ bokkaloon réew mi ni ko wif sàkkaama yow mbappat mi ku ci mënta daan kenn boo fekkoon grand combat da ngay bëri defet rek dëgg gannaaw sa maam daa encaissé woon loolu la gars yi nag encaissement yi woon moo leen tuusa te tey jii la riir mi gën a bari ndax sëñ Tuubaa yi baree fi nekk léegi yenn jumaa la fi bàyyi woon ay junniy jumaa fi nekk ay sët a fi nekk boo dem teg ci sëñ Tuubaa ngay gis sët yoo xam ne man nañoo doon président de la république man imaami Tuubaa man xaadi bu nekk ca Makka di atte ba noppi mën a doon mufti boo xam ne ko laaj mu wax la ko te bu lemee boppam da ngay defee jàngu dara dëgg loolu yàlla may na ko sëñ Tuubaa dëgg la ba noppi loo waaye di làkk ak a wax sëñ Tuubaa may may ko ci njabootam gii ñëpp mënandoo ko ñëpp xamandoo ko mm-hmm. Cheikh ma Mountakha mi fi nekk de géej la goo xam ne ku ko jot amul mm-hmm. tarakam yi ko féete suuf noonu lañ mel ci xam-xam mm-hmm. mel ko ci cërub yàlla léegi-léegi nag gis kuy tëbaka dal sañ am defe ne des ko mën a loolu dara damay xam ne mbuut jërul génn ak fetal aw mbuut nu muy ne sa biir walis ne ci sa biir euh, armuwaal nga ngay dem di génn fetal di yàq sa sa ki da koy bàyyi mu naan tës tës ba romb la nga jëlu daal nag ko tap mbóot na neem caw li <laughs> la mbóot jarul génn ak fetal ak fetal nga taal téere ko yàq sa armoire jarul armé wu di ah, loolu nag mooy ñii nañ bàyyi xel sëñ Touba te jàpp ko te doon ay taalibe dëgg la te jëfal sëriñ Touba dëgg te xam ne mhm. tey jii sëriñ Saliou yu waaw misaal waaw fukki junne ñaar ci dongay laxasaay mhm. sëñ bi di leen tërbiye mhm. di leen yar di leen jàngal di leen dulal di leen faj di leen dëkkal te man nga caa bañ a xam way juru ñu ci bari nga defar leen tey bañ ci saaroo ci goxi adduna bii loolu rek doyoon na misaal dëgg la ba mu fa bàyyi ko fu dépense bu xel koom tolloon tey jii daara yi sëñ Cheikh Saliou ëpp na lool waaw daara yi sëñ Cheikh Saliou seere ëpp na lool ñaata jumaa la sëñ Cheikh Saliou tabaxal boppam mhm. ku ma sa dajee ku yorob leetar naan sëñ Cheikh Saliou day laaj ju jëm ci néegub yàlla ba boole ko jàpp njàmbooram waaw kon ki mën a yor doomi jàmboor di dundal nga xam ne ñaar fukki million da nga koy joxe par weer mhm. waxuma la am at ngir di ko dundale ak njaboot te te mënoo caa am ñaari doom wala ñetti doom mhm. ma noppi dëkk ci àll di jaamu yàlla doon mag mu toll nu ne te mënoon dund sa barke baay mhm. waa ji ku bëgg kook diine mën nga am foo jàppandiko xel ko proxaada nga ne ñaata million dana mat ñaar fukki million daanaka par weer ñu koy dundale maam jaara yoo xam ne am sam jaar maam jaara yóbbu mu mën alxuraan ñu jàng ko tasaare ko ci réew mi kon nit ñi la ñuy xool yu rafet yi di ko waxtaane te bañ a siise sëñ Touba ci ci am Gana Messere wala nga siise ko ci ci ci ci koo dajal ci mbedd mi rek hôpital boo dem am na margu boo dem am na margu boo dem rek am na margu boo demee nag fekk ñuy puus am néew nga naan fii ku fi dugg dee nit dugg na fi wér boo dajee am yambar moo xam ne Gana Messere la taxaw ci mbedd yi nga siise ci yoonu naal xoolal murid yi waxtu bi nga koy wax am na ku taxaw di naafi la am na koo xam ne ma nga ca arxuraan ja am na koo xam ne ma nga ci digganteem ak boromam mhm. te am na ci ñoo xam ne ay citoyen modèle lañ mhm. tey ji boo seet lu mat juróom-ñaar téeméeri dëkk yoo xam ne murid yi ñoo ko moom mhm. tey boo xooloon économie Sénégal gii lan la ci murid yi joué ci taxawee ko ci nungoo liggéey boo demee pàkku làmbaay looy dégg ca jamono yu yàgg lay doon waxtu wu nekk yaa ngi gis taxawaay boobu kon bu fekkee ne léegi yow dara jeexalulu ci lu may dëlëf dëlëf ji rek ak giñ ci barkeb sëñ bi ak ko rek nangam nangam nang loolu loolu loolu loolu boo waxee benn damay wax ne boo nee benn mu sogee ko te jëm ci sëñ Tuuba booy dikkaat indi juróom-ñeent mat fukk mu gën a diis te gëm ne lu la dal ci sëñ Tuuba baax na sëñ Tuuba dañoo jàngal tawxiid jàngal lu gëm yàlla gëm yàlla du ay diis discours yi mbedd rek wala gëm yàlla du ay li benn waaye doon wax ne dafa am waa joo xam daan sawara boo fa duggee da ngay lakk ñor xamaat judduwaat bees ñu dugalaat la mu koy wax waa ji ko xool ba yàgg mu ne ko yaw boobaa fooy nekk yow fekk mu nekk bis pénc sa yóor gi di xet ngay jokkastiku wax ba yàggal mu ne ko yow booba fooy ne mu ne ko man kay falaa bokk mu ne ko jël ñàngal ah ginnaaw ku dégg sa pax ñun bu nekkee ci nax bàyyi nu ci. bu ëllëgee bu ñu dee duma sa yoon du ci ne. ah wax dëgg yàlla waaye nag. wallaay wallaay wallaay kon nag kon nag il faut que nu bàyyi loolu xel teyit nag beneen lancement bi ci mooy mm-hmm. ndaw ñi nekk ci internet bi nañ bàyyi seen saaga yi mm-hmm. sëñ Tuubaa amul moroom doy na ci commentaire mm-hmm. doy na ci di boo xoolee ni nit saaga la bu fekkee yow yaa ngi koy yor ba nit saaga la kontaanal am na bakkaar tooñ na la te it reconnaître na la xam na ne am nga nenga fi ndax bu xamutoon ne yaa ngi fi doo la commentaire ba waaye boo ko ci toppee di saaga am yow am nga xaritu boo xam ne kilifa la sa kilifaa nga lay dégg boo ko ci roy waaye bu la dara tax a mën a découragé nañ gën a jàpp sëñ Tuubaa la sëñ Fallu waxoon na ko nikk na ko nankutum na ko katiiw na ko tarawlis dëgg la jàpp Serigne Touba bañ ko booleeg dara. raxas suñ xol yi yéenante ñëpp jàmm. te rafet njort ci jaam yi. dëgg la waaye yàlla nu mu sàkkee jaamam yi wàcce leen ci kaw suuf nga bëgg a gurgur ñëpp yóbbu sawara. bëgg toroxal ñëpp. bëgg bëgg na ñëpp ay yéefar lañ. te yonent bi nee koo ne yéefar nga yow mi ko wax yaa doon yaa doon bu yéefar. dëgg ah sa nit ñi yàlla moo xam li ci seen biir xol te nit bu mm-hmm. ko waratoo ko tuddee ab yéefar mm-hmm. ci boo ko rayee rey nga julit mm-hmm. kon ab julit dee su ko atte ci nangam. surtout koo xam ne li nga ko bëgg a jugé bëriwul yoonu boppam. dafa ñëw kilifa yu la gën a jub gën laa ragal te léegi la nga dégg naa fiq ba day wax ba yàgg mu bëgg a tànn kenn njabaru sëñ Tuubaa naan diw nag sama xarit la diw moomee nu mu mel sëñ Tuubaa la. Hmm. sëñ moom piisub mbase jasineer la bu bii amee gàkk-gàkkit mënoo fexe ba du mbase jasineer kepp la ñëpp a foor sëñ Tuubaa mutum saarit ñëpp a diis ñëpp a rëy la sëñ Mat ba Gay daan wax ne la tàmbalee ca maam maaram bi ku mujj judd sant Mbàkke du ma boot kii di kaata kii waaye Cheikh Moustapha laa féeteel waaye nafiq mënta weesu kër sëñ Tuubaa nga yow yaakaaroo sëñ Tuubaa bëgg di discours di dajj ku ne xam neex la nga naan sëñ diw nag sama xarit la sëñ diw moomu bu bàyyee li li li ñee nekk ñëw ci yow yéen a Mm-hmm. <laughs> wallaay ndax yow amooy tool amoo dayire kenn du takk sa bat kenn du ne ëskey doo woote magal ñu wusi sa bàmmeelu bàyyi dee su ko siyaare rek xamuñu fu ko denc ku la ca fekk yéen a yem te ku ngemee rek na def déclaration na bàyyi naa lii ma taxa doon lii dem ca lee bu subaa maa lay tane ñii dañoo iñaan yàlla xam na ko coow lee leen topp jaaxal leen te moo ne day sëñ Muntaxa mi joxe na misaal ci réew mii mboolem ren ku war a mën a jàngat diggante daaw ak ren war ngaa xam booy warus gor di warub jullit di wër borom yërmande di war ku mat kilifa di war wër citoyen modèle sëñ Muntaxa mi doy na ci misaal mboolem lu ñu war a participer mën a faj ëpp ñëpp doole ëpp ñëpp sañ-sañ ëpp ñëpp bëtin ëpp ñëpp alal ëpp ñëpp xam-xam boole ko na dégg mën a muñ waras naa jànge ci moom mm-hmm. Cheikh Muntaxa te bu ñuy misaal war ñoo misaal yooyu di ko wax yu baax yi ñuy gis nañ koy wax mm-hmm. ak di ko nettali mm-hmm. moo gën yenn yi di ko jéem a ndax ki ñuy ñun ki ñuy découragé loo mm-hmm. moo ni encouragé dëgg la waaw ginnaaw fii te fenn mënta ñàkk ñun bu néewul sëñ biir faaw ñu ñëw fenn ah te fi nekk moo nu gënal bàyyi na fi rek yow te wut ku ñëw fi yow jërëjëf sëñ euh, ma gërëm ko bu baax a baax euh, am mbégte ci soxna maam Jaara Mbàkke moom moom moom moom moom moom sa Maxtaar mu sëñ Abdoulaye borom dër bi waaw ndeysaan waaw nga xam ne sëñ Xaadim Xafoor yoroon na ko soxna maam Jaara waaw soxna maam Jaara ku baax di sama soppe ku ma bëgg lool nag ngir sëñ Tuubaa nangu lu ko ci ak soxna maam jaaram sëñ abo sama soppe la waaye yow yaa dox suma diggante ak moom soxna maam jaara ah. abo yow rek la bëgg ah moom sama soppe la moom moom sëñ moom sëñ am daat moom sama soppe la moom soxna maam jaara noonu la mel ci ah, man murit laa waaw ah, moom sëñ gànn day alhamdulilah moom dañuy daje ci sëñ maamunum sëñ Abdou Lahad wallaay wallaay sëñ Basiru Coro tey jii la doon def màggal way juróom da nga koy ziare baax mhm. ak sëñ Amsa bi nga xam ne moom mhm. sëñ Abdou Lahad mhm. ak kilifa yi nekk Touba sëñ Moustapha Guèye moom Sam moom it ñoo koy siyaare suñu way jur woo wàcc barki démb alaaji Amsatou Guèye sama baay boobu nga xam ne boole woon gore boole woon baax rafetum xel mën a taxawu nit sama way jur bu baax la woon alaaji Amsatou Guèye ngàcc ku gore noo koy siyaare di siyaare di ko siyaare nag njaboot gi yëpp sëñ mhm. Mabéy mi nga xam ne moo di ab xalifaam waaye fàttewuñu sa bàyyi sëñ Mbakke Gueye mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mabéy fi ne mhm. te moom moo nekkoon xalifa bi it mhm. ñu ñaan yàlla gën ko fee yàggal nga xam ne moo jiite Cheikh Daaru Xuloos yëpp loolu taxawaay la bu rafet sëriñ Amidou waaw ndeysaan euh, jërëjëf euh, alaaji sëñ Gana Messere euh, ñu gërëm ko bu baax a baax Euh, ci euh, waxtaan wi ak bañ ko tàmbalee ba léegi ñi nga xam ne noonu la ko doxale ñëpp jariñu ci euh, ma profité rek joxewaale numéro sëñ Makhtar Diop bu sëñ Gana Messere mooy 77 161 22 05 77 161 22 05 numéro yi mooy jaar ngir ku bëgg bokk ci ziar bi nga xam ni sëñ Gana dina ko defal Cheikh mun Mountakha talaata ji ñu jëm incha allah wala nga woo sëñ Daaru Euh, ci 76 492 23 12 76 492 23 12 ku soxla sëñ Gana sax yàlla dogal na boo jaaree si ñoom incha allah mm. euh, ndax euh, tubaarkàlla saa su ne ñu ngi nekk muy sëñ maxtaar Diop ak sëñ Darou Gueye muy 77 161 22 05 ak 76 492 23 12 tubaarkàlla ziar boobu nag bu ma sañoon ñëpp tubaarkàlla nañ ci dugal seen loxo. Euh, maa ngi ziare baax soxna moom i Kebe euh, moom Serigne Saliou di ziare baax sëñ Ablaye Tage ci wax euh, gi ñuy topp jotaay bi ndax saa su nekk lépp lu ñuy def ci sëñ Touba tam ne ku baax la de soxna moom i Kebe rëcc wallaay wallaay ñëw bu yàggul rek Touba wallaay wallaay sama sama way juróom ku baax la donc ak sëñ Ablaye Tage moom jot naa ko wallaay wallaay di ko sant sëñ Baara Mbackeem Sam muy sëñ Baara Cheikh waaw xalifa sëñ Cheikh Baara Khourédia mm-hmm. moom it Mourid Sadel moom way juróom danaa wax ne sama doom li ma koy xam xàmmee mooy bëgg sëñ Touba ndeysaan ndeysaan moom moom sëñ baaram sam tudde naa ko doom suma xel ndeysaan ndeysaan sëñ soxna maam say belel moom sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mm. moom sëñ Cheikh si Mbacke soy moom sëñ Cheikh say waaw nee na ma ziyaaral ma sëñ Gana ñoo bokkoon makka ñoo bokkoon makka ñoo àndandoo woon ba nga may esteleel WhatsApp ba booba fa la ko fekk ñoom ñoo ko bokkoon makka ja am say Mbacke noo ngi lay siyaare moom sëñ si Ahmadou Mbacke Soyibu ak soxna Assu Mbacke moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma maa ngi koy siyaare ak soxna Baali Bakiw sëñ Muntaxa ah soxna Baali Muntaxa sama goro <laughs> tubarkàlla ah, war sama dinaa ñu ko leeral sëñ laat ndax xam naa ne <laughs> moo ma koy sala daal te bañ ma ko yónnee woon naa ko ñi ngi yow am yow moom am ndax di nga leeral woon sa bopp bañ ko yónnee daal yuuxu naa dem won ko ko ma ah lii moom doy na waar li waaye ginnaaw aj gi jeex na garawul ma ne ko ah fexe leen mu dañ ma jël téléphone ma may ko Moussa Kar na ko na fa yàpp incha allahu du doog leen ko gis mais damaa gis ko la mayat bi yëpp bàkk ak koo xam ne dafa bëgg nga aj yii di ñëw nga waajaat ndax euh, yéen ji ñu am mooy yow moom at at mu ne bu aj amee rek mun naa munoo faa ñàkk ndax foofu xoromus murit yi nga daal foofu tubaarkàlla. Euh, ban yàgg ci ak jàmm rek <laughs> ban yàgg ci ak jàmm ndax ginnaaw li ma ne sataaxa moom boo ci yëgagul doo xam loolu dana mën a nekkam de nanu ci yàlla yóbbu ak jàmm ban yàgg ci rek. <laughs> màkk moom lañ dem ba yàgg ginnaaw dem naa benn yoon ba ñëw daal maa ngi gërëm si Abdou Samad mu ci yóbbu woon ah moom du béréb bu noos béréb bu caaxaan béréb bu aj la dox ba yaatu na te sori na xam nga ne diggante la ilaha illallah makka makka du bérëb caan jamra sànni ko ba noppi toppi xurwa wuti kaaba ga ñëw boole ko tawaaf door a dem safa maro loolu loolu condition la laaj makka makka bari na ñu lay jaay fii condition di ñàngal Moustapha Kane dañoo ànd makka maak am mi mujj ma sonn Moustapha Kane mel ni koy door a tàmbali naan raakam raakam ba yàgg mu ne ma xam nga yaa am na ngeen may jaay affaire bu nekkee Sénégal di jaay oto yu sedd di jaay climatiseur fii maag yéen man nga xam ne damay tàmbalee biir dakaar ba Kër Massar di ko dox yéen ñii di ma jaay la waaye na ma ko waxee na moom du dafa mujj ma ma woo Mor Gueye mii ne ko am moor xanaa kii daam lu muy naan ndax du sonn maanaam makka makka yi ca daje. ah moo tax du biir bu caaxaan mais mais bala ngaa wax jumaa ji ci biir ak yooyu am na coono de coono yi moom fépp la moom coono moom.